Thank you. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki auditeurs yi rajo municipal de Dakar yéen ak Cheikh Ahmad Tidiane Niang ci guddi ajjuma bu 23h jotee muy fukki waxtu ak benn 11h ci guddi waxtaan a jullit yi yee leen alquran ahadis sallallahu alayhi wa sallam bu 1h du matin jotee mu tàmbali fajtal tok eut bu yaatu ak ay borom xam-xam wax li jëriñ doomu adam yi ci seen wàllu wergu yaram ngeen di ci ànd ba ak ci Ahmed Tidiane ñang ak ay borom xam-xam fi ci radio municipal de Dakar rnb ñi émettre ci fréquence 95.5 building communal alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh etana rajim بسم الله rahim الرحيم yi نيغي لين دي نويوتي di ñaan yàlla jotaay bi yàlla na yàgg ñun ak yéen ngeen di ñu dégg ñu di leen nuyu ngeen di ñu ñaanal ñu di leen ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ki nekk ci wàllu xarala bi di alxaaji Masay Jong président Daara Fajtal tabaarakallaahu ñi ngi koy nuyu di ko sargal di nuyu tam sëriñ Khalidou gay mu fas yéene ànd ak ñun ba cinq heures matin ci kàttanu yàlla di ñaan rek continuer yàlla na yàlla defal ñu jàmm ci suñu réew def ko ci réewu àdduna bi yëpp di fàttaliku mag ñu baax ñi nga xam ni ñoo fi nekk te uutu fi mag ñi ku mel na alxaaji tafsir saaxo yal na yàlla gën a guddal fanam ci gën a yokk wéram ci zaahir ak baatin nag ci barke yonent bi ku mel na suñu jigéenu bopp di soxna Fadima Taal tabaarakallahu yàlla na yàlla nangu lépp lu ñu ñaan ci moom ci yiw ak xéewal ak sutura ak ndam ak teraanga fan wu ak wér moom ak njabootam yëpp nag ku mel na soxna ndey ndumbe jóob ci kolobaan ak soxna roqee njaay moom itam di suñu lépp macha allah di ñaanal bu baax a baax ndeysaan suñu jigéenu bopp soxna Kumba Gueye oustaz seeteegum nga soxna Kumba Gueye ah? ku baax la te këram sorewul fii ci Colobane wallaay ndeysaan ku baax la waaw boo fa demee nag maanaam danga nga gën a gën a gëm yàlla gëm nga ko nag mais danga ko yokkaat di nuyu itam suñu kóllëre suñu xarit di sëriñ Cheikh Sylla di ku baax wande góor gi siin nee na ma Cheikh Sylla ma ni ko mu ni ma papa ma ko gën ma ni ko déet waaye Cheikh Sylla est-ce que nit mën na koo gën ah <laughs> wante daal loolu mooy wane ni rek Cheikh Sylla bu baax na way juram baax na kon fa way jur wa tegoon tànk wa teg tànkam kon Cheikh Sylla yàlla yàlla gën a yokk wér ak sutura àddina ak alaaxira di ñaan yàlla mu def jàmm ci réew mi yépp nag di nuyu itam la reen waaw waaw la waaw la reine xam na moom laa reine ah, aha <laughs> eh, ñaan itam ci kàttanu yàlla ñepp ñi nga xamni ñi ngi fièvre te teud ci lalu hôpitaux yi ak ñi fièvre te teud ci kër yi ñun suñu xex foofu la wara dem ñi xex ak ñi nga xamni dañu fièvre te ñoo dem fenn ñi dem nañu hôpital ba sonn mënuñ dañu mujj toog ñi ci des amuñu moyen yuñ demee hôpital ak it malaat ya tëdd ci hôpital ñoom itam docteur yi deug deug deug son nañu docteur yi dañoo ci charge ñi ngi leen di mere naan docteur yi docteur yi fekk liñ leen yeen dafa ëpp kon lola daara fàttal war na ci yëngatu kon président Massey war na gën a indi xalaatam ci ci côté boobu defoon nañu gaa maye deret maye deret kooku paala bu sore ndax nit ki su amul deret dee te ku ñu war a may deret te soo demee doo fa fekk deret doo faju kon nag daara fajtal di def ñoom itam seen njàmbaar ni dañuy maye deret ngir sowe askan wi kon bu ñu nee daara fajtal kon loolu bokk na ci euh, tur wi uyu na boroom kon hôpitaux yi ñi mboolem ñi ci tëdd ak ñi yore mettit nekk ci kër yi ñi jaaxle gis nga ba ci bërëbu liggéeyukaay yi ak ci mbedd mi yaa ngi romb ñi feebar ñoo xam ne mënuñoo toog am na ci sax ñoo xam ne ñoom xalaatuñu sax ndax amuñ luñ fajoo te mënuñoo nekk toog kon nag ñoo ñëpp yal na yàlla bette leen xéewal ci mbaaxu yàlla ci kattanam may wér ci zahir may wér ci baatin mbokk yi nga xam ni ñi ngi ci prison yi nga xam ne ñi ngi leen tëj caabi feeti leen ginnaaw damay wax ni jombul kenn amul ku fa jomba dem nag ña fa nekk yàlla na leen yàlla génne ak jàmm ñi fa demagul yàlla buñ fa dem ci mbaaxu yàlla euh, te itam ñi nga xam ni ñoom la nekkal ci réew mi di jambar, torop muy suñ mbokki chrétien yi jàmbaar la torop ñoom itam ci waar wi wax dëgg yàlla ñi ngi góorgóorlu ñi ngi faj te faj gi yàgg na defe naa ñun ñëpp dañoo nekk xale rek dégg ñu naan yóbbul kër soor waaw kër sóor yomb lool kon mbokki chrétien yi dëgg dëgg dëgg dëgg jàmbaar lañu kenn demul ñu des tabaarakallah moo tax bu ñuy ñaan jàmm ñoom ñëpp lañuy ñuy boole dugalaale ci biir ñoom ñu yàlla may ñu jàmm kii suñu buur mooy mooy mooy mooy borom bi subhaanahu wa yàlla dogal seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam muy suñub yonent ñoom itam ñu jël seydina isa mu nekk seen ab yonent ah ëllëg nag ñu yàlla ñu ñaan yàlla mu àtte ci yërmandeem waaw ñun ñëpp mu boole ñu tàbbal ñu àjjana yàlla mën na ko du ko wàññi dara waaw mën na ko su ko defee nag ñuy ñaan itam ñi nga xam ni ñi fi jógee dem barzak yal na yàlla tàbbal leen aljannatul firdaws surtout suñu xarit suñu doomu ndey suñu genn wàll di Mouhamadou Guèye di doomu suñu yaay njëlu pay tabaarakallah nit ku baax la nit ku jaambure la nit ku mën a jaamu yàlla la wallaay ndeysaan yal na yàlla tàbbal ko al aljannatul firdaws yàlla na nekk dëkkuwaayam yàlla wanele ko yonent bi nga xam ni moom la bëggoon lool lool lool moom Mouhamadou Gueye itam ñu tuddal ko ko yàlla na suuf oyof ci kawam niñ koy waxee tey nag ñu ngi fi toog ak Alxasan Jaañ moom yàlla jox na ko ay ndombo tànk yu mu sàkkulul boppam waaw ndombo tànk yoo xam ni sàkkuloo ko sa bopp yenn saa yi sax ñu wax dañuy xaw a bañ fekk yàlla moo dogal ndax mooy sama nijaay kooku yàllaa ko dogal <laughs> kooku defe naa mënul mënul mënul mënul dañ bi ci des mooy imaamu daara taaha ah, ah, ba tey ba tey du non ba tey mooy imaamu daara taaxa di daara fajtal waaw léegi moom mooy imaam bi imaam nag yow ma nadu kullu unaasin bi imaamihim yàlla nee na ëllëg yowmal xiyaam ku ci nekk ci sa turu imaam lañ lay oowee euh, yàlla dogal itam mooy ustaaz ci daara fajtal ndax dama wax ne daara fajtal dafa am ñaar daf ci am ñoo xam ne ñoom ay sëriñ lañu mooy suñu leen invité ñu ñëw wax am ci seen ustuut ñii nag ñoom ñoom ñooy ustaasu daara ñooy ustaasu daara fajtal ndax ba ba dara dul dara ñoo continuer di jàng di jàngale ñoo continuer di jàngale amul benn temps boo xam ne xanaa ku ci amul ngànt wala feebaroo yaa ngi ci daara ji ñoom mosuñ changé muy sama nijaay Assane Diagne ak di sama jarbaat Codé Ba waaw di moom mooy nijaayu xale yi <laughs> Assane mooy sama nijaay mais Codé mooy nijaayu xale yi waaw tabaarakallaahu kon teg ci itam Assane Sow doonte ñëwul tey moom itam ci ustaas la ndax am nañ xam-xam laabir nañ ci te nangu nañ koo jàngale ay ati ati ati ati at kon loola yaakaar naa ni waa ji dafa wax ni dama dinaa ko dégg sax ñu di ko wax mooy lu lu lu lu lu lu yàgg lu yàgg dëgg la ma ne leen iblis yàgg na te du dëgg waaw iblis ku yàgg la moo ñii ñuy wax ñëpp iblis leen fi moo leen fi jiitu te du dëgg kon dañoo war a wax ni lépp lu yàgg te rafet dëgg la waaw lu yàgg te rafet dëgg la ma dégg ci maam Malick mu sëriñ Mansour borom daara ji yal na yàlla yokk leeram moom sëriñ Mouhamadul Mansour ak mbooleem ay mbokkam ya mu tëddal ci suufu Tiwaawan euh, moom maam ci moom laa njëkk a déggee mu ni ku lim doo juum da dul matal mm-hmm. xam nga dañ naan ku lim juum non doo juum doom da nga dul matal waaw te nag léegi su mm-hmm. nga ni lu tax diw tudd diw te tudd ma mm-hmm. looloo tax ñaari ñu bare duñ faral di lim mm-hmm. ngir bañ mbir moomu dal leen kon kodde yal na yàlla dolli sutura ci ndomba tànk yi leen takkal ndax yarfau llahu alladina amanu hmm? walladina utu walladina utul ilma minkum darajaat darajaat yàlla nee na may naa leen jox naa leen daraja yéen doomu aadama mais ci biir doomu aadama yi nag ñi ci am xam-xam tey jëfandikoo seen xam-xam ñooñu ñooy sangu askan wa kon yàlla na yàlla jàppale leen surtout xam-xam bi ngeen di joxe nga xam ni xam-xamu xaalis la ndax lii benn xarafu tur yàlla saa soo ñëwaan ci mag mën na la fa tey juróom-ñaari at nga di ko bayal suba ak ngoon ba juróom-ñaari at yi jeex mu oola jox la baat yu gàtt yu gàtt ah tey nag lépp tasaaroo ñoom ñu jàng ko ñëw di ko jox nit ñi nit ñi itam mën naa am am nañu ko ci fonk mais am na ñoo xam ni yomb gi mu yomb dana tax duñu ko fonke noonu ah nag lu waay joxe te yàlla tax yàlla dana ko fay ci mbaaxam man kaana lillaahi mm-hmm. kaana allaahu lahu mm-hmm. yàlla na yàlla fay lépp kon ñu bàyyi leen mm-hmm. alxasan bàyyi itam kodde su ko defee kaalidu moom itam moom itam nekk ci diggit bi Eh, laaj yeeg yi ñëw yëpp ak képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu ñu ngi lay nuyu di la ziyaare bàyyiwuñu kenn kenn loolu ñuy wax pour bañ a lim mais bàyyiwuñ kenn tabaarakallah yal na yàlla dolli xéewal di ñaanal nag Assane Assane Diouf male Assane Diouf duwaañe oh na ko yàlla dolli xéewal dolli ko wér ku baax la nag ku baax baax la yal na yàlla dolli ko xéewal yal na yàlla dolli ko wér ak ay tàntaam mm-hmm. soxna yaande mm-hmm. ak soxna astu juuf ñoom ñëpp mm-hmm. di ay ay ay tàntaam lañu ñu baax lañ lool kon yàlla yàlla may leen wér may ko bu baax a baax a baax Assane Diouf may ko képp ku feebar yaa ngi ci biir ak a ah, wallaahi ndeysaan ak ku ñuy wax alxaaji Lamine Sow Lamine Sow ko gën a baax yaakaar naa bariwul a am. Lamine saw la xawla wala nit ku baax a ngoogu tëllaay bi. yal na yàlla dolli ko sutura moom itam kon. bismillah aouzu billahi min asheytaani rajim. bisimilahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammad rasulullahi salallahu alayhi wa sallam mbokk auditeurs u RMD. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ne ko sëñ waxe léegi rek dafa fekk ne mënuñu lim ndax bu nu limee du nu matale. Mhm. kon képp ku ñuy déglu rek ñu ngi lay nuyu. waaye nag ma sepp ci sama waa kër tàmbalee ci sama soxna di ko nuyu di ko ziare bu baax a baax euh, soxna Aram Diop ne ko wax nu xale yi def macha allah. di nuyu wa kër ga ñëpp bayuma kenn di nuyu daayira mutahabbina fillahi junior bi nek ri 37 angle 26 ak senior yëpp di nuyu wa daara nyep, ñëpp bayuma kenn di nuyu codément bi ma bokal mm, studio bi mhm. ñu fas yéene fanaan mhm. nuyu Kalidou gay borom arash mhm. nuyu Masay ndiok <laughs> président nuyu ñëpp rek sha allah nuyu ñëpp da fekk na ñi leen mëna tuddu tudd tax ñu tuddu leen mais ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaw ba ci kanam tuuti wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Eh, mbokk Daara Fajtal ñu ngi nuyu Daara ji yëpp nuyu auditeur rajo municipal Dakar eh, di ñaan yàlla réew mi yàlla def fi jàmm. Ah, lépp lu ñuy ragal ci loo xamante ne bu duggee ci réew mi mu jur safaan. yàlla na ko fi yàlla yàlla na ko yàlla dogale bu mu agsi Eh, di nuyu sama waa kër nag sama sama jabar Mbajo ñoom ñoom Lamine Ba ñoom Ahmed Ba sëñ eh, di nuyu waa Ritre ñoom Malick Cissé ñoom Bora ñoom Lamine Mbaye ñoom ñëpp dem ba euh, poste Mol 1 nuyu Cheikh cain waaw nuyu Lamine transitaire Cheikh Thiagne naa ko nuyu Ali nuyu Canta di nuyu Oustaz di nuyu mbay di nuyu Kéema maa ngi nuyu gaa yëpp maa ngi siyaare ñëpp di nuyu Père Léo di nuyu Mbay sama goro Mbay Gay di nuyu grand Younous ziar bu baax. jërë ngeen hmm. jëf macha allah. Hmm. waa jërëjëf sëñ Codé kon incha allah rabbi ci kàttanu yàlla ñu fas yéene dugg rek ci liggéey bi. Hmm. Ah, di ñaan yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp. boo ko defee ñu tàmbali ndànk rek ci li li xew ci jamono te lëmbee ci jamono ji. Euh, te xaw a sonal ñenn ñi ah, ñu di ko tuddee euh, coronavirus xaw ma ah, di ñaan yàlla yàlla na ci yàlla musal Sénégal ci kàttanam ak mbaaxam waaye tamit euh, ñu joxe benn muslaay boo xam ne rek ci kàttanu yàlla incha allahu rabbi ku ko jàpp te bàyyiwoo ko bu neexee yàlla yàlla dina la musal ci yu mel noonu muy dangay dem ba ci defe naa Ali Imran la nekk de allazina qaala lahumu naas إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل nga def ko 450 fois euh bu ko defé bu booba àggee nga tek ci fan xalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasu suun wa wataba wa wa wabtaxu ridwanallahi wallahu zu fadlin azim nga def ko juróom-ñaari yoon li dal ku ko saxote te bàyyi woo rabbi yalla dina la musal ci eh, lu melni muslay la pour lepp lepp lepp lepp ah, do fa yam tamit da ngay def sa bo julle farata bu ne soko mene nga jang ya daimu 33 fois bolo kok di jang li suba ak ngon ay bi bu ne xal inshallah allah rabbi lepp luy mbass mo xam luy lore inshallah allah rabbi ci katunu yalla yalla na ci musal ba du dal ak képp ko ci yéene nag. Mhm. leer waaw ñu dem ci bagages yi bisimilah. Euh, xam nga bi nga dalee julli ba léegi. saay boo jullee ba pare. di nga ne subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar. laa ilaha illallah wahdahu laa sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mhm. yaa ngi julli. kii mën naa faj sa aajo. ci boo amee aajo nag da ngay da jël dog bi nga dagg ko xaatim mm-hmm. mu jox la daf lay jox euh, euh, nu mu tuddati euh, laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu daf lay mm-hmm. jox 3267 nga dagg ko mu musallas mm-hmm. mais ci xut bu musallas bi musallas kunti yu lay nekk ci digg xaatim bi al mulk moo fay nekk waaw nga réyal mii mu mulk bi dugg adat sa ajo bi dugal ko foofu julli nga suba ba pare mm-hmm. nga jël sa kurus subhanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah subhanallah bu ci nekk fanweer ak ñett mm-hmm. bu xam nga da ngay indi nag laa ilaaha illallah wahdahu laa sharika lahu lahul mulku wa la hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kooku nag da nga koy sikkar quatre-vingt-dix-neuf fois boo paree nga teg sa baaraamu joxoñ bi ci digg xutbu xaatim bi fi nga dugal sa aajo bi uh-huh. nga wax aajo bi Assane Diagne boo yeewoo uh-huh. ñu woo la ne la demal ci wari bi wala demal ci orange mu ne <laughs> macha allah moom duggee moom <laughs> moom damaa reegul yaram bi tàng na <laughs> macha allah yàlla ci yàlla def barke sabab ci njaboot gi euh, euh, borom kër njaboot la doom njaboot la frère njaboot la sœur njaboot la su leen yàlla nattoo ci nattu yi may bëgg a wax ki nga xam ne day jëfandikoo ndox mu wex kaani googu ndox mu xam ma sax dafa wex kaani am déedéet man mosuma koo ñam. <laughs> boobal la <laughs> ndox mu tàng bi ni wax noonu li ñuy wax sàngara. <laughs> waaw. bu la amul suukar ah man naa ne daal suukar xaw ma na kaani am déet waaye daal amul suukar moom. daal laajte nañu ne amul suukar. amul suukar moom kay ku kay ku kay yàlla na too. man damay gis ñuy ñi ñoom. waaw ñoom dañuy moo tax ñuy waxtu parce que loolu eh, ah, eh, cerveau bi lay attaqué comme kaani rek boo ko lekkee mu attaqué cerveau waxantuma la ak loolu cerveau bi lay attaqué complètement bu ko defee nag ñu daal di am problème te nee nañ boo sampee puso ci kaasu sàngara nga màcc puso boobu yàkki naan butéel a yem noonu la leen di àttee kon jar naa moytu ku ci yàlla nattu sa mbokk nga bëgg ci kàttanu yàlla yàlla dimbali ko ba mu bàyyi ko moo xam naan sàngara wala tux cigarette wala moo xam kuy mooy koo xam ne daal xol bi daal maanaam xel mi daal xol bi yàqu na complètement ci yu mel noonu topp bakkenam soo ko ci bëggee dimbali da ngay bind yaa ayyuhal lazina amanu innamal xamru wal maisiru wal ansabu wal azlaamu rijzun min amali sheytaan fattanibuhu laallakum tuflihun nga bind loolu ñetti yoon nga teg ci innama yuridu sheytaanu an yuqiqa baynakum al adaawata wal bagdaay fi l xamri wal maysiri wa yasuddukum an zikri wa an salaati fal hantum muntahun boobu aussi nga teg ci bind ko ñetti yoon غاتك واتي الله واتي الرسول فان توليتم فعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين مام تام نيت يون غا ان نك يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد نيت يون غا تك اللهم ان اسالك بحق اسمائك واياتك العظام وايه الكرسي ان تنزعه وهب الخمر والزنا والربا وجميع المعصية الله آه، عن قلب بن عن قلب فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان كوكو بوكو دافع نتجاك بن برو صلاة الفاتحة كت مام تبا بام بجا خسر نان دون تبن بب بن توك ولا أم ولا بن غوخ لا أم بنا خيال إن شاء الله ربي yàlla day dox ci digganteem ak loolu dina ko bàyyi dina ko raxas ci xol bi ba mu set wécc dootul naan sàngara dootul tox cigarette dootul njaalo ci kàttanu yàlla incha allah rabbi hmm, ci kuy kuy kuy def yooyu kuy jëfandikoo yooyu hmm, hmm, loolu solo incha allah ba tey ñu ñëw ci euh, laa yasmaoona fii à laxwan illa salaaman waaw boo ko addatee da lay jox 1944 boo ko divisé par deux da ngay am ñaari ixlaas ñaari 972 ngay am waaw léegi nag da ngay sikkar ixlaas boo defee sa ñaar ñaari sa la salaatu nuur boo sëlmalee nga indi istixfaar juróom benn salaatul faatihi juróom benn fukk ak juróom benn nga sikkar ixlaas boo paree nga indi laa ma una fii à laxwan illa salaaman la yasmoona fi à laxwan illa salaaman boo paree nga sikkër suraaxu wadudu xaysu 1701 wallahi azim wal yow du yow def ko rek macha allah macha allah ba tey ku nekk ci néegu sëy xam naa jigéen ñi lañ ko faral di jiiñ waaye lu ci ëpp tamit defe naa du ñoom dugg nga ci néegu sëy xëy na bant amagul te bëgg nga yàlla may la bant ndax mooy taaral sëy bokkul nag ci contrat bi waaye mooy taaral sëy kooku dan ne boo bëggee yàlla may la doom da nga jël soratu taxrim defe naa fukki aay ak ñaar la su ma juumul hmm. euh, mais da nga koy bind nag ci ñetti këyit nga koy bind suraat bi yëpp mu jeex mais baada kulli aaya maanaam boo bind yaa ayyuhan nabiyyu li ma tuharrima ma ahalla allahu laka tabtaghi mardaati azwaajika wallahu ghafurun muy benn aaya da nga teg bi taaha wa yaasin ya xalim fa kun lana wa taasin mim bi saadati aqbalat moom nga ci dugal ba saar bi jeex nga bind ko ñetti yoon ah, takkal incha allah rabbi bu neexee yàlla ci kàttun yàlla yàlla dina la may takk ndeer mm-hmm. bu neexee yàlla incha mm-hmm. ba tey ki ne ci xat-xat képp ku nekk ci xat-xat jëlal lii nga koy wérd kulli allahu yunjikum min fa wa min kulli karbin mais dang ci sof fayaksifu ma tat on ilahi insha a fayaksifu ma tat on ilahi insha mom nga ci sof xolal lim bo xamne rek yow mun nga ko saxal nga ko ci def ya xam jooni la jooni bi mom jooni jooni la xat-xat bo meuna nek la la wax billaay fayaksifu ma tat on ilahi insha a lu mu mënti doon ci kàttanu lu mu mënti doon ci kàttanu yàlla lu mu mënti don rabbi yàlla da koy da koy da koy waaw Euh, Yacine ñaata miim la. 306 306. waaw soo bëggee yàlla tàggatal la li la jafe woon lépp. ba amaana dara dootu la jafe ci sa àdduna. dangay ngay bind soratu Yacine. mais miim boo egg da nga koy yaatal. dugal ci biir musallasul xazaali yu. la ko wax adadu 1440. naroo jàmm. ni ñu koy bindee mooy 1440 da nga ci moye 4 rek. moo musallasul xazaali yu noonu la 1440 nga moye 4. nga duggé 1136 1137 1138 1139 baytu xudd ba nga bind ci musakharun moy japp 1140 waaye mimu musakharun bi dang koy yatal boko ko nga bind ci 15910 15910 moy japp ben. bo jëlé 306 bobu ñu wax multiplier ko fois 45 daf la jox 13770 nga ci 700 muy jàpp bu la neexee nga jël rabbi habli maalan jazilan bi xaq mikaayil kulla yawmin wala nga jël wa ma nasru illa min indillahi moom itam boo jëlee 700 yooyu boole ko ci jël bi ni wax matasun 1440 boo dajalee ñetti lim yooyu daf la jox 15910 nga dugal ko ci miim yëpp ba yaasin bi jeex bul sangoo takkal rek bul zikkar takkal wala nga def sa poche incha allah rab bu neexee yàlla lépp lu la jafe woon ci sa àdduna mm-hmm. dina yomb yàlla na la tàggatal lépp mm-hmm. ci kàttun yàlla incha allah incha allah ba tay ñu ñew ci da ngay def ñaari rakka gannaaw ba nga jullee gee ba pare mhm. nga def ñaari rakka rakka bu njëkk bi nga jël wa ba jaddaka an ilan fa akhna 175 bo paré nga tek ci wa amma sa ila fala tanhar 175 astaghfirullah 175 salatul lumi 175 bo paré nga wird bismillahir rahmanir rahim 3850 mhm. bo paré indi suma afidu min haisu mo japp mo japp 3850 boo paree eh, su ma afiidu min haysu afaada naasi wa astaghfirullah mhm. day àgg mhm. su ma afiidu min haysu afaada naasi wa astaghfirullah mhm. cinq cent cinquante boo paree nga teg ci yaa musayiru yaa mus mu yassiru yaa mu yassiru cinq cent cinquante indi ñetti petu salaatul faati yi nga xool yow ndax yow di nga tàggoog xaalis dedet, dedet, dedet déedéet ci tegal dana ñëw dana la jox waaw déedéet daal ci tegal <laughs> <laughs> ku yalla dogal nga yor mbir bëgg ko jaay mo xam kër la moo xam place la moo xam lu mu manti doon nga bëgg mu jar ah, ci kàttanu yàlla da ngay bind fukki miim ak ñaar miim mim ñi ngeen koy bir arab nii miim moom ngay bind fukki yoon ak ñaar yaatal ko ah, li nga bëgg a jaay nga def ko ci biir miim bi boo paree nga teg ci sa àll saa ilun nga teg ci fa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaluuna ñetti yoon nga teg ci wa fi zalika fal yatanaafasil a ñetti yoon nga teg ci wa jaahu qawmahu na ilayhi ñetti yoon nga jël nag loolu nga bind nga def ko ci place bi nga bëgg mu jar moo xam kër lu mu manti doon nga def ko fa xaaju guddi gi nag fii nisfi leyli nga zikkar fatihatul kitab 1034 inshallah rabbi bu nexe yalla legi mu jar ci katana fatihatul kitab waaw 1034 hmm. mom ngay zikkar xaaju gudi xaaju gudi waaw fekk def nga la ci bir euh, place boobu ba pare hmm. inshallah rabbi bu nexe yalla hmm. dina jar ci mu gëna gaawé waaw ba tay ñu dem ci da ngay def fatiya ben, indi kursi ben. fatiya ben indi lahat jaakum kursi juroom ñaar lahat jaakum juroom ñaar nga selmal nga jël sa kurus wallahu yahsimuka minan nasi xas 744 xasbuna laa wa nihmal wakil 744 boo paree nga indi indi ustu bi rab rabbi wa rabbukum min kulli mutakabirin mm-hmm. laa yuminu bi yowmil xisaabi mm-hmm. nga sikkar ko ñetti yoon bu fukk ak benn yaa xam incha rab bi yow kaaraange nga foo tëdd nelawal macha allah incha allah rabbi euh, ki bëgg tukki moo xam parce que tukki moom en général bu ñu waxee rek ñu bëri na yaakaar bitim réew waaw defe naa ko de te man nga jege région dem région yàlla ubbil la fa xéewal mm. man nga jege sax département dem département yàlla ubbi la fa xéewal man nga jege arrondissement dem arrondissement yàlla ubbi la fa xéewal kon tukki du bitim réew rek mhm. mën nga jege par exemple Tivaouane ñëw Dakar wala nga jege Dakar sax dem Petit Mbao moo xam tukki la bu fekkee da nga fay dëkk wala nga defa uti dara yàlla mën na la koy yombalal ci kàttanam incha allah rabbi mhm. euh, da nga julli ñeenti rakka rakka bu njëkk ba ginnaaw fatiha soroto Qurayshin 15 ñaareel ba fatiha quraychin 16 ñetteel ba fatiha quraychin 17 ñeenteel ba fatiha quraychin 18 nga taaye sëlmal nga jàng fatiha ba ci iyyaka nasta'inu nga taxaw foofu nga dugal fa quraychin di fois nga eggale fatiha bi julli ci yonante bi sallallahu alayhi gis nga lii waxuma la sax tukki waaye lépp looy lijjanti ji ci diggante nit ak nit lépp looy lijjanti ji lu mu mënti doon moo xam visa la lu mu mënti doon looy lijjanti def ko bala ngay dem nga xool incha allah rabbi yàlla incha allah incha ba tey addu oon yi astajib lakum hmm. ñaan leen ma ma may leen la in shakartum la azidanakum sant leen ma ma dolli leen boo leen boolee da ngay am 2840 2840 hmm. bii ngay sikkar alhamdulillah 2840 hmm. boo paree nga indi allahu karimu kabiru allahu karimu kabiru allahu karimu kabiru yow ñàkk toxu naag yow ñàkk ilaa yow mi yëpp asoona yaa ñàkk pare ngeen ay boo mu nee xaatim nag mu sallas samedi ci suba nga daaj ko ci biir Ousmane na dana la waree xaalis bu bëri ci lu wér a wér a wér bu ko defee ñi bëgg soxna walla ñi bëgg boroom kër eh, ci kàttanu yàlla incha allah rabbi amaana bu nu liggéey lii yàlla may leen ko Euh, euh, jafewul dangay bind fatiha dangay ah, da ngay zikkar fatihatul kitab benn yoon nga zikkar astaghfirullah téeméer salaatu ala téeméer nga def ko addiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba pare nga teg ci baat bi di jum tata tam xahum jum tata tam xahum euh, jiim bi jege ci jumaat yi suratu jumaat yi jiim ba leen jël miim ba munaafiquna taat tànk ba waaw taa tombe di taxaabuni taa tànk ba di talaq ñaareelu tatombe bi di taxrim miim ñaareelu miim gi di mulk xaaf bi di xalam xalonk bi di xaa bi ne wax xàqa miim bi di maarij lii ngay liggéey jum tata tam nga liggéey ko 1040 quarante defe naa mooy jàpp euh, aaya bële euh, nu bi nga wax léegi moom mu yóbbaale wa fawidu amri ilallaahi beneen ba déedéet beneen bala defe naa de beneen bala de su ah waaw waaw waaw mooy jàpp mille quarante waaw voilà mu ngoog wa fawidu amri ilallaahi inallaaha basiirun bil ibaad mooy jàpp mille quarante waa kay mu ba tey di fukki samadu waaw boo ko ci jàngee ba pare daal nga teg ci allahumma inna as'aluka bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa bi hurmati hazil ism an tu'tiya ni zawjatan wa sharifatan mu'minatan jarna nyan wa tayatan amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya rahimin wa soxna su bax wax deug yalla su su bu bu bu bu yek bu japp bopam bu gem yalla koku jarna ñaan te jamono juñ toll ni yalla nako yalla may célibataire yep bi sallallahu alaihi wasallam bismillah batay so jeye laye ji moy sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatu arduha ka ardi samaawaati samaa i wala ardi boo ko addatee dafay jox trois mille cinq cent quarante trois mille cinq cent bi boo ko diviser par quinze quinze mu jox la deux cent trente six muy kun fa yëkkoon yaa ngi def istixfaar nga indi basmala la mille cinq cent quarante nga indi la boo paree nga indi aay bi deux cent trente six moom saabixu ilaa maxfirati min rabbi min rabbikum wa jannatu ardoha ka ardi samaa wal ardi nga indi ko 236 boo paree nag nga jël rabbana ansil alayna maa idata mina samaa'i mm-hmm. takulana idan li awalina wa axirina wa ayatan min ka warzuqna wa anta xayru raziqin mm-hmm. nga sikkar ko 236 mm-hmm. mais boo koy boo koy liggéey nag bàyyil ba weeru olof bi teru bu weer wu teroo ci guddi gi nga liggéey ko booy jàng aaya bi rabbana ansil alayna da nga naan jàkk weer weer wi mun a dàng ci asamaan si doo xef wallaayil azim Assane Diagne noo xa xool Assane Diagne yu ñu yu ñu agrafé yooyu di nga ko jot maa la ko wax nga wax aywa ki yàlla may njaboot hmm. nga bëgg ñu jub tegu ci siraatal mustaqim wala yow sa bopp nga hmm. bëgg yàlla teg la ci siraatal mustaqim hmm. ah, bindal lii bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamina muy benn ay ci fatiha nga teg ci allazina amanu walam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum nga jël arrahmaani rahim nga teg ci wa tilka hujjatuna ateenaha ibrahima ala qawmihi narfau darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim indi indi maliki yawmi dini nga teg ci wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadayna wa nuuhan hadayna min qablu wa min zurriyatihi daawuda wa sulaymana wa ayub wa yusufa wa musa wa haruna wa kazalika najzi lmuhsinin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyaasu kullun min as-salihin يهدنا الصراط المستقيم واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين صراط الذين انعمت عليهم ومن ابائهم وزرياتهم واخوانهم واتبعناهم وهديناهم الى صراط مستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون léegi Fatiha jeex na laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullah أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين لا إله إلا الله محمد رسول الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا إله إلا الله محمد رسول الله والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لا إله إلا الله محمد رسول الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيز لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما رأينه اكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم لا إله إلا الله محمد رسول الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير الأنخر مساومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك أبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم للنفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير حرير لا إله إلا محمد رسول الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه حليم غفورا لا اله الا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم bindal loolu رخص تك joxal ku la neex سانغو yàlla ubbi ko tek ko ci siratul mustaqim bakkar ak muy faatu. est-ce que lolu am na solo macha allah muhammad rasulullah commencé dimanche. nga alhamdulilahi rabbil alamin 129. la tudrukul absar wa huwa yudrukul absar wa huwa latiful khabir 129. ya suqa nuqilu 129. latif 4444. dam dam waaw altine nga jël rahman rahim 129. inna rabbi latifun lima yashaaw innahu alimul hakim 129 yaa suqaniqilu 129 waaw suqaniqilu 129 mm-hmm. mm-hmm. latif 4444 maliki yawmi diini talaata mm-hmm. alam tara anna allaha anzala min asamaai maan fa tusbihul arda maxdara maxdaratan inna allaha latiful xabir 129 yaa suqaniqilu 129 latif 4444 ñëw الله إياكنا حبل وياكنا سين سان يا بنا يا إنها إن تكون مسخالة خبت من قرل فتكون في سخرة أو في سماوات أو في الأرض ياتي بها أكمن داو سودم إندلا يا سوق نقلو تخو ماجو يا سوق نقلو سان فين نف يا الله تفكر من كسا كارك ما شاء الله غنيو الخميس إهدنا صراط المستقيم سان أذكرنا ما يطلع في في بيوتكنا من آيات من آياتي والحكمة إن الله كان لطيف خبير 129 يا سوق نقلو 129 لطيف 4444 ما شاء الله نيو اجوما صراط الذين صراط الذين انعمت عليهم 129 الله لطيف بإبادي يرزق من يشاء وهو خوي عزيز 129 يا شق نقل 129 يا لتف 4444 نيو يوم السبت خير المهدوب عليهم ولا دال 129 الله يعلم من خلقه وهو لطيف الخبير 129 يا شق نقل 129 يا لتف 4444 اوتال نيانو لطيف بوكو بولل باخنا لي دي بو سي توغي كين دو لاي رب kenn kenn du la yërëm. macha allah que yàlla na ci yàlla def barke amiin yaa ah, tàmbali bi moom neex na lool. Euh, ñu dugg ci li wax sayful awliyaa hmm? hmm. li kulli xaajati. sayful <laughs> awliyaa li kulli xaajati. aajo am dara du macha allah dara du amul lu la fay tara ci kat yàlla boo ko liggéeyee. est-ce que. kii waxuma sax aajo mais koy saxoo chaque jour. Hmm. waa incha allah rabbi gisatuma lu lay lu lay gàllankoor ci sa dund ci kàttanu yàlla yaa salaamu ngay jël trois cent yaa salaamu trois cent yaa mu aminu trois cent yaa qaxaaru trois cent yaa qaadiru trois cent yaa xafiizu trois cent yaa cent suratu ixlaas ñett salaatul fatixi ñett waaye nag foo jàngee tur bu ne maanaam boo waxee yaa salaamu trois cent da ngay jàng allahuma sakkin sadamatal صدمة القهرمان الجبروت بالتافك الخفية الواردة من باب الملكوت حتى نتثبت بأزيال لطفك وتعتزم بك من أنزال قدرتك يا ذا القدرة كاملة ورحمة العاملة يا ذا الجلال والإكرام waaw ñaan gi gudd te neex na foo defee tur yàlla bu ne rek loolu nga ciy teg même boo jàng bu eggee bu tur yàlla jeexee nga teg ci ñetti ixlaas ak ñetti salaatul faatihi aajo booy lijjante ji doxal moo hmm. lijjantewul benn aajo toogal loo soog mu sotti ci kàttanu yàlla incha allah rabbi ah, maa la ko wax waaw waaye di taxawal bëgg mu am barke bu la ci boolee barke bi dugg ci ci kàttanam <laughs> incha allah rabbi <laughs> est defal ñaari raaka hmm. inna allaha wa malaykatu gannaaw sal gannaaw faatiya hmm. inna allaha wa malaykatu na ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima moom ngay sikkar ci ñaari raakaay bu ne quatorze fois boo paree nga indi istixfaar nga jël saraatul faatih 92 laa ilaaha illallah allahumma yaa rabbi salli ala muhammadin mm-hmm. rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada mm-hmm. mm-hmm. yaa allahu yaa waaxidu yaa ahadu yaa samadu allahumma salli ala rahmatan lil alamina muhammadin am nga dépense yàgg na. ci lu wér <laughs> ci lu wér ci lu wér ñu duggaat ci latif bi nga doon wax sànq latif yi ñu ngi ko tudde latiful hamdi hmm. maanaam boo jëlee cent vingt neuf dar bu ko ci cent quarante huit hmm. mu ngi lay jox dix neuf mille quatre vingt douze hmm. li koy liggéeyee mooy am nay charte nag ah ba ca gënoon nga bañ a lekk lu am ruux wala lu ci jege moo xam jën yàpp nen yu mel noonu ba ca gënoon sax mooy boo mënee nga woor ko juróom-ñaari fan mooy la gën soo ko mënee boo koy liggéey nga woor ko hmm. juróom-ñaari fan ni nga koy liggéeyee nii la ci kàttu ne yàlla incha allah rabbi da ngay euh, commencé ci bisimilahi rahmaani rahim 129 alhamdulilahi rabbil alamin ba mu jeex 129 allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yashaa huwa alqawiyul aziz 129 ajib yaa mikailu 129 nga jël yaa latif 1992, so paré nga jël première aya latif bi nga bind ko nan ci sangu ci mais da ngay desal hmm. da nga ci nan sangu desal lal sa ëlëk sa nga liggéeyaat ligéy bi bindaat ñaarelu aya bi nan ci desal ñettelu fan bi kazalik bi juroom ñaari ay yépp mat yeneen juroom ñaari fan yi ci top do zikar la desone juroom ñaar juroom desid desid yooyu nga dajalawon mm-hmm. sa bo boo da nga ci sangu rek raxé ben kamil ba juróom-ñaari fan yi mat ko wax alhamdulilah nga wax alhamdulilah ku waxul alhamdulilah nga wax alhamdulilah tëlewul dara waaw jaaj latif <laughs> eh, waaw ba tey ñu ñëwaat ci dépense de mm-hmm. Mm-hmm. julli nga suba ba pare mm-hmm. ubbil soratu xuraysin li ilaa fi cent onze xuraysin cent onze ilaa fihim cent onze ëllësi almaalu fiddatu 111 allazi an euh, almaalu cent fiddatu 111 yow sa dépense pare na mhm. beneen jour la ñuy wax macha allah dépense pare na ñi bëgg kiis ñuy wax euh, renforcement mémoire la xam nga yéen jàng du ngeen koy tuddee waaw wax nga dëgg de waaw da ngay bind faatiha ñett qul allahumma maalikul mulk ba mu jeex ñett shahidallahu ba ci azizul hakim benn yoon inna allaha ma allazina taqaw wallazina hum muhsinuna benn yoon salaamun qawlan min rabbi rahim benn allazi xalaqani fa huwa yahdini wallazi huwa yutimuni wa yashqini wa iza maritu fa huwa yashfini wallazi yumituni summa yuhyini wallazi at'amu an yaghfira li khati'ati yawmiddin rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin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 يمنون عليك أن أسلموا فقل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بنيون كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق بنيون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بنيون إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناهم في إمام مبين بن ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين بنيون ربي زدني رب لا تزرني فرا وأنت خير الوارثين nga dokkeet ya tak rabbi anzilni munzalama barakan wa anta khairul mazilin Soto yon sotu soto sotu Nasri nyat. wa taxiyaha usnun ya ben. Mhm. bu loolu jalle nga bin ikhlas ñett mhm. tak ci sonu nuqur ko falatan saa jurom ñaari yon qul idu rahman ayyan ma tad'u mhm. ba ci takbira ben yon nga tëje ko salatul fatihi euh, ñetti yon so paree ci lepp nak bo amé ak lem nga def ci leb mu jox ko bu fekkee ne xale la na koy jël bisub àllarba waaw suba teel bala muy lekk dara bu dee mag guddee aljuma la koy naan te du fanaan ci lal du tëdd ci kaw la ci suuf lay tëdd. bu ko naanee waaw bu dee mag guddee aljuma la koy jël te ci suuf lay tëdd bis boobu day wàcc lalam. day wàcc lalam day wàcc lalam gis la de sëñ waaw day wàcc lalam de bu tëddee ci kaw moom du dox. Hmm? waaw bu dee xale àllarba cuuy bala muy lekk dara. bu dee mag nag su ko jëlee. Hmm. du fanaan ci kaw lal bi ci suuf lay tëdd day lal sër ci suuf tëdd ci fanaan. kii kiis la de hmm? ba tey uh, nga am aajo suba dina ci baax muy aljuma ji boo jullee suba yaa ngi sikkar allahuma salli wa salim ala nabiyina muhammadin 1041 tisbaan 1041 takkusaan 1041 timis 1041 gee 1041 samedi aajo bi faju na macha allah samedi bi faju na lii yëpp teg teg la teg teg teg teg teg teg waaw xam-xam moom da nga koy gëm rek teg teg ndax salaay salaama ah. moo ne xuus minal quraan ah. maa ci ita ita kon da koy gëm rek jëf ñi gëm lay waxal de waaw wallaay wallaay wallaay mhm. ñi gëm rek la yàlla waxal. moo tax ku mel ni Malick Ndiaye nee na mu ngi leen di suivre. waaw Malick koy nuyu bu baax ak ñoom Cheikh Tidiane Niass. ñoom ñëpp eh, waaw eh, waxal na ko. ngi fi woon sànq. waaw ah, ah, mu ngi fi ñëw na tey jarbaat maa ngi profité nuyu sama wëlëre sëñ Baye Guèye. Mm-hmm. maa koy ak Cheikh Tidiane Diouf Wokam. <laughs> waaw waaw Cheikh Tidiane Mamour Faye. ndeysaan waaw waaw waaw waaw. xanaa waa mbaaw la mu. Marie Diarra macha allah way macha allah di ñaanal ñëpp rek lu fi waay jël rek yàlla na ci yàlla barke mm-hmm. euh, nu mu tuddati mm-hmm. Assane Faye góor gi góor gi Assane Faye Sembène ah Cheikh Tidiane Sembène Sembène waaw sa waa waay la sama koy nuyu de passage bu fekkee mi ngi déglu incha allah rabbi gaa yi am xam-xam la waaw am nga xew mu ne këtt na jonn bett na la mm-hmm. maanaam na des nag minimum une sa euh, trois jours minimum na des trois jours na des trois jours wala quatre jours ni ngay def mooy da ngay bind bisimillahi baatu bisimillahi téeméer hmm. arrahmaani téeméer arrahimi téeméer boo pare nga teg ci bisimillahi rahmaani rahim jumla bi téeméer yooyu ngay boole euh, mu nekk ñaar benn bi donc boo ko mënee bind ci àll bi baax na nga raxas ko naan ci ba doy lis des nga sangoo ko benn bi nga suul ko fi xew bi war a am léegi nag ñetti fan yëpp bis bu ne da ngay zikkar bisimillahi rahmaani trois 300 fois Euh, ba mu nekk ñetti fan même heure bu nee nekk même heure su mënta nekk même lieu mën a nekk même heure maanaam tey nga ko commencé ci heure bii bu subaa ci heure bi na ko liggéey bu ginnaaw subaa ci heure bi na nga ko liggéey bu neexee yàlla incha allah rabbi yàlla dina la xettali ba nga tiit sa bopp. Hmm. waaw incha allah. macha allah ba tey boo bëggee falu. Hmm. saxal ci rek kulli allahumma malikal mulki. tuxtil mulka man tashaa hmm. laay ji 66 fois chaque jour moom ngay sikkër waaye ñaan gii nga koy tëjee. allahumma yaa malikal mulki. tanzihu mulka nga tudd turu ki nga bëgg fole folle ki nga bëgg fole folle hmm. turu ki nga bëgg a hmm. wa tuisu nga tudd sa tur wa tuxtil mulka nga tudd sa tur hmm. bi yeddikal xayru innaka ala kulli seen xadir kooku dañ ko fole nga falu yow dañ koy folli nga falu <laughs> kor mbaacoo tey ñu dugg ci soraaku wa duud dafa naa sa waa na ko sànq di ko ba ñu tudde ko faydatu fi sur jam li jalbil amwaali wal arzaq wal baraka wal fath aha wa niama wa hiya antu salli da nga julli ñaar rakka al ula fatiha ak suratu alam nasrah ñeent fukki yoon ñaareel ba fatiha isa ja an ñeent fukki yoon nga sëlmal nga def astaghfirullah téeméer salaatul ummi yi téeméer nga jël bismillahi rahmaani rahim 313 allahu batadun allahu zahajun allahu waahun 243 <laughs> ba pare nga tekki waa mooy jàpp jamara <laughs> mooy jàpp reex la ta <laughs> pare nga tekki suratul waaqi a juróom-ñaari yoon nga jàng nag tur bi ci boppam suraaku wa duuda ayshun 1701 ba pare nga tekki allahu akbar takfa luushin yaa ngi koy jàng 243 moom itam alhamdulillahi xaqa hamdihi 313 alif lam mim allahu laa ilaha illa huwa alxayul qayumu 484 ñaana lu la neex ñaana lu la neex moo day dem ñaanal lu la neex laa wax lu la neex ñaanal boo paree lu la neex ñaanal maa ko wax <laughs> lu la neex ñaanal lu la neex rek ñaanal waaw lu la neex ñaanal ci kàttanu yàlla incha allah suraaxu suraaxu lu la neex ñaanal suraaxu am na ñu ko tuddee bi wala yadan bi yadin waaw mi ngi noonu mooy mooy fanweer ak benn waaw yadan bi yadin san fanweer ak benn garaaw na de ah dem xam na ci dara nag ah dem waaw waaw mais du ko wax am na problème dem am na problème waaw nee na nga julli ñaari rakka mhm. rakka bu njëkk bi gannaaw faatiya nga indi xuraysin mhm. juróom ñaari yoon beneen bi kawsara nga indi astaghfirullah téeméer salaatul ummi téeméer bismillahi rahmaani rahim 313 suraaxu wadudu haysu 313 ahamu saako xalaxo yasu 313 indi ñaanam gi allahuma inni asaluka risqan waasi an xalaalan min xayri taabin wala masfatin mashafatin wala duurin wala nasabin innaka ala kulli shay'in qadir nga indi ko ñetti yoon indi ñetti per salaatul faati yi toogal ci lii ay bàyyi leen tur yi ngeen di jaaba njalle toog leen ci benn tur ba mu nooy. wax dëgg yàlla ah wax dëgg yàlla. ah toog leen ci mu nooy. wax dëgg yàlla lay. waxte de boo ko mënee dawal di nga boo ko bëggee dawal di nga ci. laay di nga ci sonn di nga ci sonn. wallaay wallaay. wa is axasnaa miisaaxakum wa rafanaa fawqakum tuur xuzu maa ateenaakum bi quwwa wa innal quwwata lillahi jamian fa xuzuhaa bi quwwatin xuzu maa ateenaakum min quwwatin mastataatum min quwwatin kaanu ashaddu minkum quwwa wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum qaala inna li bikum quwwa <laughs> min quwwatin ma sha allahu la quwwata illa billahi fa ayinuni bi quwwatin yaa yaxya xuzil kitaab bi quwwatin <laughs> wa qaalu nahnu ulu quwwatin bil usbati wa ulul quwwatin kaanu ashaddu minkum quwwa wa asaaru min baadi doofin quwwa hmm. summa jaala min baadi doofin doofan ashaddu minhum quwwa yaa qawiyu yaa qawiyu bu la hmm? neexee nga boole ci xaatim bi nii bu la neexee nga bind ko noonu noonu rek neel comp as xorom rek ne ko ci pëyi rek naan. mais kii soxna si du mer. Ah? soxna si du mer. Ah, soxna si du mer mukk ilaa yawmi din ci kaw lal bi. Ah. du la jéppi mukk ilaa yawmil qiyaamati. parce que bu nelawee sax nga ko Ah, waaw la ko la mere jamais. est-ce que hmm? jamais cim yàmbar bi. xuwa yi bëri na de. doo ko dégg mukk. déedéet cim yàmbar bi. doo ko dégg mukk xuwa yi bëri na de. doo ko dégg jamais de la vie. moom kay macha allah danaa xam nga fu mu mujjee ak yow. Mhm. nijaay bàyyi mu utal la ñaareel. ndax mënatuma laa supporter. kaw lay mujjee lay mujjee wallaay de ci lay faj. Hmm? su ma ko sa ci lay faj de. ah. Mhm. kooku la. ah itam borom borom borom dagana. borom dagana. Hmm. ah moom sëriñ la léegi moom. sëriñ bu mag la macha allah. waaw eh, bisimilah. Mm-hmm. Eh, xam nga damay wax ak uh, sama benn wóolare. sëñ Baye Gueye ma ne ko sëñ Baye Gueye. aay mm-hmm. man dama jàpp ne araf yi dañuy déplacé wu wala dañuy soppiku. Mm-hmm. parce que nga calcul. ci àll Assane mu jox la chiffre boo xam ne yow da ngay teg sa téléphone jóg dem parce que da ngay jommi hmm? yow xoolal ma laaya ji su ma badal naa màkkaana sayi aati xasanatan xata enfaaw mhm. hmm. day jàpp deux mille cent quatre-vingt-douze mhm. deux mille cent quatre vingt lay jàpp mhm. nga teg ci jalbul jalbul maal cent trente mu jox la deux mille cinquante-cinq nga diviser ko par seize nga amaat cent trente-sept jalbul maal maalo asan xam nga yow lii ah? ma maa ko mën a ko sëñ bay defe naa araf yi xaw ma dañuy soppiku hmm. xaw ma dañuy déplacé wu arxuraan mel noonu <laughs> arxuraan mel noonu billaahi wallaahi taalaay jëlal wàll yu latif nga sikkar ko mille cinquante cinq nga jàng aay bi cent trente sept hmm. nga xool ndax yow doy say yow dix mille yi duy doxantu sa loxo yi hmm, aaya bi ngay jàng suma badal naa maakaana say aate ah, xasanatan xataa faw deux 137 euh, nga koy def nga indi walu latif 2055 nga xol ndax yow 10000 mm-hmm. mille yi duy doxantu say loxo mm-hmm. est-ce que mm-hmm. euh, xale bu sawarul ci jangi bul dor bul saga bindal rek bindal rek ci keri wa tilka hujjatuna atainaha ba ci inna rabbaka hakimun alim bind ko juróom-ñaar jox ko mu naan jeexna hmm? na rek jox ko mu naan bindal hasbi allah rek nga teg ci wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim xas bi yàlla rek ngay teg waa ngay bind rek doo ci ko ka xojjatunaa première aaya bi rek inna rabbaka hakimun alim fa ngay yem loolu nga jumla boobu mm. ba mu mm. boobu ngay bind juróom ñaar yoon a jox mu naan bul sonnati bul dóor bul saaga maa la ko wax dana jàngi moom kay boo ko jiitalee mu dem boo ko jiitalu mu soññ la te doo ci dóorante maa la ko wax boobu am na solo macha allah incha allah suba la ajjuma mm-hmm. faatiya benn mm-hmm. istixfaar cinquante mm-hmm. sallallahu ala muhammad cinquante mm-hmm. bismillahi latifu zakiyu wadudu trois cent boo ko xamul mooy xayul xayum wali boo paree nga indi yaa bi salli ala seydina muhammadin wa sallim trois cent vingt boo paree nga indi ñaan gii Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin hmm. farjan wa min kulli dayhin makhrajan wa min kulli usri yusran hmm. wa min kulli fakhishatin hmm. sitran wa ala kulli khairin sabilan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin daf ko ñet yoon yonent bi loko laaj mu jox lako bu jant bi jog ngakoy door nak ci lu wër bu lo laaj yonent bi mu jox lako moy bi du ma sha Allah wallahi ha ma sha Allah yaa ngi dem ci dëkk. Mhm. xëy na xamoo fa kenn. Mhm. parce que yenn saa mu dal la dinga nga dem pour lijjanti ci benn papier dem fa kal. Mhm. xamoo fa kenn. bëgg nga yàlla ubbil la fa fat dafa la fa xabul. boo ñëwee directement rek jubale ci jàkka ji bu la wóoree na daal moom fii moom wàcc naa fi te ah, xaw ma fi kenn. jubale ci jàkka ji rek bala ngay wax ak kenn boo duggee ci jàkka ji rek jàngat ñaari rakka yoo ci jàng loo ci tari baax na. soo paree jëlee sa kurus yaa fattaaxu téeméer yaa razaaku téeméer yaa téeméer. yaa arhamar na téeméer nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam téeméer jeex na. nit a la fay fekk na la sëñ bi looy def fi nga ne ko doxa dem laa fi mun a la kaa ñu dem kaa ñu dina la jox néeg dina la jox lépp loo bëgg ba keroog nga fay jege ci kàttu yàlla incha allah mm-hmm. ma ne boobu de am na solo la ko allah rabbi bu neexee yàlla <laughs> incha allah macha allah ba tey boo jëlee walakum fiha manafiu wali tabluxu alayha xaajatan fi sudurikum foofu ngay taxaw boo paree nga indi fa yaksifu ma tad un ilayhi inchaa boo paree nga indi alhamdulilahi lazi haadana li haza déedéet waaw foofu nga yem foofu nga yem macha allah est ce que xam nga euh, day day jàpp 1687 waaw weerzuqu min xaysu laa yaxtasibu fa mm. moom lay moom ci moom lay dox gis nga sa aajo bi nga dugal ci sudurukum bi mm. ah ci miim sudurukum bi mm. Assane Diagne sa aajo bi faju na ci lu

<laughs> ñu ne ku koy liggéey ci kàttanu yàlla incha allah rabbi yàlla na la faja sa aajo yëpp jéggal la sa bàkkaar yëpp macha allah te ku ci sax doo am perte mukk maanaam di am muy wàññeeku dara déedéet moo xam liggéey entreprise boo mënte am du mës a daanu yàlla du dogal sa benn doom boo ñàkk wala sa alal boo ñàkk amul xaala rajulaani min allazina yaxaafuuna an amallaahu alayhima udxulu alayhimul baaba fa iza daxaltumuuhu fa innakum xaalibuun wa alallaahi fatawakkalu in kuntum muminina aaya baa ngi jàpp 7788 di juróom-ñetti astaghfirullah <laughs> moom ngay ubbee mais yaa ngi koy jàng 40 fois soo paree nga indi astaghfirullah ci yax ba 1947 1947 boobu am na talsam muy yaa moo jaashada miim rayin jiin siin su tooy ak deel mille quatre mille neuf cent la jàpp mais yaa ngi koy liggéey nag dar aaya bi buñ ko dar ba deux fois maanaam sept mille sept cent quatre vingt huit mu jox la quinze mille cinq cent soixante <laughs> liggéey tur bi yaa moox jasa da su paree miim bi nga génn mi yaa moox ni leen ci génnee nga jàng ko junni rayin bi di yaa ranni yu jiim bi di yaa jaamiu cent quatorze Chine sotobidi yaa shakuru mille deux cent vingt six del gi di yaa daa imu quarante six ku ci sax incha allah rabbi no seulement yàlla dina la jéggal say bàkkaar waaye na la ubbil buntu fat bi ñaata ñaata kun fa yàkkun 33 kun fa la boo ko divisé fa dégg mu jox la 66 kun fa yàkkun muy 15 566 di la jox 8 fois 1947 ci même aaya bi waaw waaw di la jox 8 fois aay bi dafa am doole macha allah. asan waaw non kii. <laughs> macha allah koy xamul daal boo ko génne nga waxtu <laughs> euh, ba tey ñu ñëw ci kiis. Mhm. basmala ngay def deux mille cinq cent. ka lii quarante et jours laa la may quarante et jours. Mhm. nga yëg sa bopp ci baatin. Mhm. basmala deux mille cinq cent yaar xamaanu mille cent suba nga koy def. 41 jours laa la may yow nga yëg sa bopp nga xam ne yow sa xel mi mi ngi liggéey lu mag da ngay gis siru yi. Hmm? da ngay gis nii siru yi. Ah, waaw loo loo loo jàngoon 10 ans 20 ans fàtte ko. Ah. boo ko liggéeyee mu nga gisaat ko nii jaxaran tëll da nga ciy génneewaat ay code. Hmm. est-ce que. code yi hmm. chiffres yi mooy cot yi de. waaw waaw ah. su ma la bëggee woo est-ce que dama ne damay toog fi naan la code nga nekk nga nekk Kër Mbaye Fall ndax di ma dégg. non non sa numéro laa lay koy jeex na. soo wuyoo ba pare nag ma doog a tudd Codé mais bu ma toogee fi municipal naan Codé nga nekk kër Mbaye Fall coow yi bëri rek waaye doo ma wuyu waaye doo ma moo tax ñu koy weddi danoo xaw a dese tuuti walla aw awlaa boo ci wax baax na aw lakka fa lakka fa awlee <laughs> astaghfirullah lu may laaj ci suuf de waaye bàyyi keef gi ci boppam moom ngay bind mu xaw a mel ni ab ab carré nga awlee lakka dang koy dang koy xawa ubbi tuuti awlee laka kee foofu ngay ubbi dugal ci turu ki la yoral bor wala ki la tooñ moo tax hmm. tooñ wa waa ki la yoral bor lank na dula fay dugalal turum foofu fa awlee laka summa ma awlee laka ñaareel laka bi aussi nga def fa turam ba pare nga maa ngi koy bind nag soit ci paaka wala ci jaas ci ngay bind lii awlee laka fa awlee summa ma awlee laka fa awlee nga boyal furna ba mu boy ba commencé boy nga jël paaka bi teg ci muy tàng nga xisaab turam Assane Diagne nga di ko liggéey awlee lakk fa awlee suma awlee lakka fa awlee bu neexee yàlla incha allah rabbi dina la fay baa mu sàngoo suuf seen yéen ku kuy gaañ ku leen tooñ waaw ah, ah, tooñ ju bàkk déggu ñaan tooñ ju gàllaaj loolu mag ñi wax tooñ ju gàllaaj tooñ ju gàllaaj ñu bàyyi tooñ ku la yaral bool bañ laa fay wala mu tooñ la boo ko ci defee ñu duma ko du fanaan du fanaan awlee mi awlee lakka fa awlee summa awlee lakka fa <laughs> wala awlaa lakka fa awlee summa awlaa lakka fa awlaa <laughs> jàng jàng nu xafs ak jàng nu warsh waaw bind ko rek awlaa lakka fa awlaa hmm? summa awlaa lakka fa awlaa mu nga keef bi daal nga ubbi rek dugal ci turam xisaab turam ni mu toll nag mais ayib yaa ngi koy bind ci paaka wala ci jaas yi booy la fur na rek def ca rek di ko zikkar nag euh, euh, aay bi ngay zikkar turam adadu turam moom bu neexee yàlla incha allah rabbi bu tëddee guddi rawaxaan bi moo koy feeñu yor jaas yi yor jaas yi na ko hee diw ba mu ne ko nangam mu ne ko gis nga boo demul ci diw fay ko borom danaa la rey hmm? <laughs> fekk fayu la du nekk ci jàmm est-ce que <laughs> bu la tooñee fekk dellusiwul ci yow jéggalu la du nekk ci jàmm jéggalu si rek ba nga baal ko mu doog a nekk ci jàmm wala bu la yoreel dina la fay hmm? fekk fayu la du nekk ci jàmm ilaa yawmi diin fu mu tëddee rawaxaan bi ñëw fu mu tëddee même bëccëg bu dee nelaw rawaxaan bi ne ko salaamaaleykum dañuy ubbi de waaw yow looy fay diw dina fay par la force ba am problème boo ko lee lebi dina la ko fay sax dina la ko lebi fay la waaw incha allah rabbi bu neexee yàlla ba tey <laughs> euh. ñu ñëw ci yoonu police mhm. dangay jël xaala kullan fa azhaba bi ayatina inna maakum mustamiuna mhm. moom ngay bind ci miimu samado wuy samado biy jàpp 135 mhm. moom ngay bind ci biir miim bi nga réyal mi ci biir sàdd bi nga réyal miimu laay ji dugal fa sa tur tëj miim bi jël téere bi jël téere bi jël téere bi takk ko hmm. boo jëlee téere bi nga takk ko hmm. jël téere bi takk ko hmm. di sikkër eh, eh, nu mu tuddati yaa samadu cent trente cinq fois ci dix neuf ci benn jotaay jàng aaya bi cent trente cinq fois dix neuf ci benn jotaay pare na demal police da ngay si waat waaw yow Assane est-ce yàlla nee na dem leen maa ngi déglu waaw waaw waaw waaw ci lu wér. yàlla day far de. ci <laughs> ci lu wér wér wér. ku mu yónni jox na la arme. Eh? yàlla. waaw ci lu ku mu yónni jox na la arme waaw waaw moom mos a yónni kenn moom ci loxoy nen. wax naa ko keroog ci suuf fii. Uh-huh. àdduna fii boo fi bëggee jariñu uh-huh. da nga lott da nga sonn. Uh-huh. ci bu bàyyee ñëpp tànn mësa yi. yàlla moo bàyyi ñëpp tànn mësa yi yen ko yen wi. mësa yi mën naa dem. ca mësa lay bëgg mësa yi tant yaa ngi bëgg yàlla di bëgg. booy bañ nag yàlla banque yi loxoom mm-hmm. mais boo bëggee rek mu dem ndax waxul wa laxat karam naa bani kalbu amul mm-hmm. Mm-hmm. wa laxat karam naa bani aadama waxuñu fa wa laxat karam naa bani daanu amul da ngay bëgg rek yàlla bëgg waaw boo bañee nag mu seetaan la wallaay la la waaykat ba naan wala xadda karam naa bani géwél <laughs> amul amul amul amul wallaay amul wala xadda karam naa bani aadama fa nekk <laughs> Eh, ki <laughs> bëgg yàlla may ko soxna wala ki bëgg yàlla may ko borom kër ay eh, waa ana célibataire yi hmm? am na fi wala amatul <coughs> wa alqaytu ahamu ah Cheikh Sida de ngi defaraat mbaxanam waaye moom def naa moom du célibataire moom moom de galaw la macha allah wa alqaytu ahamu aleyka saqaku hmm? mahabbatan xalawu min ni yasu nga bind ko juróom-ñaari yoon zuyina linnaasi ba mu jeex juróom-ñaari yoon wa azin finnaasi xam nga waaw bi mhm. ngay bind 55 fois waaw waaw waaw waaw waaw ba egg ci 55 cinquième ba nga dogg indi asine finnaasi ah. waaw man yoon ñi ma ciy gis nag demewul ni non gis nga ruq-ruq yi waaw boobu ngay bind cinquante fois adadu adadu mujibu mu rangaloo 55 cinquième ba na ngay dogg indi asine finnaasi mm. bil hajji yaatuuka rijaaran wala kulli daamirin yaatiina boobu nga bind ko quarante une fois voilà <laughs> nga doog a dem ba ci li yashadu manafia lahum juróom-ñaari yoon jumla boobu mu wax noonu mhm. juróom-ñaari yoon nga koy bind nga tegaat ci vingt neuf waaw balay moom koy waaw rek yoon waa ngi waaw rek <laughs> waaw rek ala kulli waaw rek yoon waaw moom kay dama ne bu dee góor boo demee ñu ne la waaw bu dee jigéen nit dina la fekk si boo ko ne takk mu ne la waaw bu fekkee ku lay génnal di la fas yéene fooy boo ko ne takk mu ne la waaw. Hmm? ay projet nangam saa nga waxaaral lii. Hmm. déedéet waaw rek. waaw rek waaw rek. ala kulli xaalin waaw. waaw waaw maa la ko wax ala kulli xaalin waaw rek. incha allah waaw. da ngay bind sorotu waaxiyaat juróom-ñaari waaxiyaat lay nekk nag mhm. waaye waaxiyaat laaya bind da ngay. da ngay indi inni astafaytu ko ala naas inni astafaytu ko ala moom ngay dugal ci sorat waaxi euh, ci euh, waaxiyaat ak gannaaw aaya boo bind ci waaxiyaat nga bind inni astafay ko ala mm-hmm. nga def ko saafara mm-hmm. ut xob déem mm-hmm. tobb boo am baax na nag tobb boo ci am baax na waaw nga ut béréwél ngel def ci hmm. yaa ngi koy sangoo quatorze jours hmm. quatorze jours da nga waaw di nga ut nag euh, nu mu tuddati parfum hmm. bu amul alcool na nekk parfum bu amul alcool ndax déem gi day am xawee am odeur nga def ko ci saafara bi nga sangoo ko quatorze jours yow ubbiku nga yow ubbiku nga te nga gàtt tànk nag xam sa bopp maa la ko wax da ngay gàtt tànk xam sa bopp ci lu wér salaatu shifaay maa xam na feebar feebar bu mu mënti doon ak fu mu mënti jóge bëgg nga yàlla saafara ci wala boo feebarul tamit nga bañ yàlla feebar dal la li ñuy wax coronavirus. am na ñuy laaj loolu sox question boobu. waaw lu ngi leen di baaxee ci loolu. Mm-hmm. mooy genre feebar yu mel noonu ko mu ngoog salaatu shifa ngi nii ñu tuddee ko salaatu shifa yi allahumma salli. Mm-hmm. ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa shafiina wa maulana muhammadin aafiyati ruusi wa tabridiha tibbil uruqi wa safiyiha wa shifail uyuni ani borom kataragi wa munawwiraha wa sukunil amali wa mudahhiraha wa ruhul afiyati wa miqdariha wala alihi wa sahbihi wa sallam salatan tushfa biha zahirana wa batinana min jami'il ulal wal asqam wal amrad amin 92 wala 100 wala 101 wala 111 wala 129 jeex na feebar bu mu fekk ci yow wér na ci kàttanu yàlla bu la feebar dalu woon tamit yu bon yi dara du la doon. Mm-hmm. ci kàttanu yàlla incha allah rabbi bu neex yàlla. Mm-hmm. boobu boobu moom am na solo ci période bi ñu nekk nii. waaw surtout surtout surtout. loolu la joxe ci loolu. waaw euh, ci. ci feebar yu bon yeeg yooyu. ngi ñëw. waaw kon baax euh, alxamis. Mm-hmm. nga fexe ba am euh, xobi dém xobi déem. ah. waaye dém gi boo koy wuti ji. na ko naan naam ñas. waaw ndax daa am yi dégg. nga fëgg garab gi xob yi daanu yi dëpp doo ko jël xob yi jaaxaan moom ngay jël cent vingt xob nga bind ci latif boo paree nga jël xob yi weer ko ci ba mu wow nga ut cuuraay libaan dëbb ko xob yi ba mu nekk sunguf nga jël daal di bind alhamdulilahi lazi haadana li haza cent vingt neuf bind yaa latif cent vingt neuf nga def ko euh, saafara jël euh, xob yi euh, sunguf si def ci ut bintu soodaa def ci. Hmm. di ko sangoo. Hmm. yow ubbeeku nga. ubbeeku nga ba faw ubbeeku nga. ba faw ba faaw kay ba faw incha allah rabbi. te moom ubbeeku bi moom macha allah. macha allah xam naa gaañu moom tey. Hmm, ubbeeku nga. seex seex seex a ngi ree rek. wallaay dafa kontaan. waaw yëkkati na ñaari baaraam. ku bëgg yàlla di ko jàppandal li ñu ma wax loxo yu tooy man loxo yu tooy laa ko tuddee. loxo yu tooy ci jamono ji ñu toll ni dafa am solo. ndax danoo toll jamonoy matériel. wallaahi waaw di am di far di am di laal dara da cee baax. Mm-hmm. boo jullee suba ba pare. bala ngay wax ak kenn. yaa qa shaa shin yaa qa shaa shin xaaf la siin su tooy alif siin su tooy nga jàng ko cent onze mm-hmm. yaa huwa cent onze laysa laha min dunillahi kaashifatun laa yu jàlliha li waxtiha illa huwa 1153 ñaanalu la neex foo ko defe journée boobu di nga am dépense laa yu jàlliha li waxtiha illa huwa <laughs> laysa laha min dunillahi kaashifatun laa yu jàlliha li waxtiha illa huwa 1153 gannaaw ba nga defee yaa xasaasin 111 yaa huwa 111 gis nga même boo ci ñaanul aaja balaa jant bi soo sa loxo tooy. baax waaw am na ku may déglu nii wallaahi al azim kilifa gu mag nii la joxee lay sa laxaab yi nee na lii mooy lay sa laxaab laa yu jàllihaa li waxtehaa illaa huwa mu ngo 1153 ah waaw boobay xaqiqa xaqiqa yii nii kilifa gu mag wallaahi al azim ay Cheikh Sylla waaye moom mi ngi commandé Cheikh Sylla moom commandé suratul Ahraf waaw mu ngoog laa ilaaha illallah laa yu jàllihaa li waxtehaa illaa huwa mu ne ko Cheikh Sylla moom tàmbali ñu dellu ci liggéey waaw cheikh daanu na waaw mm-hmm. yoon a ngi nii ci basmalatu mm-hmm. astaghfirullah ngay def téeméer mm-hmm. fexeel nga saxal astaghfirullah téeméer salaatu ala nabi ba nga mën soixante euh, téeméer nga jël basmala 4356 mooy 66 fois 66 boo paree nga ne bismillahi rahmaani rahim allahumma inni as'aluka rahmaani rahim allah la ilaha illa huwa al qayyul qayyum allah la ilaha illa huwa lazi laa ilaha illa huwa al malikul xudusu salaamul muminu muhayminu azizu jabaaru mutakabir subhanalay ama yushrikun fa nga yem 129 mm-hmm. lii mooy liggéey bi 129 mm-hmm. nga wax sa aajo mm-hmm. indi ñetti pere salaatul faatihi nga toog ci lii nga liggéey ko nga xool ndax suñu borom dalal dimbali wala ci lu wér a ku bëgg li nekk sa yaram moo xam lu mu mënti doon jaaxal na la bëgg nga yàlla dimbali la ci mu génn suro latif la mooy 9000 bi waaw amaane bii moom li muy siiw siiw tamit defe naa bii bokk ci ndax bii 9000 la de dëgg la mais foo amee junni bu ne da nga dugal salaatul faatixi 20. ah waaw waaw yaa latif junni nga dugal salaatul faatixi 20 soo noppee nga tegaat ci salaatul faatixi 50 du am nga 70 salaatul faatixi. bu loolu eggee ba jeex na nga doog ci te qul man yunajjikum min zulumaatil barri wal baxri tad'uunahu tadarruan wa xufyatan la in anjaytanaa min haadihi la nakunanna min ash-shaakiriin qul illaahu yunajjikum minhaa wa min kulli karbin 270 gis nga boo tëddee guddee mhm. dafay mel ni sa yaram dafa am yu ñuul yuñ ci cuqati muy génn mhm. lépp lu nekkoon ci sa yaram ci lu bon boo tëddee guddi bala ngaa yeew mu dañ nga di ko teg sa bët nii nga ci teg sa bët hmm? waaw waaw day melni ay bul yu ñuul yu genn ci yow di naaw ci jaww ji dem lepp lu nekkon sa sa yaram lu bon mo xam lo lek mo xam lu na def bala nga yow mu ci latif bi ci latif bi latif bi 9000 mille bo am dugal salatu fatihi 20 bo paré tek 50 salatu fatihi nga am 70 fatiha da doké tek ay bi 270 moy japp moy japp karim du wër ah Cheikh si na waa gis nga moom mooy tàllal Cheikh Sélém la koy woon dèjà. lu wér lu amul seede baaxul baaxul lu wér. <laughs> ba tey lu lay tàqaleek ñàkk. Mm-hmm. demal suratu Wadduha mm-hmm. toujours ñu waxaat ko rek toog ci rek. boo julleegee ba pare nga jël sa ñaari rakka euh, Faatiya nga indi wa waj euh, wa wajadaka ailan faax naa téeméer. Mm-hmm. non premier raka bi waa ama saa ila falatan xar téeméer mm. deuxième raka woo jadaka a ilan fax naa téeméer léegi nag nga jël xam nga bii dalay jox 1177 mm. wa ama saa ila falatan xar 1177 wa wa jadaka dafa lay jox 1184 boo leen boolentee da ngay am 2361 mm-hmm. boo ko diviser par 7 da ngay am 787 léegi nag da ngay jël wa ama sa ayla fala tanhar wa wajadaka ah ilan faax naa 787 nii nga koy liggéey ñetti fan sa mm. ajo bi pare ñetti fan yow gisat dootoo gis yow aajo sa kanam ñetti fan mm. day lakk lii day lakk aajo macha allah macha allah <laughs> tàggale ak ñàkk mm-hmm. surtout alfajaru <laughs> alfajaru allahu mm-hmm. boo jullee suba ba pare nga zikkar allahu cent vingt ah soixante mm. cent soixante six mooy alif bi boo julee tisbaar nga jël latif cent vingt neuf boo julee tàkkusaan nga jël fattaaxu quatre cent boo julee timis nga jël jaameewu cent quatorze boo julee gee nga jël razaqu trois cent huit soo boolee lii moo lay jox mille cent six du suqa biddu ci guddi ga boo ko mënee nga zikkar suqa biddu mille cent six ku ci sax te bàyyi woo ko laa wax incha allah rabbi bu neexee yàlla Euh, problème mu aduna moom dañ na ci yow te di nga ko par la force te ci carte nu yalla allah rabbi waaw ci na te mom sama gars yi ba tay ñu jël walati ahsanat farjaha fa hmm. fiha min ruhina wa jaalnaaha abnaaha ayatan lil alamin. mille 3075 la jàpp nga diviser ko par 15 mu jox la 205 daaru. Mhm. waaye matu la gaaw. Mhm. dafa gaaw ci matu. léegi mhm. ma kii. kii bo bu bu bu naanee saafara bi. Ah. raxas biir bi. Hmm. bo balaa ñuy wàcc suuf rez-de-chaussée. Hmm. mu matu ci ascenseur bi. Hmm. ce que. daf cee gaaw. Mhm. lu gaaw ci matu la. ci lu wér waaw ah, boobu am na solo lu gaaw ci matu la. Mhm. boobu moom baax mook su mook suma sabila yassarahu. Ah, waaw mhm. ah. waaw kooku boo ko bindee adadu turu ko jigéen ki. suma sabila yassarahu. nga bind ko jox ko mun na naan ci raay biir bi ak fi xale bi jaar. ba ngeen yeexee tuuti de mu def ko ci kër gi. waaw parce que rek am naa ci benn ko xam ne dafa jéggi weeram. mbokk yi jaaxle. ñu wax ma ko ma defal leen ko. waaye de ah buñ ko yeexoon a évacuer de moom <laughs> dinañ jëli saas ba am dinañ jëli saas ba am waaw bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim wal tafati saaqu bi saaq ila rabbika yawma izinal masaaq ndeysaan ibnu saaq la may fàttali wallay wallay wallay wallay wallay juróom-ñaari yoon fala uqsimu bi shafaqi wal leyli wa ma wachaqa wal xamar isa tasaqa la tarkabunna tabaqan an tabaqin juróom-ñaari yoon nga teg ci morabao bii nga xam ne 1778 nga koy duggee 1778 morabao bi ñi xam morabao mhm. 1778 nga koy duggee boo demee ba ci 1789 nga yokk ci 4 mu jox la 1793 mooy fi kasara bi dugg boo ko bindee noonu ba mu àgg nga def ko saafara boole ko buy buy buy nga jambe safara ci manam da nga xoj safara ci ak buy ba mu japp nga jambo ko ba mu normal nga nan ko ñu ne ki nga xamne dafa bëgg am maniyu ak kàttanu sëy boo amoon cinquante cinq ans wala 70 ans boko nané di nga melni ko am 25 ans ci kawlal bi hmm ndé amna solo hmm ya jaibu ma yëngal gaaji hmm. hmm kay bay ki bëgg dépense du ko manqué moo xam waruwaay bu ne waruwaay nag jàppal ne suñ jamono ji oto bokk na ci li tax ñuy wax bu dee jur gi moom lu mel ni baqara ah, nag wala moo xam ginaar bëy xar lu mu doon ah, da ngay bind xaati mu sal ah, kunti yu la nga koy duggee baytul xaal bi ci nga def sa aajo nga zikar yaa jaa e bu 7000 7000 ngay jàng Ya bu mais dana bëgg bokoy liggéey bu la kenn gis kudul yalla tejul tëjul ba pare nga tek ci li fi temer inshallah allah rabbi bu neexee yalla saraxam juroom ñaari mètre perkal la jeexna xati mom fek fekk yaa ak mom kër goko sul dundu du fa manki ila yawmil qiyamati waaw waaw mom kay mo xam li ni wax ñetti doom penn naari waaw mm. ndek añu reer mm. waaw ba teg ci bi muy allah rabbi incha allah est mhm. ba tey bu weeru olof bi teeroo nga bàyyi ba weer wi ne dàng mhm. nga sikkër wa zalannaha lahum fa min yakuloona mhm. nga koy sikkër nga jàkkaarloog eh, weer wi nga tëjee ko ñaan bi allahuma yaa razaaxu saa yaa arxama masaakiina yaa zal quwwatil matiini wa yaa xayral naasiriina yaa walliyul muminina yaa qiyaasal mustaqishiina iyaaka nahbudu wa iyaaka nastain allahuma in kaana risqi fi samaayi fanzilhu wa in kaana risqi fil ardi faqrijhu wa in kaana baidan fa xaribhu wa in kaana xariban fa yasirhu wa in kaana kasiran fa barik fihi yaa arxama raximina allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa ak fii nii bi xalaalika an xaraamika mm. aman siwaaka mm-hmm. nii nga koy liggéeyee nga jàkkaarlook weer wi mm-hmm. bu weer wi terew nga koy liggéey mm-hmm. balaa buy weer wee di dellu si day fekk yow gars yi dañ naan xanaa da ngay soog a fayeku macha macha allah rabbi ñi defar nañ lépp ah, sa aaya ba ah. sa aaya ba mooy sa nurihim cam aayaatinaa fil afaq da nga bëgg a gis mbir xay na moo xam li si xaar mbir mi lënt na la bëgg ngaa dugg ci mbir xëy na bëgg ngaa xam wala nga jaaxle ci say mbir yow bëgg xam yàlla wan la sa bopp yow sa solution problème bi ci nekk ni kët na jonn nan la da nga jël sa baaraam bu sew bii bu tuuti bii baaraam bu ndaw bii bu ndaw bi bu ndaw bi tuuti bi mhm. nga jàng ci aay bi ñetti yoon sa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ñetti yoon nga dugal sa nday eh, nopp ndeyjoor nga dugal ko ci saañ ko ci. Mhm. nga jàngat ko ñetti yoon nga saañ ko ci càmmam bi waxal sa soxla nga tëdd. Hmm? waaw waxal sa soxla nga tëdd nga xool. Ah. te daal wala njàpp rek nga xool. est-ce que hmm? waaw te daal njàpp rek bàyyi ko rek bàyyi sa xel mi noonu bul xalaat dara ba nga nelaw nga xool. Hmm? waaw nga xool. Ah, nga xool waaw nga xool. fa fa gaañee rawante ñu tuddee ko la guddi. fa gaañee rawante. <laughs> fa la gaañee rawante. <laughs> loolu moom dëgg la. <laughs> bu la yàlla mayee nga bëgg ko. yeewul xaaja guddi fii nisfil layli julli ñaari ràkka ràkka bu njëkk a faatiha inna anzalnaahu juróom-ñaari yoon ñaareel ba faatiha alam nasrah juróom-ñaari yoon ba selmale astaghfirullah 70 salaatu ala nabi 70 nga zikkar wali kulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul xayraat aynama takunu yaati bikumullahu jamian inna allaha ala kulli shay'in qadir nga def ko 101 nga jël bismillahi rahmaani rahim 116 wala 111 nga tek allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim bila don doon sank sànq hmm. ko sank sax moy 1140 waaw motax salatu ala nabi dama bëgg nit ñi di ci tey hmm. ndax li ci laqatu ci secret hmm. di nga yor ben yakarna mo gën yépp fekk na amna bu ko gëna mat ki fukki la subhan non lañuy def non lañuy demé sëriñ ci bo xelawul tout rek dina la tromper manam yow sa bop da ngay japp ni li mo yor ni mo gëna for yépp fekk na demewut ki fukki alquran la Mm-hmm. allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mille cent quarante la mooy jàpp mu saxir mm-hmm. nga jàng ko téeméeri yoon bu neexaat incha allah rabbi koo bokkal jamono laa la wax de ci yoon yàlla mm-hmm. dinga nga ko rawte du ko yëg waaw te bu la neexee boo xëyee sol sa panloog simis jaxasoo la ko wax waaw macha allah <laughs> macha allah am na solo defal ñeenti rakka ixlaas gannaaw faatee ngay indi ixlaas fukk ak juróom fukk ak juróom benn deuxième rakka bi fukk ak juróom ñaar ñetteeli rakka bi fukk ak juróom-ñett ñeenteeli rakka bi nga jël xul huwa allahu ahad 104. Mhm. allahu samad 104. Mhm. lam yalit walam yulat 104. Mhm. walam yakun loo ko fan 104. boo paree nag nga sikkar alif lam mim allahu laa ilaha illa huwa xayumu allahu jaami u razaaxu nga koy sikkar bo paré nak bu féké yor nga talsamu dafata bobu mhm. ahutu bobu mhm. Mhm. waaw <laughs> fekkee yor nga ko nga sikkar ko juróom benn fuk ak juróom benn inshallah rabbi sa aajo bi du taxawalu jëf waay masha allah borom tank yi metti xam naa moom li gay wax na laal nga ke ba nak laal nga fa nga wara laal bari na ci réew mi ko gis amul xale amul mak ñëpp mam kay te sax mag ñe ci tane xale sax léegi fim tolni jamono ji dama xamone ndax bouillon yi la xaw ma nu mu demé wala biberon bi ñaar yooyu ma benn la ci mom ñaari be yoyu hmm. ben la ci budul bouillon bi rek di biberon bi da ngay bind fa ummuhu hawiya hmm. fa ummuhu hawiya nga bind ko 660 fois fa ummuhu hawiya 660 fois ba pare nga ut boole ko xasum ngeejaan ak xasum dank nga baxal ko ba mu ñor di ci nan suba ak ngoon di zikar badiu 660 bala muy def une semaine hmm. bu fekkone da nga don sox di nga dox correctement la ko wax inshallah rabbi bu fekkene da nga doon soox di nga dox correctement hmm? ah. ah, hmm. correctement ah? la wax ñi ñi ma tuddu sax ñi paralyser nak waaye bu fekkene na nga don sox dal mom bu neexal di nga dox correctement ci kàttanu yàlla sey bu yëngatu ngeen bañ divorce am ca da ngay bind wa in khiftum mimba nga yaatal ko shiqaaqun nga yaatal fa baasu xakaman nga yaatal miim ba min ahlihi wa xakaman nga yaatal miim ba min ahliha in yuridan saalihan sadd ba nga yaatal ko yufiqullaahu baynahuma nga yaatal miim ba du ko ci seen tur ñoom ñaar inna allaha kaana aliman xabiran nii nga koy bind nga tëje ko salaatu ala nabi ci kàttanu yàlla incha allah rabbi bu la neexee nga bu def ci suukar tek ci tal bi ba mu bax ba ngeer ba jeex tak hmm. gis nga ndox momu ngeer fek hmm. fekk ñu ko delu ci wat di divorce do am ci sey bi wa la ko wax de waaw hmm? waaw ndox mi ngeer non ba jeex tak fek nit mënu ko indi wat ci ndabli di divorce do am ci sey boobu ila yumi di te dañuy jubo nak bu fekkoon ñu doon xuloo ni da laalante laalante ba jeex na dañuy jubo kenn lo dox seen diggante wa inshallah allah rab ba karuñu ci gaay di wax pikk ak pel non lay demee da ngay wut kër da ngay sikkar asaabixu lil xalqi nuuru wa rahmatan lil alamina zuhuruhu deux mille deux cent vingt sept boo paree nga jël aaya bii muy fa taala allahu malikul xaq laa ilaha illa huwa rabbu arsil karim deux mille huit cent trente deux mooy adatam boo ko divisé par douze mu jox la deux cent trente six moom si kër da nga koy sikkër 236 da da ngay indi rabbi anzil nii munzalan mubarakan wa anta xayru munzilin 236 nga indi aay bi 236 boo ko liggéeyee ci at wi nga gis kayitu kër gi hmm? boo ko liggéeyee at mii nga gis kayitu kër gi bu ñuy wax février mi ngi ñëw nga gis kayitu kër gi ah, ah, ah, hmm? maa la ko wax hmm? nga gis kayit gi ah loolu am na solo kat macha allah am na solo kat macha allah loolu moom tabaarakallaa am na solo amatina solo sax la ñuy wax amatina solo macha allah ba tey ku bëgg moo xam kuy dem mission bëgg yàlla defal fa jàmm wala nga am looy lijjanti ji bëgg mu yomb lu mel ni moo xam visa wala lu mu mënti doon rek wala moo xam sax koo xam ne dafa bëgg tukki moom tam bëgg yàlla dimbale ko ca euh, day bind fatiha ba ada aaya bu ne mu dugal ci way zaara aw tijaatan aw lahwan in faddu ilayha wa tarakuka qaayiman qul ma indalaa xayru min allahi wa min tijaarati wallahu xayru raziqin aaya fatiha bu nekk loolu la ci dugal ba fatiha jeex boobu noonu première fatiha boobu euh, bu demee ci dëkk ba bala mu fay lekk dara da koy sangoo mm-hmm. bala mu fay lekk dara lu fay naan dara da koy sangoo waaw bindaat wala nga bindal ko ñaar yëpp jox ko mu yóbbu mm. beneen bi aussi fatiha la ba àdda kulli aaya nga dugal ci alam nasarah alam nasarah alam nasarah lakk sa darak inna fatahnaa laka fathan mubiinan li yaxfiraka llaahu ah, deuxième bi day nekk alam nasharah du nekk fatiha alam nasharah lay nekk mais ba àdd kulli aaya nga dugal ci inna fatahnaa laka fathan mubiinan li yaxfiraka llaahu maa taqaddama min zanbika ba ci wa yansuruka llaahu nasran azizan boobu bu eggee ci dëkk ba moom da koy naan da koy naan bala muy bala mu fay lekk lu mu fay def dara mm. da koy naan bu neexee yàlla incha allahu rabbi mm. moom dem bu neex dellu si la ko wax. indaale bagage yu bëree bëri ba gaa yi kontaan. Ah. ba tey da ngay def ñaari rakka rakka bu njëkk bi da ngay indi li yax taxa tarafan min allazina kaafaro yàq bi taxum fa yan xalibu xaasi iina mm-hmm. nga indi ko cinquante fois mm-hmm. nga jël waradallaahu cinquante fois boo paree nga jël alam kayfa cinquante fois li ilaa fi quraysin cinquante fois araayta cinquante fois inaax tey naakal fois cinquante fois isa fois tabat yadda cinquante ixlaas cinquante naasi cinquante nga jël allahuma bi siiril ayaati rudda kayda kaa wa makara makirina wa siqra saaxirina wa qasadi والقاسدين وعمل العاملين ورسالات الشياطين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل اللي جاي ده كل اللي جاي ده فات الله أكبر والله العظيم لولو كي ما شاء الله كانوا وخطوك عند باب سخنا النار كل وير وير وير ubbeeku جوني جوني آه، لا ko سي sey càngat جوني جوني jooni amul zikar la solo de ni ngay def mooy da

xob bu ne benn tur yàlla ba mu jeex euh, lora bi noonu ba mu ba xob yi jeex bu ci ne aussi da nga ciy am xas mi ak reen bi gis nga bu loolu amee weeral mu wow ba mu wow nga bind bisu euh, dimanche isa waqaatil waaqia ba mu jeex nga teg ci zuyina linnaas fukki yoon altine isa jaakal na ba mu jeex na fukki yoon euh, talaata isa shamsu kuwirat ba mu jeex na fukki yoon àllarba sama samaun fatarat ba mu jeex zuyi na fukki yoon alxemes isa shamaun shaqat ba mu jeex zuyi na fukki yoon aljuma isa zulzilati ba mu jeex zuyi na juróom-ñeent samedi isa jaa ba mu jeex zuyi na juróom léegi la nga doon weer mooy xob yaa xas maag reen ya nga dëbb dëbb ba mu ba mu ba mu nekk sunguf nga jël saafara si mooñe ko ko ban jaxasoo hmm. dama seet benn lieu boo xam ne di nga ko defal marque nga suul ko fa ñetti fan bu amee ñetti fan nga suul indi ci kër gi premier jour bi muy dëkk dugg ci kër gi du fanaan ci néeg bi guddi nga koy jëlee boo ñëwee fanaanal ko ci biti boo xëy su boo weeraat ko ba mu wow koŋ gis nga su nga soosu koddee hmm. fu waay mënti jege tëju bu mu mënti tëju umu bu mu mënti umu nee ci coppare jox ko mu sangu ci soxlawul sunguf soosu wu zikar nee ci coppare jox ko mu sangu ci xam nga fu ngeen di mu jëm hmm. sëñ bi sa compte bi sa numéro bi am na orange money wala ma yónnee la waré. est-ce que rek macha allah fekk affaire yu baax bu ah, composé nga de maa la ko wax lu wér péng la mais nag kii do do ñëw di ma jox ay kii de ah, déedéet mukk ah yi ah, ah xel xalaat yi ñu agraf yooyu déedéet li kay moom du ay ay ay benn ak benn bi ak ñaari bi déedéet kii li nga composé waaw ku bëgg akara da ngay ñu mécanique composition la waaw xam nga ñu bëri ñoo la leen di xaw a bu am doole sax mu ngoog nga tu kilifa la maa la ko wax jàngat moom kay am sax ñu ciy laaj loo xam ne macha allah rabbi waaw waaw waaw waaw ku ko mën defal ko sa bopp ku ko mënul nag moom boobu nga lu allah est-ce que jii la di wax ne mooy aaya bi nga xam ne ci alxuraan mooy purifier yaramu nit hmm. waaw muy innama yuridullah li yusaba ankum rijsa ah, ahlal <laughs> moom ñoom lañ loolu wér la lu wér la waaw mais liggéey bi dangay def dangay jël in yu yu xiisukum nu aasa amanatan minhu mm-hmm. wa yu nazilu aleykum mina samaai maa an mm-hmm. li yu taxar li yu taxaari mm-hmm. li wa yuzhiba ankum rijsa seytaane mm-hmm. wa li yarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil axdaama mm-hmm. moom danga koy bind nga teg ci innama yuridullaha li yuzhiba ankum rijsa ahlal bayti doo indi nag ahlal bayti mm-hmm. dangay ngay jël xawlaay naasi aw ahlu naasi nga soog a indi wa yutahirakum bi tathiran mm-hmm. moom it danga koy bind nga def ko saafara nga tàngal saafara bi di ko sangoo mm-hmm. incha allahu lu mu fekk sa yaram da koy dindi macha allah ah, mm. dalaayilul xayraat ci ma jëw asan sow mm-hmm. waaw la ko wax bu ma tuddee na laaj sirru xayraat xaw may déggam déet da koy commencé bi su altine ndax dalaayiru boo demee salaatu gi altine la commencé nga def allahumma salli ala nabi rahmati 7000 inna rahmatallahi qaribun min al muhsinina 700 allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yashaau wa huwa al qawiyul aziz 129 maliki yawmi din 241 iyyaka na'budu iyyaka nasta'inu 700 yaa jaamiu 114 nga jàng nak dalaa iru bisu altine bunta altine ba nga jàng ba mu jeex so ñewé sa ëlëk sa allahumma salli ala shafiul ummati 7000 wa yansuraka allahu nasran azizan 700 allahu latifun bi baadi yarzuqu man yashaa wa huwa alqawil aziz 129 maliki yawmi diin 241 iyyaka na'budu iyyaka nasta'inu 700 yaa jaamiu 114 nga jàng dalaa'ilu bisu talaata ba nga ñëw àllarba allahumma salli ala kaashifil ghumma 7000 nasru minallahi wa fatahun qaribun wa bashiru mu'minina 700 allahu latifun bi baadi yarzuqu man yashaa wa huwa alqawil aziz 129 maliki yawmi diin 241 iyyaka na'budu iyyaka nasta'iin 700 yaa jaamiu 114 nga jàng dalaa ilu boo mënee mën nga jàng dalaa ilu bu lépp ba mu jeex waaye bu fekkee mënta nekk nga jàng bis ba rek muy àllarba alxames nga jàll nga jàng allahumma salli ala mujli zulmati 7000 inna allah huwa razaqu zul quwwatil matin 700 allahu latif li ibaadihi yarzuqu man yashaa'u 129 maliki yawmi din 241 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iinu 700 yaa jaarme 114 nga jàng bisu alxemes hmm. aljuma allahuma salli ala mulin ni amati 7000 hmm. wa alqaytu alayka mahabbatan minni 700 allahu latifun bi ibadihi man yashaa wa huwa alqawiyyu al-aziz 129 maliki yawmi din 241 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iinu 700 yaa jaarme 114 hmm. nga jàng bisu aljuma samedi nga jël allahuma salli ala mu uti rahmati 7000 inna haza la rizquna ma lahu min nafaat 700 allahu latifun bi ibaadihi yarzuqu man yashaa wal qawiyyul aziz 129 maliki yawmi diin 241 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin 700 yaa jaami 114 nga jàng bisu samedi dimanche allahuma salli ala al mawsuufi bil karami wal <laughs> booba koy tëj gis nga salaatu yi ma dem boo jàng boo demee ci dalay dalaylu noonu lan tegaloo ba mu des bii mm-hmm. bii rek moo xaw am tuuti écart mais juróom benn yi ma jàng yëpp ñoo tegaloo waaw allahuma salli alal mawsuufi bil karami wal juudi sept mille maa indakum yan fadu wa maa indallahi baaqi sept cent allahu latif li yarzuqu man shaa'ul xayrul aziz cent vingt neuf maliki yawmi din deux cent quarante et un iyaaka naabudu wa iyaaka nastainu sent quatorze nga jàng bisu dimanche mooy dalaa ilu bi jeex na hmm. soo ko mënee nag nga rey xar xar boo ko mënee kuuy bu weex nga saraxe yàpp ya ba defar téere ya maanaam der ba hmm. toog ca nag di zikkar léegi salaatu yi nga doon def euh, sept mille mooy gàtt gi nga rey waa kay hmm. li nga doon def sept mille muy al ku ci mel ne alhamdulilah salal masu bi judwal kar mi nga doon def 7000 léegi da nga koy wàññi def ko 700 ah yi nga doon def 700 nga di ko def 70 dama ne <laughs> <laughs> macha allah foo pare rek nga jàng hi hi euh, dalaaylu xayraat ba mu jeex tàkk kon de bu la nit yërëmatee ci àdduna maa la ko wax lu Assane Diagne waxte ne ko waxul dëgg est-ce que Assane nit yërëm la yéene la dara ah. da ngay sàkku ci yow mais du la ko wax ne liggéeyu ma ko demee yaqin laa ci am ndax dafa am bu ma ci tàngal bu ma ci ñam ci tàngal yooyu nga rangale noonu am na bu ma ci log <coughs> boo logandoo juróom-ñaar yëpp nag moom <laughs> xam nga bi ma lay wax. mbaa xam naa ko ba ma ko tuddee nga yëngal. waaw kay macha allah. ba tey bu jigéen ëmbee da bind lii allahu yaxlamu maa taxmilu kullu unsa mhm. waa maa arxaamu mhm. waa maa tasdadu mhm. wa kulla cheyin indahu bi mixdaarin alimul xaybi wa shahadatil kabirul mutaali onze fois nga koy bind zaxfaraan nga koy bindee boo paree nag nga teg kayit gi nga jàng aay bi 66 fois ëf ko ci këyit gi. Mm-hmm. lem ko ut tisi bu weex. Mm-hmm. perkal lu mu mën a doon nga ëwal ko ndaw si. Mm-hmm. wallaayil azim. moom buy moom buy wasin sax da koy bett moom. ci lu wér ci lu wér moom. yow alaaji ordinance moom du la sonal. mokk ah, macha allah ah, maa la ko wax. lu wér la ay ordonnance yi nii Kalidou. xam a kañ laa jënd ordonnance. bu bu matoo pare ñu koy seen ñaw yooyu ñu def ca laa jënd ordonnance de mm-hmm. yeneen yi moom mm-hmm. aw ma njëriñ ma jënd bind naan saafara mm-hmm. ak ay léemaay laay yëpp la ko wax alxuraan rek hmm? rek ay dëgg fi ñu jëm ku xamul ci téere bi a métti de ci lu lu wér mais métti na léegi sax fi mu na waa kay ah, ku bëgg foo toll di am jàmm ko ko de waxee léegi rek <coughs> fa mu daanale fa laay yëkkati yàlla di la may jàmm ak tawféex foo mënti toll. Hmm. soo ko mënee liggéey benn jotaay baax na benn jotaay ba sax mooy li gën di ko liggéey ci benn jotaay mooy li gën. da ngay def euh, baada taawuzu muy aawuzu billaahi mina shaytaan rajim basmala ak fatiha nga jàng salaatul fatiha yi douze. laa ilaha illallahul xalimu 92 salaatul fatiha yi ñett. allahumma aafini fii jasadi da ngaa bëgg a wér. mais yàllaa yor wér gi yàllaay maye jàmm yaram <laughs> waaw allahumma aafini fii basari bët yaa ngoog bët yi dana lëndëmoon yàlla leeral ko mm-hmm. wajaalhul waarisa min nii mm-hmm. laa ilaha illallah xalimul karim subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulilahi rabbil alamin boobu jàll nga indiwaat laa ilaha illallah xakim 92 salatu fatih ñett laa ilaha illallah xalimul karim rabbul arshil azim allahuma yaa muqallibal qulubi ndax ci loolu lan toll léegi nit ñaa ngi këf ñëpp waa kay sàbbit bu la neexee nga ne xal bi ala diinika ci lislaam ngay deewee laa ilaha illa alxalimul laa ilaha illa allah alalim 92 salaatu fatixi ñett laa ilaha illa allah alxakimul alim subhanallah rabbil arshil azim allahumma inni asbaxtu ushiduka واشهد حملة عرشك وملائكتك خم لي واخ ياكل موم نيوم سيدنا كو ياغ وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمد عبدك ورسولك دا نغا نيانون في يالا ساخال لا سي دينك وا لي مو لاكاي سيدل واخ وا كاي واخ جي لا اله الا الله العظيم 92 صلاه فاتح نيات لا اله الا الله الحليم الحكيم العليم رب العرش العظيم اللهم اسالك الثبات في الامر واكاي واكاي واكاي wa asaluka azimata rushdi wa asaluka shukra niamatika ñu bari yàlla ngi leen di xéewal te santuñu wa xusna ibadatika jaamu yàlla na mu gën a rafete wa asaluka lisaanan saadiqan làmmiñ bu dul wax lu dul dëkk wa qalban saliman xool bu set wicc bu leer nañ wa auzu bika min shari ma taalamu lépp luy bon yàllaa ko xam waa wa asaluka min xayri ma taalamu lépp lu baax tamit luy yiw yàllaa ko xam wa astaxfiruka bi ma taalamu innaka anta allaamul xuyub benn yoon laa ilaha illa karimur rahim rahmanir rahim 92 salaatul fatihi ñett nga teg ci laa ilaha illallah alxalimul xakimul alimul azimul karimul rahmanir rahim gis nga yi nga doon def ne mooy ali ñëwaat fii rabbul arshil azim laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin benn yoon laa ilaha illa rabbul arshil azim 92 salaatul fatih ñett allahum iftah nak alayna loo bëggoon abwaaba laa ilaha illallah sallallahu alayhi wasallam nak amul lu nit di wax hmm. ci souf lu gëna reuy la ilaha illallah nga ñaan yalla mu ubbil la ci kama fatahtaha ala ahli la ilaha illallah xam nga deug la salatu ala nabi baxna werna ci la nit ñi di jaar di dem waye bo egg ci la ilaha illallah moy daj depp ki mhm. nas'aluka bi la ilaha illallah bi haqqi la ilaha illallah an qulubana bi mom la mhm. bi la ilaha illallah wa an tuwaffiqna ila istikhraji mhm. درر معنا لا إله إلا الله من بحر لا إله إلا الله وأن تنزع قلوبنا من ألاقي الشيطان دونك كوي مسلو وثبت قلوبنا على الإيمان بحرمة لا إله إلا الله بن nga dogi لا إله إلا الله allah 92 سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم أسألك باسمك آه، الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به آتيت وإذا أسترهمت به رحمت <laughs> wa isa ustufrijta bihi farajta an taqdi xaajati bi xaq laa ilaha illallah muhammadu rasulullah alayhi salaamullah benn yoon soo gëmee laa ilaha illallah jeex na suba suba ma liggéey non doot ñu la wax dara soo gëmee laa ilaha illallah xam dëgg-dëgg li mu signifié mm. du ma ci teg dara macha allah ci teg dara wax dëgg yàlla ma ci teg dara ba tey ñu ñëw ci li yëkkati jëmm doomu aadama ak li yëkkati mooy kàddoom mm-hmm. mooy jëlal wa rafax naa aliyan nga dagg ko musallas kuntiyu mm-hmm. mooy buy bu yomb bi rek 1 2 3 4 5 629 630 631 nga def su tour ci digg bi mm-hmm. nga wërale xaatim bi wa kalimatullahi hiya ulya kalimatullahi hiya ulya yi hayen yëpp da nga fay dugal su tour nga lem téere bi takk ko ci kaw garab ngay takk téere bi léegi nag ngay sikkar wa rafaana makaanan aliyan 635 mhm. wa kalimatullahi hiya uliya 324 mook Sidi May tataroon ñoo tolloo mhm. boo sikkaree kalimatullahi hiya uliya mhm. ajib yaa may tataroon téeméer nga taxawal benn rakkaa ngay taxawal inna allaha ma fa anzala allahu sakinatahu wa bi junuudihi lam tarawha wa jaala kalimatu lazina kaafaro sufle wa kalimatullahi hiya ulia fa ngay taxaw nag wa kalimatullahi hiya ulia wa kalimatullahi hiya ulia 324 nga soog a àgg la wallahu azizu hakimu nga daa di ruko sujjoot sëlmal procès macha allah sa tur day dem fu àdduna bi ñëpp dina la xam hmm. xam hmm. ku am feebar bu la jaaxal hmm. moo xam seetaan la wala ngelaw la wala ñooñu ñuy tooñ. waaw am na kuy laaj sax luy dundi ngelaw. Mhm. moo xam nag bu ko ci manti dal. Mhm. xamul daal lan la waaye feebar a ngi ci yaramam mais xamul lan la xamul ndax seetaan la wala rab la wala jinn la wala ñooñu ñuy tooñ xamul daal lu mu doon. Mhm. mais bëgg na yàlla fajal ko ko day bind salaamun xawlan min rabbin rahim soixante-dix fois. fa sa yakfiikahumullaahu wa huwa samiul alim soixante-dix fois. bu paree mu boole kook reen yi ngi gis ak reeni tabanaana ak reeni senjeñ baxal ko di ci naan. bu neexal inshallah rek Premier prise bi mu koy njëkk jël. Hmm. wa dina yegg ne lu bari lu nekkoon ceramam dañ na lepp sax gëm naa dina dañ ba jax tak ci kàttanu yàlla. Hmm. waaw moy mbir ngelaw. mbir ngelaw lu mu mënti doon. febar daal nga ci yaram te xamoo lan la sonal na la. xamoo exactement ndax setan la wala lu mu doon mais yow yëg nga ne moom moom à l'intérieur de toi da ngaa feebar. sol wa Paa. xasan wa Paa. salamun xawlan min rabbi rahim 70 fasaya fii humullahu 70 reeni ngi gis ak reeni tabanan ak reeni mais nag ma attire attention nit ñi. Mhm. pour ku ko bëgg a defal sa bopp bu dose bi ëpp. takk bi ñu lay jaay dindi ci benn reen kese. Mhm. waxuma nga jël ñu jaale takk boo xam ne ñetti reen la wala ñeenti reen nga boole lépp baxal day mujj nekk poison. Mhm. jël ci benn kese te ndox mi bëri. na ndox mi bëri boo koy naan daal na reen yi saf na ci waaye bu mu wexaat nga naan ko incha allah rab bu neexee yàlla yàlla dina la wér. dina la ubbi incha allah rabbi lépp lu nekkoon ci lay jaaxal dina wér ci kàttun yàlla incha allah. ba ñëw ñu ñëw ci istixfar istixfar da ngay def astaghfirullah 1947 nga indi sare im xari bu mu wax nii mujj bu 204 nga indi ajib yaa zam xashaya yi lu téeméer nga indi yaa zakki yu yaa xanni yu bu ne téeméer nga daal di indi astaghfiru rabbakum innahu kaana xafaaran ilax vingt fois liggéey bi soo mu ne subaa ngoon nga koy def mm-hmm. ndax yàlla ku mu jéggal dina la ubbil bunt yi buntu xéewalam yi dina la ko ubbil mm-hmm. te yàlla ko mu ubbil buntu xéewal mooy pare nga mm-hmm. pare nga ci lu wér ci mm-hmm. ku ndoxu siti sonal ba sonal la bu la neexee nga bind ko téere takk bu la neexee nga bind ko boole kook euh, xobi mbërbëf lu yem rek di ko naan mooy ca suratu an kabut masalul lazina taxazu min awliya ka masali an kabut taxazat baytan wa aw awhanal buyuuti la baytul ankabuut law kaanu yaalamuun juróom-ñaari yoon fa mannallaahu alaynaa wa waqaana azaaba samuum mi juróom-ñaari yoon nga boole koog lii baxal naan wala nga bind ko takk incha allah rabbi yàlla dina la dimbali ci siti ci kàttanam incha allah rabbi ndoxu siti siti waaw mm-hmm. tey nga indi da ngay sikkar ixlaas 66 fois astaghfirullah 66 fois mm-hmm. Euh, salaatu euh, lu 66 mm-hmm. fois fatihatul kitab 484 allahu ahun ahutu allahu ahun ahutu nga tëje ko ixlaas 66 484 waa ji nee na dafa ñëw ci sëñ Saliou mm-hmm. ne ko man daal lu ne lu ne dugg naa ci doxut señ bi ne ko jëlal alif lam mim ala la ilaha illa huwa al qayyul qayyum mu ne ko ha mu ne ko bop imran mu ne ko waaw mu ne ko 484 mala ko wax mu ne ko ha mu ne ko waji fim fi mu toll nii asan mhm. jalbu jalbu jalbu rek la fim mu toll nii waaw 484 non la noonu lay demé lool la japp loolu la jàpp 484 lool la japp ma sha allah diga yalla na ci yalla def barke mhm, amin insha allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al azim 1111 mais koku ñu ne bokay wax sun borom day contane waaw so ba day ba bay kii nu ñu koy waxee jaayu xaw ma. yemul foofu mais boo bëggee yow say jëf yow yow code say jëf. Uh-huh. fees asamaan ak suuf. Hmm. waaw say jëf yow fees asamaan ak suuf yow code say jëf fees asamaan ak suuf ba malaaka yi yéemu ci yow naan yàlla xonaa dangaa ngaa yónnee beneen yonent yàlla naa la déedéet pourtant yónnee ma beneen yonent de code ba sama jaam bu ñuy wax code ba mooy liggéey lii. am na doole de lii. xam hmm. <laughs> hmm. subhaanallaahi wa bihamdihi subhaanallaahi azim bisu altine ak bisu Dimas, ak bisu samedi. ñaata. ah boo ko mënee. 1111. nga di ko mm. jànge noonu. allah rabbi bu neexee yàlla waxuma la ndax say mbir dina fees at nag ah, suuf mais yàlla da lay jégal sa bépp bàkkaar. Mm. te gis nga nag ut xaalis bi baax na waaye defe dara gënu ko mm. waaw lay may nga ci ñaari baat yu oyof la ci lamine te diis ci balance subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim 1111 biso altiné biso al dimanche biso samedi ak biso talata ñent bis yi nga koy liggéey 1111 mu jox la 4444 waaw incha allah ba tey nga jël yaaraafi u darajaat wadudu 5152 sallallahu ala muhammad 1782 guddi alxamis ak guddi aljuma mhm. adduna bi ñëpp lay sopp ñëpp lay bëgg da nga am daraja ba tey yow mi bëgg a sëy mhm. jëlal yaa batootaa sax yootaa xaynu sax yootaa bi mhm. réyal ko dugal fa sa tur boo jigéen boo dee góor nga dugal fa réyal ko dugal sa man nag bu ma koy mesi boo dee jigéen dama koy bind xeen gi lay dugal sa tur lem téere bi def ko téere bopp <laughs> ay ay téere bi <laughs> <laughs> da dem borom bët yuy metti bët yuy metti mhm. da nga ut xobi sump lo ci am baax na nga bind allahu nuru samawati wal ardi ba mu jeex juróom ñaar yoon fa kashafna anka xitaaw ko fa basarukal yow ma hadid, nga bind ko mom tam juróom ñaar yoon bolé ko xobi diko selmo inshallah allah rabbi bu neexee yalla ba di dina leer mo xam nak katarak la won mo xam mi yopi lu mu manti doon incha allah rab bu neexee yàlla boo ko dee jëfandikoo. Hmm. dina dem ba bëti leeraat boo doon takk weer di ko di nga tekki weer yi teg fële. Hmm. waaw ci kàttanu yàlla incha allah rabbi. macha allah boobu am na solo. mu hmm. na solo. ba tey. boo demee Sóoratu Zumar nga jël wasiqa allazina attaxaw rabbahum illa jannati zumran da lay jox deux mille trois cent quarante nga jël xatta isa jaauha wa futixat abwaabuha da lay jox deux mille cinquante mm-hmm. nga daal di jël zalika jazaul moxsinina mille deux cent cinquante deux mm-hmm. boo leen boolentee ñoom ñëpp da ngay am cinq mille six cent quarante deux nga diviser ko par quatorze nga am quatre cent trois allahu muhammadu jibril moom ngay am ak fa jamaxnaahum jamaan moom ngay am si këral allahu muhammadu jibril mm-hmm. cinq mille trois cent cinq mille six cent quarante nga daal di sikkër aaya bi quatre indi fa jamax naaw jam nit ñi dañ la ñëwal dañ la bëgg dana la jox seen alal ci lu wér que lu wér la eh, lu wér la ku bëgg a juboolee say njaboot wala yaag sa soxna moo xam ku mënti doon daal bëgg nga daal ñu juboo nekk benn da ngay bind asallahu an yaj'ala baynakum nga yaatal miim ba wa bayna lazina aadaytum nga yaatal miim ba minhum ñaari miim yooyu nga yaatal ko mawaddatan nga yaatal ko wallahu qadirun wallahu ghafurun rahim nga bind ko on. ñaari yoon jël sa tur ci kaw sen tour ñoom ci suuf wala nga dajale sen tour yeen ñepp ñi nga bëgg ñu jubo ñepp nga def ci sen tour ci biir suulal ci kër ga bu mané nek wala nga tak ko wala nga denc ko rek fenn ci kër gi inshallah allah rabbi moom kay machallah ko mburuk ak hmm? waaw bobu am na allah jubo allah rek hmm. rek ci kàttun yàlla hmm. ko sa bop ubbeeku ngay waxtu wala boog nga jëm ci ndof parce que day am kurus da koy def parce que bët li mu tàmm gis mooy li ci àdduna mais boo demee ba commencé jokko ci euh, euh, alamul xay bi te préparé parewuñu la dof day am moo tax gis nga dugg ci loo xamul rek voilà yenn sëriñ si tarbiyu tamit nañ def attention mm-hmm. parce que code mën na attan cinq cent salaatul faatix yi man attanuma vingt yi mais bu fekkee ne ku ñëw nga jox ko juróomi téeméer salaatu faatiha wala junni salaatu faatiha ñuy dox day bëri waaw day bëri loolu ba amee da koy bindal sootu Quraysh juróom-ñaari yoon nga bind law ansal naa ba mu jeex juróom-ñaari yoon ba in yaakaadu juróom-ñaari yoon falaxe ak naas yi juróom-ñaari yoon nga tëmbal ci ab këriñ donju këriñ donju këriñ nga ciy tëmbal ci saafara sa jox ko mu naan ci Mm. incha allah rabbi raxas ci bopp bi dolli ci. Mm. xel mu demoon dina dellu si ci kàttanu yàlla incha allah. Mm. waaw ah, waaw akbar waaw xel mu ah. demoon dina dellu si. ko boobu amatuna solo. waaw xel mu demoon dina dellu si incha allah. ba tey ñu ñëwaat rek. ci rabbi ansil nii mun salan mubaarakan wanta xayrun mun si lii ma kii yaa ngi koy suul sa kër utal kooku kooku yooyu kooku malien yooyu mm. bu xorul bi bu xa bu xotte kubal bi mm-hmm. nga nga def ko trou nga bind laaya yi ci koñ yi bu ne 62 mm-hmm. ngay bind kayit bi lam ko dugal ci kook yi suul ci koñ bi mm-hmm. bi ci digg bi day nekk 65 nga suul ko ci kër gi kër gi dana juri kër macha allah kër gi gaalidu dana juri kër kon maa la ko wax. rabbi ansil nii defal na ma teraanga de. ansil nii mun salal mubarakan rabbi ansil nii mi defal na ma teraanga de. allahu akbar ñu baax de. ci lu ci lu wér. rabbi ansil nii mii. ah ñu may suturaal de. ci naka ah yow. dafa wér dafa wér moom foo war a fay million mu ne la moom mu defal la cinquante mille. borom kër gi mu neex ko mu naqare ko. te te yaa ngi ak teere. barke Rasulullah te yaa ngi ak <laughs> <coughs> la ne diw ñaanal ma. ndax surtout ku mel ni ñun daf ñuy dal. diw dama am problème da bëgg nga ñaanal ma yàlla sama problème sàngam. moo tax dama ne euh, doomu soxna buy lekk weexal. na fekk nga toog ci turu yàlla booy yaakaar. Hmm. yàlla nag mooy nangu. waaye hmm. amal booy yaakaar. boo xam ne wóor na ne yow mii daal boo ci ñaanal nit ki sa xel dina daal. des hmm. des nag yàllaa ko yor. waaw boo ko bëggee ñaanal jàngal euh, wala boog julleen ñaari ràkka ràkka bu njëkk ba ginnaaw faatiha alam nasra fukki yoon ak juróom ñaareel ba ginnaaw faatiha isa dia fukki yoon ak juróom boo sëlmalee nga jël naa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu 1111 boo loolu jàllee nga jàng yaasin ba mu jeex nga ñaanal ko soxla mm-hmm. bu neex incha allah rabbi loo ci lekk ci ci weexal da lay lew boo lekkoon ay milliard tamit da lay lew mm-hmm. incha allah rabbi lam la ñaan lu moom bu neex yàlla dina ci teg bët te kenn du ko dindi mm-hmm. iyyaka na iyyaka nasta'in mille cent onze juróom-ñaari yaasin ñaanal ko aajo maa la ko wax lu mu la jox lekkal <laughs> fala budda min shakwa ilallahi kurbati soixante-dix <laughs> fa subhaanallaahi xiinaa tumsuuna wa xiinaa tasbixuuna ñetti yoon wallaahi al loo ñaan yàlla mu def ko ci saay boo sëlmalee julli nga koy def nag <laughs> loo ñaan yàlla mu mu def ko laa wax hmm? ma mi ngi nii falaa budda mi ngi Codé Codé yaa ngi bëgg a na lu may laaj sànq ba bëgg a yëngal hmm? falaa xam nga daan ne nit ki su bëggee dund te du sonn hmm, da ngay seet ñett ñi kenn ku ci nekk li ma am ci yow. Mhm. muy sa sëriñ bi nga gëm. Mhm. sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. ak Allah sunu borom. dëgg la sëriñ bi da nga koy sedd vingt pour cent. soo bañ a gaañu. sallallahu alayhi wa nga sedd ko trente pour cent. cinquante yi nga jox ko yàlla. est que. moo tax boo toppee Seydi Hadj Malick si da gis foo xam ne ci ay ñaanam da ngay gis mu naan yaa Cheikhana yaa Ahmada Tidiane vingt la ko jox. ba euh, bolokaar ma nekkoon Kaolack bëgg a boloke wasifa ba ala yaa rasulallah ba dara desul nag lu dul mu jaamaarloog jàkkaarloog yàlla ndax yàllaa fi sës mhm. fala budda waaw bu jëloon mm, cinquante pour cent yëpp jox ko Cheikh Ahmed Tidiane bu ne falaa budda rek yàlla rëq ko waaw mais nag dafa xam ne yonente baa ngi fi yàllaa ngi fi te balaa ngaa dem ci ñaar ñooñu il faut nga jaar ci sëriñ nit ko amul sëriñ Cheikh Ahmad Bamba nee na képp ko amul sëriñ seetaan di sa sëriñ maa la ko wax képp ko amul sëriñ rek seetaan di sa sëriñ ñëpp laa wax ne sans exception ñi wax nañ ko yoon boo mënti jël ba ci julli gii soo amul ku la koy jàngal seetaanee sa sëriñ mhm. ñu bari ngi julli te mënuñu julli parce que amuñu sëriñ bu leen jàngal julli xamewuñu farata yi xamewuñu sunna yi xamewuñu mustaxaba yi dañuy këpp-këpp rek seetaanee seen sëriñ moo tax falaa budda nit kii il faut mu am sëriñ nga jàngi ko de kuy weddi sëriñ rek xamoo leen kala kay jàngal mooy sa sëriñ waaw ah jeex na. waa ji keroog dañ laa takk saret ndax da ngay joxe addiya. ah nga ne ko waaw. <laughs> te moom bàyyam fàllu la ko tudd. Ah, jeex na. ma ne ko sa bàyyi ma njëkk nekk jeex na. jeex na sa bàyyi laa fekk ci mi ngi noonu mm-hmm. mi ngi noonu <laughs> ku yàlla dogal nga yor école wala ngay jàngale alxuraan wala yaa xam looy jàngale bëgg yàlla indil la ay taalibe summa anzala aleykum min baadil ghammi mm-hmm. <laughs> gisuma Cheikh waaye xam naa mi ngi ree ah, eh, aay boobu ngay bind yaatal miim yëpp waaw moo xam taalibe nga bëgg def ci taalibe waaw bu fekkee élève nga bëgg def ci élève loo bëgg rek def ko ci bu eggee bu fekkee ne mbind mi jeex na ba ci bisaati sudur nga bind Wadduha benn yoon soo ko mënee suul ci buntu école bi baax na soo ko mënee takk ci buntu école bi baax na bu dee daara ji kazalika mom di nga dem bu uti bank wala nga luyuwaat feneen waaw sumaan sal ay commune ba di la xam ni gis nga bo nek stress xam nga nit ñi li leen di poser problème mooy ñu ci bari ndaysan danoo minul alquran bi mm-hmm. wala ñi ci sori wuñu mm-hmm. mais gis nga ay bi gisuma lu ko gëna gaaw ci dind stress su anzal ay ba la man febar la ci jang de waa yow mo gëna gaaw ci stress ah. bii. Hmm. Hmm. dugg naa oto fii yàggul dara di seeti sama papa Tëngéej maak sama soxnaa ànd. Hmm. mu ngi may dégg benn waaye dugg ci oto bi ndeka yàlla dafa xaw a wàññi xel mi mu taxaw ci bunt bi sës receveur bi ubbi bi daal ci kaw mu def ko histoire. léegi nag moom yematul ci ci ci ci receveur bi mais dalay xool ba mu neex la rek mu dagg kurpañ te ko lu maamul ni dóor maa la ko wax. te yaayam la àndal yaay yi mu ñu si dara maa ànd ak sama soxna ak sama doom Mouhamad. boole ma jox ju bëri sama course laa jël rek sama anzal aleykum bi àddil bi bi muy egg juróom-ñaar ma jàkkaarloog waa ji ëf ko ko dafa mel ni ku nu mbéj hmm? dafa tëdd nelaw ban egg arrêt bi koy génne ci oto bi dañ ko dañ ko téye benn sapeur bu nekkoon ci biir moo ko ak beneen waa ju góor ñoo ko téye waajaa ngi nelaw ñu yóbbu ko ci ca feni fajee te boobu gars ñi xamuñu ñu bari comprendre ñu man ma toog jàpp hmm. sama ñàmbur rek est-ce que amul lu ko gën a gaaw ci stress su ma ansalaayikum boo amee stress jàng ko benn yoon nga xool wala nga nekk ci tiitaange nii ñu convoqué la fu mel ne ay yoon yi nga tiit. Hmm. jàngal benn yoon nga dem. loo fi def dal na leen laaj faj feebar laa xam. amul lu mu mënul. moom Muhammad Rasulullah boo leen boole mu gën a garaaw xam nga bu ci nekk 28 xuruf yaa ngi fi. Hmm. ña nga fa. mi ngi noonu. su ma anzalaykum min baadil xam ne amanatan noxaasan taaifatan minkum wa taaifatun. maa la ko wax. qad ahamathum anfusahum <laughs> yazunnuuna billahi xayril xaq zanal jaahiliya xam nga loolu gën a garaaw yaquluna hal lana min al amri min shay'in kul in amra kulluhu lillahi xam nga yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna stress da koy dindi rapidement Jangal ay ben yon nga xol bom kay bo meron di nga kafa bo ree sax do ko tay même fo nek ni xaw fa ragal sa xel dalul hmm. jang ko rek nga xol te jang ko ben yon hmm. ah boobu <laughs> ma sha allah sa jabar ëmb hmm. nek en bonne santé sa dom juddu nek en bon santé daal di hmm. taay nag hmm. huwa allazi yusawirukum fil hmm. arqaami kayfa yashaa laa ilaha illa huwa azizul hakim ki ngay bind mooy saafaraam mooy mooy léppam doo ordonnance ba yow <laughs> kon de bëgg ngaa raw say maas maa la ko wax doo ci toll kenn kenn du la seen xam nga dafa am wax boo waxoon ma am lu ma ci jànge <laughs> da nga garaw ma ko yar ki asan dafa ne eh? bu beccege da nga maaseeg say morom de nga mak len wallahi azim dama ko top asan ya, asan dama dama ko top dar ci tour yalla bu mak la la wallahi al azim faaw nga raw laa naan ni faaw nga raw say mas faaw maa ko faaw nga raw say mas mo bu beccege melen ni ñom mais hmm. bu guddee donal kenen bu ñu yek te bu len wax dara <laughs> nga xol <laughs> bindal sortu Mariama. sortu Mariama. muy Kaafa yaayin saa def naa moom la. Mhm. bu jeexee nga teg ci asmaawlaal xusna wala boog aaya boo am ci soratu Mariama nga dugal nga dugal ci aaya asmaawlaal xusna yëpp mu jeex. bu jeexee lii dama la takkal wala nga sangoo. waaw wala nga suul ci kër gi nga dëkk. Hmm. incha allah rabbi comme ma génération yaa koy raw. du seen sax sa sorat Mariam. soratu aaya boo bind aaya bu la neexee dugal ci asmaa laa sus naa yëpp mu jeex. Hmm. dama ne la bu paree laa la wax. Hmm. takkal walla nga naan wala nga sangu. est que ma ne ñi nga bokkal génération laa la wax amul ku ci seen sa pënd ci fànn yëpp nag laa wax. fànn yëpp tout. amul bu ciy manqué fànn yëpp sans exception. kenn du la seen. Hmm. waaw maam kay yaa ne waa ji jaar na fi ngay dégg. wala waaye maag waa ji suñu kii ñoo toll hmm. doo ko dégg mukk cam jamais est-ce que waaw aadama hmm. idris hmm. nuux huud saalihu ibrahim loot ismail isxaq yaquba yuusuf ayoba suaybu muusa haaroon zulkifli daawud suleymaan ilias yasa yunus zakaria yahya isa muhammad rasulullahi salallahu alayhi wa sallam mm-hmm. nga bind xatmul quran bi benn yoon ut xoromu aw sa naan naan saafara bi mm-hmm. ponkal boo dee mag moo koy moo koy booleeg euh, xatmul quran bi naan ko saafara kiis la dangay am xëy bu da ngay da ngay gis mm-hmm. bu dee gone nag doo ko jox xatmul quran bi tur yi rek ngay bind def ci xorom walla suukare ko lem mu naan ko kiis gu rëy a ngi nii ku bëgg place. Mhm. wala nga bëgg liggéey jamono ji defe naa moom maam chaque chaque jamono sax loola ngi am. Mhm. nit ñaa ngi bëgg place nit ñaa ngi bëgg am xëy. wallaahi bisu nga koy bind. ka annahunna al yaqut. waay wallaahi wal marjaan. <laughs> Mhm. <laughs> ka ñaar fukki yoon. waaw alxemes nga koy bind. bu la neexee bisu altine alxemes sax lañ koy bind. Eh, nga sangoo ko walla nga takk ko bisu altine incha allah rab bu neexee yàlla yàlla dina la may place bu fekkoon ne jàppoo woon ci dara tamit yàlla dina la may ci loo jàpp. macha allah mhm. ba tey tojum liggéey. Hmm. zaariyaati ngay bind. aaya boo bind nga jël bal naq bal bal nax zifu. bil hmm. xaqi ala baatili. Hmm. fa yat muxuxu fa isaahu wa zaaxixun muy nekk benn saar nga jëlaat zaariyaati. ay bo bind nga bind khul jaal haqq wa zaqal batil innal baatil kaala zahuwan hmm. mu nek benen sar nga jëlaat zariyati ay bo bind nga jël innama sanawa kaydu saaxirin wala shuru saaxiru qaisu ata mu nek ñetti safara hmm. nga def ko xambu hmm. di sango di tangal safara si wallahi alazim ligay parane sa yaram ligay yo. sa yaram yow ku kula wax dal ligay day kàcc ne ko waxul dëgg na la ko wax sha allah lolu amna solo amatina solo la ñuy wax. amatina solo. macha allah. góor gu ma bañ ca àgg wala ma tudd ko rek. tuddal kay loolu góor gu tëlee. Mhm. <laughs> te bëgg yàlla dimbale ko ci. Mhm. day bind saafara ne yakuni lazina kafaru mhm. juróom-ñaari yoon. Mm, aw kal lazi marra juróom-ñaari yoon na ko bind téere ndigg takk jeex na bu ko neexee mu boole ci reeni keng reenu senjañ uh-huh. ak reenu posu xam ngeen reenu poso waa uh-huh. ah, kay mu di ko naan su bindee bi takk bi si des na ko booleeg lii di ko naan lu mu tëlee woon bu fekkoon dafa tëlee sept cent sept ans dina dekk ci kàttanu yàlla te donc mm, Samba li Cheikh di wax Samba Diagne dootul nelaw guddi. yàllaahu akbar. <laughs> Cheikh ko tuddee Samba Diagne. waaye <laughs> sëñ Cheikh di ko tudd rek. <laughs> waaw ma ñëwati sama ndomb bi. Hmm. akamaa ko faw. ndomb. waaw. ba taw ba ngay dem. Hmm. nga bind laay ji. Hmm. innama sadaqaatu lil fuqaraa'i wal masaakiini wal aamiliina alayha wal mu'allafaati quluubuhum wa fi riqaabi wal qaarimiina wa fi sabilillahi wa ibni sabil faridatan min allahi wallahu alimul hakim ngay bind téeméer nga jël laa ilaaha illallah 300 yaa qadiru 300 yaa muhayminu 300 yaa muminu 300 yaa muqtadiru 300 nga indi ixlaas 300 ndombali kaalidu hmm. wallahi al takk ko nga dem bitim réew hmm. yooyu ñu agaraaf nga may yónnee sa xol day sedd. allahu akbar yi ñuy nii. Hmm, hmm. moom nga ma yónnee. kooku dinañ ci liggéey ma ak yow. <laughs> Ah, loolu am na solo loolu am na solo. macha allah ku bëgg a mucc ci accident moo xam lu mu mënti doon oto moo xam saxaar moo xam bato moo xam avion lu mu mënti doon. Mm-hmm. boo ci bëggee mucc rawatina ak ñi yore oto. Mm-hmm. bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la gafurun rahim jeex na. jeex na boo duggee ci oto bi rek jàng ko moo xam loo mënti dugg rek. Mhm. te ragal ci def accident rek jàng ko dinga nga wàcc ci jàmm ak salaam. Ah, dara du la dal. bu oto du la fel doo fel oto oto boo dugg kenn du ko fel oto boo dugg du kenn incha allah rabbi da nga àgg ci jàmm ak salaam. ci kàttun yàlla. Hmm? Mhm. lu wér a wér waaw. suma afiidu min haysu afaadana si 111. 111 inna haza la risquna ma lahu min nafaadin 111. haasa ataawuna fam nun aw am sik bi xayri xisaabin saab laxlaqu samawaati wal ardi 33 fois def ko xàmm sangoo ko juróom ñaari fan laahi wallaahi taalaahi ubbeeku nga waaw waaw gis nga nag boo amee sungufu waswasoor waswasoor béréwél ngel def ko ci saafara si wallaahi lazim asan nooy xoolal laay niñ tegloo asan waaw waaw sëriñ nga waaw wér na waa la ko wax ok dama allah lu wér péng la lu am solo nga wax ah ba tey ñu ñëw tuuti ci alquranul karim hmm. bisub samedi da ngay jàng alquran fukki xisib ak benn mooy bisub samedi nga teg ci astaghfirullah mille cent onze salaatu ala nabi mille cent onze nga jàng yaasin quarante une fois bisu al euh, dimanche nga jàng alxuraan fukki hizib ak benn istixfaar 1111 salaatul nabi 1111 yaasin fois altine fukk ak benn hizib istixfaar 1111 salaatul nabi 1111 yaasin 41 talaata kazalika fukk ak benn astaxfirullah 1111 salaatul yaasin 41 aussi kazalika nga def ko noonu alxames aussi même chose aljuma même chose incha allah rabbi bu neexee yàlla sunu borom bu kaamil bi daanu loo bëgg sa àdduna ñaan ko loo bëgg sa alaaxira ñaan ko. est-ce que incha allah rabbi yàlla nañ la ko defal ci kàttan incha allah rabbi. bisimilah aajo la. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. émission Daara Fajtal bu RMD. waaw. waaw man de sëñ Ndiaye lañ may wax. Serigne Ndiaye waaw ma Ndiaye Ndiaye. Mhm. Ndiaye yow de amoo waaw maa ngi leen di ziar bu baax <laughs> kooku di doon xanaa njóobeen la. <laughs> déedéet Diagne la sant <laughs> mais yow moom amoo tur Ndiaye Ndiaye moom. sëñ bi sëñ bi Diagne naa ngay ziar. delloo ziar bu wér Ndiaye. ngeen dafa yite yi. alhamdulilah. waaw man de dama fi amoon ñaari laaj yi ma bëggoon a laaj. bisimilah. waa benn bu ci njëkk dafa am benn ñaan bu ma daan dégg ñu koy joxe borom xam-xam daal moo ko daan joxe ci rajo boobu nag yàgg na mhm. bu ma gënee nekk tuut tànk ci sóoratu Yaasin la ko daan sax mhm. waaye daf ma daf ma xaw wër ci nag ay at ci ginnaaw maa ngi koy wax daf doon wax ñetti sondeel mhm. mu astafirullah juróom-ñaari sondeel la daan wax boo yeggee ci mubin bu ci nekk nga taal benn waaye dama daf ma rëcc daal nu mu koy ko Assane Diagne la ngay waxal waaw boobu daal laa bëggoon mu doon wax naan day faj xaw ma ay cat ak ay rab ak yooyu daal waaw boobu daal bu ma amoon ku ma ci leeral daal dina dina dina am solo trop da ngay téye ligne bi wala da ngay coupé déglu ñu waaw damay damay téye ligne bi waa kay boo ko mënee boo ko mënee waaw da ngay dem géej mm-hmm. maanaam nga tibb ci suuf sa moo xam timis wala fajar mm -hmm. Mm-hmm. nga dugal sa loxo tibb ci nyari ñaari tibb mm-hmm. tibb bu nekk inama amruhu iza arad shay'an an yaqlu kun fayakun nga koy tibbee mm-hmm. bo ñewé ci kër gi nga sam ku juróom ñaari sam mu nekk cercle xam nga cercle ni wax cercle waaw waaw nga sam ku juróom ñaari saam nga jël juróom ñaari mètre lal ko ci digg bi tok ca nga ut juróom ñaari sondel Mm-hmm. ak fukk ak ñeent wala fukk ñett wala fukk almet parce que brin boo génnee boo kositee tàkkul almet boobu baaxatul mm-hmm. léegi boo jàngee yaasin bu ci mubin bu njëkk ba mm-hmm. nga jël benn almet brin kosi bu tàkkee nga taal ci benn sondeel teg fële boîte boobu soo génnee taal tàkkul boîte boobu baaxul nga continuer ba ci ñaareel ba nga taal noonu ba juróom-ñaari sondeel yi mat nga ñaan sa soxla toog ci biir ba sondeel yi jeex nga dajale juróom-ñaari suuf yooyu def ko ci ndox sangoo ko bu fekkee ubbeeku nga bëgg boo ci paree mhm. soo mënee rey seq gu xonq nga rendi ko seq gu xonq incha allah rabbi baax na def barke allahumma amiin mhm. rab yan ñaari daal bu ma nit le e wala mu li taxaaral ma daal def naan ma daal rab mooy mooy ci say mbir mooy li la sonal moo lay xaw a taadeel waaw léegi boo ca xam dara mhm. da ngay ut juróom ñaari ndoxu teen yu bokkul mhm. ak benn ndoxu géej mhm. nga boole ko sangoo ko foo ko sangoo na bu la neex sax nga sangoo ko ci duus baax na boo suba sa yaram oyof toll yëgatoo dara xamal ne rab la waaw su continuer di diis dama seetu luy toj liggéey. baax allah. baax na jërëjëf. Mhm. jërëjëf yal xam ne. amiin jërëjëf. baax na jërëjëf ñu sant. ok. xam naa dañuy fàttali numéro bi rek 77 297 82 42. bisimilah. kenn ñëwul. Mhm. aywa Assane. Codé Ba. Mhm. naam. bisimilah dafa Day. allah inna allaha in inna lillahi ma fi samawati wal ardi xad yaxlamu ma antum alayhi yàlla mi nga xam ne moo la sàkk sàkk asamaan sàkk suuf yàlla mi nga xam ne moom mooy moom mooy kilifa gu mag gi moom mooy moo moo yeeyoo ñu koy bàkk nee na xam na bu baax ci situation bi nga toll est-ce que kon na nga ànd ak sa dignité ànd ak sa ngor. Mm-hmm. yàlla moo wax loolu. mais danga ciy déggee que. Mm-hmm. Mm-hmm. bisimilah. Ah, waaw ah? laay ji ngay bind nii ma nii nga ko gisee nii. sooratu nuur la nekk moo mujjee moo tëj aaya ba moo tëj sooratu nuur. allah إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه بسم الله وعليكم السلام عبد كريم نعم نجي زيار الحمد لله شيخ مختار كام مختار كام مختار كام اه نجي زيار ñu delloo ziar allah. ñu ngi kontaan ci gan ñi. waaw Assane Diagne. ak Côte d'Ivoire. waaw ñu ngi kontaan ci baax. wallaay ndeysaan. yàlla xam-xam bi ñu fi wàccee macha allah yal na yàlla barkeel ko. amiin. yàlla dolli leen wér te dëgëral leen. amiin waay ndeysaan. ñu ñaanale baax nag suñu góor bi Cheikh Tidiane Niang. yàlla dolli ko jàmm. amiin. dolli ndamam te yàggal ko fi lool nag. amiin amiin. parce que moom itam allah ñu laaj ay laaj yu ndaw rek. Mhm. am na ko ci joxe woon kiis bi bi di bi ñu basmala bi. kiisu. basmala bi ñu si bi ñu si kere basmala waaw. bi ñuy bi ñuy zikkër. waaw basmala waaw. Mhm. waaw na am na lu mu ànd ko. waaw xam naa code bi moo ko joxe woon. basma la ngay def deux mille cinq cent. Mhm. deux mille cinq cent. waaw nga tëj nga nga in nga tëje ko nag mille cent onze yaa raxmaan. yaa raxmaan. waaw yaa nga koy tëjee mille cent onze basma la deux mille cinq cent yaa raxmaan mille cent onze. layil asim ñam ko. ñam ko jours laa la may. 45 ah, nga yëg loo mus tey. incha allah waaw waaw. daa bëgg may dégg. <laughs> ñu ko dinañ ko joxe ci kanam incha allah. waaw kay ñu jëf leen di suivre xanaa di fàttali numéro bi rek 77 297 82 42 bisimilah. waaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. ah sëñ Kaay du Gaye. waaw sëñ Bokum. waaw sëñ Cheikh Bokum. kon de bopp doyal ma ko yeewal ci studio bi jàppal ma ko. ah lu tax. waaye kon ba benn sindi di boo xamante ne ma ciy dóor dàqeeg moom. Ah. <laughs> ay at. ko ko. Ah. jox daa di kon tey jàpp nga ko. munu jàpp nga ko tey jàpp nga ko. daa di wóor ko. <laughs> waaw waaw la de noonu la mel de. seex. <laughs> kon noonu la mel de ma loolu moom xam naa ko ci moom. waa gars yi sant nañ waa dellu sant alhamdulilah bi tabarkalla. macha allah jërëjëf. moom daal yokk ak ndam rek. waaw xam naa ne nag bagage su sëriñ yi ngeen joxe moo ëpp nag ak bagage yu dongo. ah yow. waaw ah, yow bokkum yow sëriñ nga. yow toogal waay yow. <laughs> bokkum yow sëriñ nga li la xam lool rek ma lay wan na sëriñ nga. bagaasu bagaasu donc simple bokkum yow sëriñ nga. li la ko wan rek ma lay wan na sëriñ nga. <laughs> macha allah ni mu ko ràññee ma lay wan na sëriñ nga. Mm-hmm. bagage sëriñ yi. Mm-hmm. ak daara moom bëri na waaye bagage bi la moom bëri wu xam na gaa ñëpp kii. waaye lépp tawféex la. waaw tawféex waaw tawféex tawféex. waaw waaw sëñ sëñ Diagne yow moom moom tarkala laf cet. tawféex mm-hmm, jërëjëf boobu. tawféex waaw tarkala laf cet moom ndax. tawféex saa borom moom def na ne. dimbali na leen ci ak laabiir. waaw saa borom moom dimbil na leen ci ak laabiir. ak ci nangoo jox xam-xam. alhamdulilah waaw ndax bu la neexoon tamit garde say bagage garde bagage sëriñ yi ndax li nga joxe bagage sëriñ yi ci ëpp de <laughs> donc bu la neexoon te téye say bagage sëriñ dëgg la waaw di ko xóomtoo ci suuf taar kal la wala wala nga ciy wàññi dara mm. Mm. waaw bilaay waaye boo yoree waxande yu bëri wóor na ko jëfandikoo ba mu jeex mm. xam nga nu koy waxee foog nga am loo ci comb jox xam nga nan laa koy waxee waaw yàlla mu lay invité waaw tegal la banquet li tubaab di wax banquet. taabal boo xam ne lépp ay ñam la. waaw service mënoo lekkandoo lépp service libre dolli ci waa kay yaa am ci dolli service libre. mënoo lekkandoo lépp. xanaa boo ko rekk ay invité ay gan ñu lekk si. jeex na jeex na macha allah. waaye ah, denc ba dee bokk fi. foog nga am loo si coom bu jox gaay wax dëgg yàlla du si ñàkk de. te nag nit la nga gën a bëgg. Mm. boo ko dee joxe day yokk. ci lu wér. waaw waaw moo tax saa soo ñëwee raat rek dama kàlla la jot. Mm. macha allah. am mm, saa borom barkeel. waaw kon moom day aalu moom. <laughs> waaye kon te ku la bàyyi gën nga wàcc waa ci palaasam. waa gis nga de gis nga de gis nga de. te côté boo waxee ak moom mu ne la ay xaaral ruusul ak xaaral laa. wax leen ci ndax mu tane. bu ma non kay contrôler allah. mais ma maa maa koy indi nag danaa ko indi baax na kon xanaa ñu fas yéene barkeelu rek. bisimilah waaw bisimilah. Mm-hmm. comme que xam naa ne. Mm-hmm. Euh, julli simple yi léegi dañuy soxla yu simple. Mm-hmm. ak ndong ak ndongo simple yi. <laughs> loolu dañ may wo ne ma ne ma wooteel dimbali ñu nga joxe yu simple. waaw sëriñ lay dégg de ñoom sow ixlaas ñu ngi lay dégg de. waaw <laughs> ixlaas borom borom borom allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rafet darajaati wudu <laughs> bisimilah dafa dal. yéen a ngi yéen ngi waxoon ci corona bi ak feebar yi wàlle. boo liggéeyee 66 bas ma la ëff ko ci ndox. Mm-hmm. feebar feebar duñ la ko wàll. dëgg la dëgg la. boo foog naa ku ne dina ko war a mën a waaw macha allah na waaw tudd ngeen fi wàllu mooy yàlla. Mm-hmm. waaw boo bindee 25 alam nasara di ko mm-hmm. jëfandikoo naan sangu. dina lu mu ci lool. wala wér na wér na. mu mel ne tudd nañ fi wàllu ngelaw. gis nga lii ñuy wax li lii ñuy wax euh, ngeer bu verte bi ngeer bi nga xam ne day doog a jóge ci waaw bu bees tàq bi waaw nga nga nga koy suuroo hmm. lu mu fekk da koy dindi hmm, masha allah waaw wax tudd nga tuddoon ngeen fi dem sóoratu taxrim hmm, waaw ci wàllu doom doom waaw gis nga moom boo ko dee jàng boo ko dee jàng doo tële boo ko fekkee sa moppalal doo génn di sëy tabarkàlla kon boobu tabarkàlla masha allah boobu Akban, Akban mel na xas ak ban encore waaye ci wàllu doom bi ba tey mu mhm. mel ne xastan yàlla wala ñu jaadilu bopp mhm. bu ko bindee moom it bokk soxna si naan dina leen dimbir ci wàllu woowu mhm, macha allah ki ngeen tudd ci wàllu jëkkër bu mel ne tudd ngeen ko yi waaw yooyu yëpp damaa ko tudd xam nga man moom <laughs> li yàlla xam doy na <laughs> aywa waaye li ngeen wax yëpp a wér man damaa waroon am àddiya ba ba ko ci compte yi rek ah waaye compte du laal dara waa waa kay dénk ma lépp li war a dem ci moom sax na jaar ci man. no mere nga ma dawloo ko. no mere nga ma léeg ma laal la sax doo ma faale. léegi kii ci wax jëkkër kii wax jëkkër. Uh-huh. tudd ngeen fi xam bu jëkkër ak jaar. waaw. mu mel ne boo boo jëlee boo jëlee kilo kilo yàpp xar. Mm-hmm. kilo yàpp bëy. neex na de neex na de xool ci ndox. xool uh-huh. ci ndox deux minutes. Uh-huh. daal di koy seppi. borom sangoo ko. da def ñu sarse ko. diir bu gàtt mu gis dara yi fëgg buntam. ah macha allah. te moom loolu rek la ci am xooj sangu rek. waaw loolu rek lay doon. Hmm? macha allah lay doon. macha allah <laughs> gaye ni mel nan la de. bu <laughs> ci wàllu feebar yi dé dégg yi. <laughs> Hmm. boo defee ji boo defee juróom-ñaari tabat yadaa. Hmm. boo ko juróom-ñaari reen garab yi bokkut. borom naan sangu. waaw dina ko jiwu ci wàllu. loolu lu wér la macha allah. waaw loolu loolu loolu dina jox ci wàllu. wér na beng maa koy seede moom. mu ko wala nga bind ku ci mel ne. Euh, Youssouf ak Magam yaak rakkam yi ñoom loo yëg. Mm-hmm, mm-hmm. ñoom Beñaam yi mm-hmm, waaw ñoom ñëpp am naa tur yi nag waaye du ma bindee ñoom bisub altine. di ko naan dina dimbali ci wàll feebar. ci lu wér. wàllu xew bi ngeen doon wax ci am xew. surtout xadar yi ngay bind benn yoon. comp mhm. xorom def ko ci daal koy takk. Mhm. suul ko fi digg géew bi. Mhm. xaw ma dina neex dina xumb te dina xormu. incha allah moom moom bul sax soxla diwa gi. bàyyi ko bay jàngi dox ba sori. nga ne ko diwoo mu geesu. di ñëw di la wutal si nga jàng faatee. balaa muy egg bi jeex nga ne ko am ah, bàyyi ko. waaw. boobu de boobu dina jox kuy fay bor. ngeen ko. mu mel ne boo taxawee ci kanam jàng ñetti la xal ko ba mu jeex. Mm-hmm. laaj ko bor. Mm-hmm. loolu dana ko jàppal. macha allah. Mm-hmm. aaya boobu gën di wax aaya konte ba boobu danañ ci wax. fonction eh. bi mën naa ci biir boobu. woo ko le ministre yi waaye kan la moom boo ko bindee 33. bind fattaahu ak razaaxu moom it 77. daal leen di def saafara di ci biir butéel bi daal di jël xeetu meññeent ñi nga bëgg ñoom dugub ak ñoom affaire yooyu def ci biir butéel daal di koy tëj. daal mhm. koy suul ci biir ci biir waañ bi mhm. boo ko suul ci biir fa ñu toggee. waaw su ko defee nag ngay ngay sikkar nag. Mhm. nga sukkat aaya bi 333. ba pare di sikkar tur yi 777. fa Jallasa. waaw Jallasa. 333 Jallasa. ñoom dañoo dañoo jóge ci adadu adadu huwa. daal di ñëw ci adadu kaafi. ba tey aaya boobu moom it fam siw boobu bàyyeegu ko. boo ko jëlee sept fois nga bind ko sept fois. boole ci. Euh, li ñuy sumbu sumb fu sumb fu sumb fu bakkanu bukki daal di koy boole kook tamit isaa jaar set daal di daal ko daal di koy def saafara daal di koy def ci butéel daal koy suul ci marché bi juróom-ñaari fan daal koy sulli wax bu juróom-ñaari fan demee di ko wis ci njaay njaay moo wis mu mu mu daal di jar ci lu wér la bañ mu jar bu ko laal lu wér nga wax lu wér nga wax macha allah kon yow wala jàppee rek nga maa la ko indil maa la ko indil ba sa kër dinaa laajte sa kër indil la ko ba sa kër incha allah bu la dara metti mais li nga koy yónnee na jaar ci man dégg nga comme ça ma dawloo ko incha allah. léegi su ko defee boo jëlaatee ba tey famchu. Mhm, mu aaye boobee nga daal di koy nga daal di koy jàng juróom-ñaari yoon. Mhm. pour sëriñ bi. Mhm. nga jàng ko juróom-ñaari yoon daal di boole yi maanaam aay bi nga xam ne moom moom moom wala xayru raasixiin moom aay bi nga xam ne moom moom mujj ci juróom-ñaar dina indil client ci wàllu ki yor euh, place di ñaan waaw kay ci lu wér ba tey bu fekkee mu mel ne ñu ngeen wàllu tukki bu neex fii tukki bëgg tukki bi neex nag euh, wa man yuhaajir fii sabiilillaahi yajid fil ardi muraaqan kasiiran wa sa'atan fa la mm, yem mm, mm. def ko adadu kën kënsu mm-hmm. bind ko ñaar mm-hmm. balaa moo dem xooj benn bi ci somb ci suufas mm-hmm. dëkk bi daal ci bu yeggee ci dëkk bu ne cëpp xoojaat beneen bi sampat ci sompat ci suuf dëkk boobu sangoo dina indaale ay xewal mm-hmm. gis nga aaya boobu <laughs> waaw soo ko bindee juróom-ñaari yoon waaw gàllax ndikoo ko tuur ci suuf la nit liggéey yoon mu denc ko la liggéey yàqu xoolo boobu ni mu gàtt ak yii moo baax ci jullit simple yi <laughs> xam ngeen yéen dama koy wax gars yi man leen dafa am secret yoo xam ne pour sëriñ la am secret yoo xam ne pour ndongam daara la pourtant laal nañ fi yu ndongo daara yi de ay tànk yu métt ak yooyu kay ndongo daara yee ko moom waaw boobu kay tabarka am secret yoo xam ne pour jullit simple la waaw ndax bagage sëriñ bu mat bu tàbbee ci loxol ci loxol jullit simple rek daf yi taxum réew ci lu wér waaye nag alhamdulilah ba nga xam ne yow simple waaw kay kon nit nag moom day maamu dee leen ko jàpp. léegi maa koy jigéen incha allah. <laughs> bu dee mu mel ne ki nga xam ne dafay dër dafay dër di wax buy wax day dër. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw mu mel ne boo bindee rabbi shrah li sadri ba mu jeex. Mm-hmm. daal koy def ñetti yoon. ah juróom ko tàggu jolox mooy picc bopp nga xam ne dafay nekk jaune noir. mu gën wax ko quatorze jours wax na ne dina dina oyofal làmmiñam. ci lu wér incha allah. tudd ngeen fi bët wàllu kii kii jàmbat bët. xam naa ne. tubarkaan la boobu tamit ci yéen wax ci alquran la hmm. moo wax ci bi nga xamante ne tegtal la hmm. ndox moo xamante dafa dafa tolloog température ambiante bi hmm. température bu mbett mi rek suba gi nga yeewu nii suba teel gi avant euh, naaj bi xaw a sori nga daal ci nëkk say bët xool xool xool xool ba sentir ne say bët ngi weex bu tàkku saanee bu naaj bi dugg nga ko dina leral say bët waaw loolu moom ku ku ku ko def di di di dina leer sa bët. incha allah rabbi maa ma mm-hmm. waay ay ay mm-hmm. xam nga code mi ngi koy wax sànq bu ànd ak Muhammadun Rasulullahi boobu. nga xam mm-hmm. ne lu mu fekk yow moom looy rek taxaw jee xel ñaar taxaw koo ragal rek ko jëfandiku. bind benn takk. Mhm. bind benn bind benn naan. Mhm. aaya bi nag mi ngi nekk aaya 104 ci Al Imran. pour ñu ko soxla dëgg mhm. ñu ko soxla xam naa ah. yi defe naa dana doy xanaa. macha allah macha allah. kontaan ci yow kooku jaajëf jaajëf. kon de bu ñu ko jàppee dina <laughs> waa kay sëñ Diagne sant na la bu baax jërëjëf boobu jërëjëf Diagne yàlla yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbi leen bu a baax waaw dëgëral taalibe gi amiin waaw loolu rek la ñaan yàlla mhm. waaw kay dëgëral sàmmal leen ci moom ku yebu ñu ne ko ñaanal rek waaw kay moom daal nañu ci yàlla dundal rey ñu ci dekkil ñu ci

xam naa di profiteur di nuyu bu baax a baax euh, maam Ousmane Diop. Mm-hmm. waaw yónnee léegi message. Mm-hmm. di ko di ko waaw di ko ziare bu baax a baax Cheikh Ousmane Cheikh Ousmane Diop. waaw waaw ñu ngi lay nuy di la ziare sama wëllëre la barki démb rek woon na ma macha allah. ak euh, waaw waaw ñuy wax ne soxna faat Diol ak Aïda Cissé ñu ngi ñuy gunge. ak Kumba Diaw Yara. waaw ñu ak Fat Bintu waaw bisimilah. waaleykum salaam salaam wa Saly du noo leen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. wala Aïda Cissé. waaw maa ngi lay tudd léegi. dégg na maa koy dégg si sa noo def. sant alhamdulilah Cissé. Codé Ba. waaw waaw mm-hmm. Cissé. ñu ngi leen leen ziar. waaw kay allah. macha bi neex na. jaa ñu wax nga dëgg nit day am sëriñ. waaw ci lu wér kay. seen taxawaay rafet na. Mhm, mhm. yéen a ngi jàngal xam-xam di ñu gunge di ñu tette. macha allah yàlla na seen jàmm seen sutura yàgg. amiin boole ñu ko ñun ñëpp macha allah. ñoo ngi nuyu seen Cheikh di ko ñaanal tamit. Mhm, waaw ak monsieur ñu ngi di nuyu. président maa ngi kontaan nañu kontaan nañu. jaajëf macha allah jaajëf jërë ngeen jëf. nuyu ñu Ndeye Fatou Diol. ñaaña mbay waaw waaw non dugg bi kay du yomb moom. ñaaña mbay daara jee aye tey dugg bi du yomb. non daara jee aye. ñaaña mbay waaw daara jee aye macha allah. macha allah yàlla ngeen yeggale seen sago. amiin yaa rabbal aalamiin jërë ngeen jëf. jërëjëf Cissé kontaan nañu Cissé dañuy kontaan jërëjëf jërëjëf ñu nuyu Maguette Maguette Diop. Habib Habib Seck. Habib ah, Seck Mouhamed Habib. waaw ñu ngi leen coordonnateur. waaw Mouhamed Ndaw bi bi ci teraas bi lañ jëm. waaw loolu la wax loolu ci terrasse bi lañ jëm terrasse ba lañ jëm la ko wax. <laughs> waaw moom yónnee na ma photo yi sax. ah lañ jëm ah. sa oto la laa yëg. ak man billaahi wallaahi taala. ak ren maa ngi farxa de. président lang naa ci yow. <laughs> ci yow laa lang ren. a jàpp ngeen date bi. non non la rek. comme incha allah mm. jeex na farxa lañ jëm de. Mm. waaw. daara kenn ñuy wàccee farxa à zéro li ko gars yi di ah? dañ koy wàccee à zéro convoi lay ne. moto day am. daare fàccal à farxa. <laughs> incha allah <laughs> rabbi. daaray Fatial à Farha di nuyu sëñ Baba Mbeng mm. Bilal waaw waaw Bilal Jinne modérateur <laughs> oh, di nuyu Bilal Bilal Sën mm-hmm. waaw Malick euh, Malick nekk mm-hmm. Bilal Sën bisimilah mm. waaleykum salaam wa rahmatulah Ikhlaas ñu ngi ziar xanaa bala may dem may wax ngeen fàttali auditeurs yi bari ñu ngi may woon ne ma xanaa rajo bi dafa doxul wala mais numéro bi kenn mënu ci dugg de ah. waaw bu ñu insisté ba sonn de. 77 297 82 42. 77 297. 77 297 82 42. ah waaw mooy mooy. nga xam naa dafa seere rek. Mm-hmm. xam nga ñëpp la ñu attaqué ligne bi quoi. maa ngi nuyu waaw ñu ngi lay ziar euh, kooku. man la honorable député. ah honorable. honorable bu daara faccal euh. voilà honorable naka waa ginnaaw raay raay ñëpp a ngi lay nuyu voilà ah. hmm. gañ ngaa gis Badara Gueye gañ ngaa gis Badara Gueye Badara nii de ah. ak rakam ah, samay sangalan de samay sangalan wax kay Kër Mère Ndeye Gueye. depuis quatre-vingt-deux la ñu nekkoon woon foofu. macha allah. ba quatre-vingt-deux sama studio bi foofu la nekkoon gannaaw raay noonu. Mm-hmm. kon maa ngi leen di nuyu auditeurs yëpp. wallaahi kay. allah ba pare di leen ñaanal jàmm. dañ la gëj a dégg sax. waaw waaw xam nga rek euh, toogaay bi ak euh, kii yi rek. Euh, mm-hmm. yàlla ñu yàlla defal jàmm. amiin yéen a grand frère vraiment yaram bi dafa na xayte ci bopp bi mu am problème. Hmm. bopp bi. mu serveur daal la amee ngi laaj ñooñu borom xam-xam yooyu. Hmm. nit ak sagoon. Hmm. fàtte li ñuy fàtte dafay bari trop parfois. waaw may laaj ndax yéen fàttali mën nañ ci dara wala déet. maanaam li muy fàtte daa bëri. moom moom moom doom day fàtte. bi mu commencé dama gis oto bi mu yoroon day doon ñu waxtaan ak nit ñi ba mu neex ko rek buy ñëw sax wàcc ko fa. bi. wàcc fa ñëw ci hmm. ah, mas na <laughs> mas naa dal sama patron de ma ne ko mas na dal sama patron de mais moom moom <laughs> mbiru àddinaa ko jàppoon. <laughs> ma ne ko sama patron de bi mu ko dalee moom mbiru àddinaa ko jàppoon. xam naa ne kër gee xaw na doy waar rek mu dem dakaar fàtte fa oto bi jël super ñibbi si jamonoy super. man li ma koy jox. Mm-hmm. man li ma koy jox. waaw déglul ko de. man li ma koy jox. Mm-hmm. da nga koy bindal yaa xayu yaa xayum bi rahmatika astaxiisu. yaa yaa xayum bi rahmatika astaxiisu. bi rahmatika. astaxiisu ah, waaw boo ko bindee. Mm-hmm. adadu cent cinquante. cent waaw mu def ko téere mbaxana ci biir bopp bi lay nekk tiim bopp bi mm-hmm. incha su yàlla dogalee loolu dana tàggoog moom yaa xayu yaa xayum bi raxmatika astaxiisu mm-hmm. waaw waaw xam nga euh, léeg-léeg léeg euh, xalaat yu metti moo koy joxe mm-hmm. moom noonu la mel ci noonu lay def ci kuy fàtte noonu lay def ci moom daal na ci yàlla def barke. wala bu fekkee moom. bu fekkee ne miin na yaa maanixu. yaa. yaa maanixu. waaw da koy zikkar cent soixante une fois. soixante une fois cent soixante une fois. waa kay mooy jàpp tur bi mooy ma yaa maanixu. bu paree. mu teg ci imnaa nii imnaa nii waaw xaazal marada waaw wamnaa nii minhu waaw mu tudd feebar bi bu neexee yàlla incha allah rabbi léegi mu wér ci kàttanu yàlla taalibe la baax na xam naa nga bàyyi sa numéro jël ko. waaw toppal émission bi rek incha allah dinañ ko joxe ci kanam. Ibra Ndiaye ah, mais de toute façon Kalidou ne ko ñu ngi koy topp ci internet bi. waaw incha allah. bu digg tamit ñu fàttali auditeurs yi tamit bu ñu demee ci internet bi bu ñu gis kii foofu rek nañu gis émission bi fa en direct. waaw waaw waaw Facebook bi. waaw ci Facebook bi waaw. waaw nga am ñoo xam ne ñu ngi manipuler seen portable yi. Mm-hmm. bu ñu demee directement nii mën a dégluwaale. Mm-hmm. macha allah waaw d'accord incha allah. Cheikh Ahmed Tidiane nen. waaw waaw mu ngi lay dégg. sama xarit nag Souleymane nag ak sama góor gi Malima Ndiaye. Malima Ndiaye waaw. Mm-hmm. ñooñu dañoo bokk ci émission bi. dëgg la. ñu leen sax a defal leen fan wu gudd ànd ak wér. amiin waay amiin a. incha allah mm-hmm. président. leen di baal a baax si wax auditeurs yi ndax auditeurs yi bari bari ñu ñu ngi ci ligne bi dëgg la dëgg la xanaa ñu ci bàyyi xel rek incha allah di gàttal. ñu nekkee ci téléphone bi nii rek dañuy woote ba sonn du ñekk. la dëgg la. jërëjëf jërëjëf honorable député honorable macha allah code de port la woon 297 82 42 77 297 82 42. pour ñu bëgg dugg ci ligne bi. code de port la woon. waaw <coughs> entreprise. <coughs> boo yor. bisimilah. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. di ziar. dinañ ci jàmm. sant yàlla. doo yëkkati baat bi tuuti. mais waxtaan yi neex na lool. waaw. Mhm. jërëjëf yàlla xanaa danga nga takk écouteur. waaw écoute da nga def écouteur. maanaam wàllu soxna daal. wàllu ko pour da nga ko yittewoo. maanaam am na koo xamante ne maanaam moom soxla su mu day ah, dem ah day dem nee xam ne soxla day dem. waaw day tax moom daal. wala poos dem ci maanaam day ah. day tas. yow la wala sa benn nit sa benn mbokk. Ah, ah. mm-hmm. ci ñaata nga toll benn wala ñaar yu dem. mais ñaar. waaw ñaar dem na. Mm. allah. waaw lépp daje ci moom. xool ah, rab la wala. Mhm. daal mhm. ko mbaa lépp daje na. charte yi daje na. maanaam dëkkal dëkkoo dundal wodd. Mhm. waaw waaw allah macha allah. ñoom dañ comme ni mu koy waxee si jamono ji rek dañu yow da nekk sa waajur daal. waaw. ah waaw waaw waaw. ñëpp ah, loolu moom ah. loolu moom mënul nekk. loolu moom day du dem. loolu moom baaxul. Mm-hmm. loolu moom du dem. ma yóbbal te nag moom ah, ay suuf lay jaay ay terrain bu soxla woon ci ay ñaan daal. Mm-hmm. day jaay suuf ak terrain. Mm-hmm. waaw dafa mel ne waxoon nañ ko ci début bi de. moom Assane mën na ko. xanaa nga waxaat ko ko rek. waaw kon insha allah balaa ñuy yëkkati jotaay bu ñu ko yàlla maye terrain waaw dinañ ko waxat insha allah insha allah rabbi jërëjëf mhm. kon de waaw ba tey nga ñëwul nga yor entreprise nga bañ entreprise bi daanu wala yaa ngi nit nekk ci ay xat-xat da ngay bind laay ji wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum ngeureel mimu bikum bi def sa tour ak tour entreprise bi ci bir nga bind ma yaftaxillaha linnaasi min rahmatin ba mu jeex aya bi yang koy bind bismillah allo allo assalamualaikum mm-hmm. uh-huh. euh, salaamaaleykum aleykum salaam maa leen di ñu ngi lay ziar baax ñu ngi ziar jere ñu dama ab leeral bu ma bëggoon rek def. Mm-hmm. Euh, dama damay faral def saa yu mu jullee julli farata ba pare. Mm-hmm. damay jàngal lixlaas ñetti yoon. Mm-hmm. boo ànd ak bisimilah raay sama ji. jàngaar ko raay euh, raay sama dox. am na bu ma wax léegi subhanallah bi xam ne wa subhanallah azim dama koy def ñetti yoon. boobu tamit dama koy raay sama jë raay ko sama dox boobu tamit waaw ak sama euh, defaat ko ñetti yoon sama këru nopp bi ak sama beneen këru nopp bi su nekk dama koy def ñetti yoon waaw dama ko ci laaj euh, ay leeral ba xam maanaam ndax ni nga ko defee baax na baaxul waaw waaw waaw waaw ah, dara nekku ci ah. bul ko bàyyi te continuer ko waaw doo ci gis lu dul njariñ macha allah. waaw incha allah. waaw ndax loolu euh, euh, maa ngi ko dégg euh, kii bi subhanallah bi nga xam di wa subhanallah aljim bi. dama mos dégg Konde mii mas ko joxe. Uh-huh, uh-huh. si benn groupe WhatsApp. Uh-huh. Mm. waaw Konde mii moo ko mas naa ko dégg mu joxe ko si groupe al al Moustapha. wax nga dëgg. waaw boobu euh, léegi nag si laay si kii kii di ko def noonu quoi. Hmm, baax na de. ah man toll naa ay jamono dépense euh, depanse daf ma daan sonal de. ah wallaay azim man daal benn góor laa taseel mu jox ma ko ne ma saay boo sëlmalee julli wér di ko cent soixante six. Hmm. billaahi boobu naan temps dama ne xanaa man damay luxus man. Hmm. temps yu kale ah, dama ne xanaa man damay luxus dépense man. loolu la subhanallah ba am di subhanallah al azim. Mm-hmm. la ilaha dama ko tudd rek sa waay yëngatu. Ah, man de maa ngi maa ngi bi nga joxee si groupe WhatsApp Al Moustapha Darou Assane Fatel. Mm-hmm. foofu laa ko déggee lu wér la man saa yu ma julli julli fa ba pare rek. Mm-hmm. dina dinaa ko def ñetti yoon raay sama ji. defaat ko yeneen ñett raay sama doxo. defaat ko beneen raay sama nopp ndijoor beneen bi doxo nopp càmmiñ. macha allah. bul ko bàyyi de. ah, ah macha allah. Hmm. waaw ne yàlla na yàlla barkeel. amiin ca kaw ca kanam rek incha allah. Ah, incha allah yàlla yéegal leen ci njëg waay. amiin amiin amiin amiin amiin. Eh, macha allah yàlla na yàlla defal jàmm li ngeen def am na solo. xam. baax na incha allah ko bàyyi. jërëjëf waay incha allah. boo noppee nga tef ci maa maa yaftaxi laaha li naasi min rahmatin. Hmm. bisimilah. waaleykum salaam. waaleykum salaam yéen a def émission bi waaw. ñu ngi rafetlu seen na yàlla barkeel liggéey war a wax moom bu ñu noppee rek ñu war a wax ñooy wax. wala ñi. ñi war a wax bu ñu noppee ñi warta wax ñooy wax. ñu wax nga dëgg de. xam nga gars yi ñoo gën a wax. léegi ñëppay wax. waaw wallaay wallaay wax ji bëri na. waaye ku waaye li ngeen wax nii. wallaay ndeysaan. wallaay macha allah ñu xam ne yéen rek yéen a war fii de mooy fii mooy Daara Fajtal. wallaay yal na yàlla barkeel liggéey bi. amiin jërëjëf. amiin man bëriwuma sax lu may woote moo tax ne moom. macha allah jërëjëf jërëjëf laa tudd nag ñu rafet naa. Mansour jërëjëf. Mm-hmm. jërëjëf Al Mansour. waaw yal na yàlla barkeel parce li ngeen def nii ñu ngi si gis seen bopp. wallaahi dëgg jërëjëf. jullit moom saraxam dafa bëri. di mhm. am xam-xam di ko joxe loolu sara la. dëgg la ci lu wér. waaw yal na yàlla barkeel leen. amiin waay. vraiment baax a baax a baax. Mm, jërëjëf sëñ Ba jërëjëf li ligne moo xaw a xat rek ñuy woote boobu ba léegi. wallaay wallaay dëgg la ba léegi nit ñaa ngi ci ligne bi. Mm-hmm. yal na yàlla barkeel loolu ndagal yàlla boole ko ji. ndeysaan. ak ji moom léegi ñëpp mën mais nag. waaw. bu ñu topp topp rek xam ku mën sa morom daal. waaw <laughs> jërëjëf. fan fan fan la bërëb bi nekk foo ñu ngi fii ci. building communal building moo taqaloog banque BCEAO. rue 22 bi. la ci boori RTS. boori RTS. Ah, waaw démb bi seen numéro la. ñu ngi jàkkaarloog banque euh, BHS. après dina joxe numéro bi après. ah bi ku ci woote na jël ma. Ah, waaw même boo ci wootee. ah seen la. après dinañ joxe après dinañ joxe numéro yi. Euh, invité yi fi toog yëpp kenn ku nekk dinañ ko dinañ joxe numéro. même bu fekk vraiment kontaan. Hmm. mais boo bëggee bokk ci daara ji. Hmm. waaw da nga fiy ñëw bisu alxemes. ci tàkkusaan ah. boo ñëwee bu boori RTS rek nga laaj ci banque centrale ñu ak banque centrale bi ñoo tàqaloo ba sa yaawoo bi. Hmm. boo duggee ci suuf rek ci jàkka ji. waaw damay ñëw foofu lu bari. waaw mu ngoog foofu la boo ñëwatee rek nga jaar fa boo ñëwee nga laaj ci Kalidou Gueye mii ngay waxal. ndeysaan yéen moom samay soppe laa leen def léegi. waaw kay def nañ la soppe. waaw sama dafa sedd guy parce que damaa xam affaire faj bi nekk Sénégal. Mm. est-ce que. Mm. chaque jour man oto laa yor chaque jour kii dina ma diw jox naa sama xaalis gisuma dara. ndeysaan. du ma tudd tur nag waaye. Mm-hmm. waaw vraiment ñu mel na yéen daal ñoo war a wax. jërëjëf jërëjëf Mansour. waaw ah, man xam naa loolu waaw yal na yàlla xam nga ñun ñoo ñun xam li xew si dëkk dëgg la dëgg la. waaw parce que ñun dañuy moom kay dan nekk kii di borom oto. Ah, oh. kii di borom oto kii di docteur. kii di service de l'ordre ñuy tuddee militaire ak policier yooyu. ku bëgg a xam li xew ci réew mi laaj leen ko. Hmm, hmm. wallaahi waaw waaw. ak yii dañuy ba am problème bu ñu feebaree fan lañ war a dem wala. Mm-hmm. Mm-hmm. yàlla xam na ko mu ne ñu ngi fi macha allah di def te yàlla tax. Mm-hmm. nag ñun amuñ seen fay mais yàlla na yàlla. amiin amiin yaa rabbal bu baax te li may wax ma ko laaj. jërëjëf Mansour. macha allah. maa ngi leen di suivre ba ci kanam. incha allah boo bàyyiwul antenne bi daal di nga dégg suñu numéro incha non non yéen du yéen kay waxuma bàyyi àndale yéen sax du ma ma amul sa am rek. amul. déedéet am déedéet amul amul parce que dama saalit quoi. kenn du la bi macha allah. yow da ngaa saalitu rek da ngaa kontaan. non wallaahi laazim damaa kontaan ba xamal ba. man dafa dogal dama yor camion dem ci bi dem bu ñëwee ñu ne ñu ne non ci sëriñ bi day naxaat day hmm. bu leen yàlla tey li ngeen fi wax nii même ku jàngul sax. Hmm. maa ngi dégg seen waa ji di wax naan ku gàtt alluwa mais même ku xamul dara di jàng sax. Hmm. bu déggee li ngeen wax dina xam ne ngeen na maanaam. macha allah. waaw vraiment daal kontaan na ñoo gën kontaan. da dafa fekk na foo dem rek di nga fa fekk euh, ñu jub ñu xaw a jub. Mm-hmm. ak ñu dëng mm-hmm. loolu moom fépp la fépp léegi nag buñ jëlee ki dëng nag xëpp ko ci kaw ñu xaw a jub ñu ak ñu jub dana yàq il faut ñuy ràññee kii nax nit yi ak kii ñëw te yàlla tax day métti mm-hmm. ba pare exemple gis nga si jëwriñ ñu xam mooy bi ñu juddoo ba léegi yàlla musul wàcc lu wér lu wér ay jaam ay boo feebaree nit moo lay faj boo dee tabax nit moo lay tabaxal bu sa bopp day métti nit la koy moccal wala nga dem si médecin kon nag ñun yàlla yàlla mu ngi jëmm yi Mm-hmm. waaw kon lu ñu dag am ñu génne seen cër. Mm-hmm. te wax dëgg yàlla wallaahi al azim ñëpp dañoo war a roy si yéen. jërëjëf. waaw man de wax dëgg yàlla man de li ma li ma dégg nii ak li ma dégg tey li ma. Mm-hmm. man de wax dëgg yàlla maa yàgg naa Dakar mais maa ngi koy soog a dégg. jërëjëf waay macha allah jërëjëf. kon yàlla na yàlla barkeel leen rek. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. moom xam naa ne kontaan te ñëpp ngi leen déglu tamit. incha allah. waaw jërëjëf. jërëjëf sëñ bi jërëjëf. yoo koy dee ko jàpp fii chaque jeudi rek. non jeex na fii kay man neex na. ak boole ceeg ñëw adhéré bokk ci daara ñëw ci daara ji aussi. non ñëw parce que man dama léegi nii di dégg leen moom boobu maa ngi toog leen dégg. dëgg la ci daal moom dootoo nelaw. Mm-hmm. <laughs> mais sax mel ni daal ñaan ñu nelaw rek bañ ko fekkee quoi. non ñoom nelaw nañ bu yàgg. waaw jërëjëf macha allah. jërëjëf jërëjëf jëf macha allah. yaa ngi may dégg ah nga tëjee ko maa yaftaxil mm. maa yaftaxil laaha linnaasi min rahmatin mm-hmm. fala mumsik allaha wa ma yumsik fala mm-hmm. mursila lahu min ba'dihi wa huwa azizul hakim mm-hmm. ñaar yëpp yaa ngi koy bind quatre-vingt-dix-neuf entreprise bi du daanu mukk mukk ilaa yawmi diin entreprise bi du daanu mukk waaw yàlla moo samp montagne yeeg lépp te daanuwul suñ kaw noonu yàlla téye noonu Hmm. loolu la lay téyelee sa entreprise bi ba du wàcc incha allah rabbi kaw rek hmm. Hmm. jërëjëf macha allah Assane ki doon laajte ci mbirum njaay mi waaw suuf waaw moo xam terrain la moo xam kër la moo xam lu mu bëgg a jaay day bind fukki miim ak ñaar miim miim fukki miim ak ñaar yaatal miim yi def ci ba makaan li mu bëgg jaay moo xam kër la wala terrain lu mu manti doon lay def ci miim yi su paree mu bind sa àll saa ilul ñetti yoon teg ci fa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaluuna ñetti yoon mhm. wa fi zalika fal yatanaafasil mutanaafisuuna ñetti yoon mhm. wa jaa qawmuhu yahrauna ilayhi mhm. ñetti yoon mu def ko ci bërëb bi mu bëgg a jaay xaaju guddi tegal foofu sa ñu jël kii bisimilah asalaamaaleykum wa waaw <laughs> sama sama waaji la man ki génn léegi sax moom laa ko Cheikh Tidiane Diouf Cheikh Tidiane. <laughs> Cheikh ñu ngi lay ziar. maa ngi lay ziar sama sëriñ. waaw it déet yaay sama sëriñ. ma ne. Cheikh Cheikh yow xam nga man xam naa. Cheikh yaay sama sëriñ. ah ah. bi ko dee nag yàpp bi yàpp bi ndax hmm? rek la ci am. ma ne bi ko dee nag yàpp bi ndax rek la ci am. Ah. ah waaw dafa doy waar kat nag wax dëgg yàlla mbir mi dafa neex ba pare yow sango rek nga ci am saraxe li ci des. Ah. moo tax Kaal Louga dafa mer ba màttatu. ma ne sëriñ sëriñ ba daal. Ah. ba mu ne ba mu ne waa ji da fii léegi. Mm-hmm. ak foo fii léegi. loolu la <laughs> ah da da waar de <laughs> yéeme na yéeme na wax dëgg yàlla. bu baax a baax. delloo Ahmed Tidiane. yàlla mu sàmm ànd bi. amiin amiin amiin. dëgg kontaan nañ ci lool. yàlla na yàlla bég. ndax lii day wone mag mag ñi seen lay wone. Mm-hmm. xam nga Conte su toogee foofu di wax Fala Bouda. Hmm. waaw gis moo de foofu ñu koy xam naan ndax dangay ngay jox addiya. Hmm. da ngay kontaan. wallaay wallaay wallaay. ndaay loolu mooy an mag mag mag ñi nag mag ñi. Hmm. kontaan nañ ci loolu. wallaay macha te loolu la Serigne loolu la loolu la fi soo ñëwee daara ja doo xam ne kii mooy Murit wala kii mooy Tijaan. waxi xam-xam kese lañ koy waxee ak diine. wallahi tamit ñu koy gërëm bu baax allah ay at ku ko topp ay at mm, de allah ay at ku ko topp ci sëriñ Cheikh ay at su mm-hmm. mm-hmm. ko rek ci yow la mm-hmm. dëgg la sëriñ Cheikh wallahi azim koy déglu ay waxtaanam ay at su ko rek ci moom la mais lu wax lu ne loo ko déglu li nga xam ne lii yenu na maanaam wallahi ndeysaan képp ku la lay su war nga xam ndax wax na lu am wala wax na lu amul la saa yu waxee rek di nga xam ci ci côté Cheikh li ci wàllu waa ji li mu wax. ngi jégal bu baax nag tey ñun ñëpp. maa ngi ziare sama nijaay côté Ba. waaw mooy nijaay gars yi de. te nag ma ne. Ah, di leen laaj lu ñuy yàggal nit ci place. looy yàggal nit ci palaas waaw. Mhm. ñu ngi ziare bu baax a baax di ngeen ñu président. yow ma. la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma izin lillah jurom ñetti bat la mhm. dang koy bind ci jurom ñetti keuyit mhm. nga togg boroset lak boroset ba am jurom ñetti morsa yap bel morso mhm. keuyit bu ne da ngay dem ba ci place bi nga nek wa nga jël ben morso keuyit bu ne lëmase ko ben morsa yap, lek bu jurom ñetti je. jeex Ah, foofu kay yow yaay bëggal sa bopp jege fa mais fekk loolu amul moom Cheikh. Ah. <laughs> ku la fa nar a jege abal la <laughs> boobu neex na de ah. Cheikh te mu dem xasas. Cheikh. Ah. Cheikh boo demee xasas. fi Moussa di wax waxtaanee ak Yankooba mhm. pour mu jël ko mu sàmmal ko. wax nga laaya jooju boo ko sangoo directeur bi di directeur bi foo teg sa bagage sax da koy day moytu say bagage ah, waaye demal demal xasas. yàlla yàlla sàmm. amiin amiin. kontaan nañu loolu wallaay la asim a baax. amiin Cheikh jërëjëf. ñu ngi seetlu euh, ah, lay doon. ren parxala bus bi fii lay déparé ren parxala ñu ngi baalu ak bu baax a baax. jërëjëf di ziar sama nijaay boobu tamit. wallaay ndeysaan. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Diouf. kontaan ci yow. waaw su bindee loolu def ko ca place ba. ba xaaju guddee nisful layli. day zikar fatiha 1034 jeex na. 1034 1034. 3. trente mil mhm. mu ñaan aajoom incha allah rabbi léegi bërëb ba bismillah bismillah ah, Ayo kon de tafaddal waaw ba tey mhm. tafaddal demal ko de mhm. bo bo jele warafana makanan aliyan mm -hmm. nga daal di ciy teg xaala inna allaha astafaahu mhm. aleykum mhm. wa basatan fil ilmi wal jismi mhm. moom da jox mille cinq cent cinquante quatre allahuma salli wa taslima ala rasuli raxat da lay jox mille cinq cent cinquante quatre ñoom ñetti ñi ñëpp ngay boole bind ko def ko saafara di ko sangoo bismillah moo xam sëriñ nga waaleykum salaam waaleykum salaam. Adama Cissé. ziara. ziara. trois mousquetaires. Mm-hmm. moom dafa absenté. waaw ah, waaw moom dafa empêchement tey. Mm-hmm. Assane Sow. jërëjëf Cissé. delloo ziar Cissé. ñu ñaanal yàlla. xam naa di góor gi waxoon rek moo ci nekk. naa bis yàlla sàkk ñu ngi leen di gën. dëgg la. waaye tey la raw. tey. Mhm. waxtaan bi am na solo lool. Mhm. waa ji wax rek moo tudd. la mhm. wax. dëgg la. suñu noppee rek ñu si baax. waaw wallaay ndeysaan war a wax rek fii fii la wax jotee fii la wax dafa guddee ñett xam ko war a waxee te jotagul dëgg la place bam ko war a waxee te waxee woo ko ko kon nag fii la wax jotee ndax adduna bi doy na waar. dëgg la. réew mi ay réew mi jàmm rek fi am. Mhm. ay réew yi ñuy àdduna bi moo doy waar. dañuy bàyyi xel ne rek yàlla moo wàccee balaa. Mhm. balaa yàlla la. dëgg la. feebar buy tasaaroo. di mhm. saa su réew mu tasaaroo ci ñaari réew. ñu xoolaat. Very good. Mm-hmm. jag ci li ñu xaramal moom la ñu daganal boobaa nag ñu si ba am ci lu wér parce que moom xaramal yëpp la ñu daganal léegi الذي يكرم آمين آمين آمين والله جرجف شيء man dañ delloo ziar bu baax ñu. wallaahi. amiin yaa baal. amiin. jërëjëf Cissé. jaarale yëpp ñu ngi leen wa taala jàng sorewul mm-hmm. waaw ngeen ma ñaanee ma may leen uh-huh. mm-hmm. waaw suñu ne pat pattaaral na nga muñ ëpp fulla fulla suñu fayda mm-hmm. danaan bette ñu xetaan dëgg la jërëjëf Cissé gën yaakaare dëgg la dëgg ñu wax ne mbir moo am solo ñu ko baax ah yàlla mën na seetaan de. wallaay ndeysaan dëgg la de. yàlla bu ñu yàlla seetaan. amiin amiin yaa rabbi. yàlla na yàlla gën xam-xam. amiin amiin waaw ba mu déggoon sànq Codé di wax ci wa zallalnaaha. Mhm. waaw lim bi la ko. mille cinq cent quarante. waaw. waktu julli bu nekk wala. non non bu weeru olof bi teroo nga koy def. bu weeru olof bi teroo. waaw ba génn. waaw comme su mu nekk nii weer soogul. xam nga génn na nii. waaw boo ko ci asamaan si rek liggéey ko. Mhm. waaw di jàkkaarloog weer weer wi nag ñaan ñaan googu. Mhm. waaw li xale yi wax dootoo ko defati de. tabaarakallah de. la war mm-hmm. ak ban nga ñuy mayaat nag. Hmm? waaw ma mayaat la. aaya faatiye boo wér de cent vingt neuf. Mm-hmm. nga teg ci yàlla tif vingt neuf ci fan yi ñu ne nii. Mm-hmm. ba ba faatiye yi mët. nga daal jël ahtamu. saxaku. xalara aynasu. 903. dootoo ko defati de. layl azim weer wi dina sori ñi nga nekkal dañ naan xanaa dangay ngay soog a fayeeku nan ba weeru tubaab bi ba weeru tubaab bi ku ci bëgg yàlla di la dimbali bàyyil weeru tubaab bi nga topp weeru olof bi bi ñuy gën a nekk gone danga daan gis maire yi ñëw naan weeru olof kañ tey la ñaata mais yow doo ko xam ndeke kese la hmm. ziara président. mu mhm. ngi lay dégg. di mhm. jërëjëf. Adama Cissé. Mhm. ko sa yurikum ayaati. fattaxrifuunaha. waaleykum salaam. dégguñu baat bi na baat bi jóg tuuti. wala ñu ngi ñu ngi delloo ziar. di leen nuyu di leen sant. wallaay ndeysaan jërëjëf. di leen ñaanal yàlla. amiin jërëjëf. lépp loolu sax mi ngi na hmm, am nag lu may laaj Codé. Hmm. lu muy laaj Codé. Hmm. waaye mooy sangat bu mujj bu mu wax. mu ne sangat bu mujj bi nga wax sangat sangat bi nga don wax di and ak la xalxu waaw mu ne dañoo bëgg nga jaarat waaw ma jaaraat ci waa te itam li nga don wax sank ci aaya latif yi aaya latif yi waaw ya yàpp ne bi nga bi nga don wax ne pour ko xamantene ni sox am ndax dafa soxnaam dafa dem waaw xam nga dang ko koo xaw wa ya waaw yaa bunna ya ah, waaw innaha intakum misqala khabatin an min min khardatin min xardalin suratul luqman la nek waaw léegi waaw dama bëgg nga baax ni koo xamante ne ni soxlaam dafa soxnaam ba sa woon hmm te bay ko dafa ko sew koo xamante ne daanaka njaboot da koy sonal te bu sa yoon sox jël sa bu njabootam mm-hmm. cey <laughs> waaw loolu daal ñu koy sàkk ci yéen di leen sant di leen gërëm mm-hmm. waaw waaw te ñu ngi leen wax ne fi ngeen teg seen loxo foofu la Mm-hmm. macha allah waaw di di après dañ leen euh, dinañ la jox numéro yi incha allah. léegi dama lay jox càngat yi ah. waaw waaw léegi suma afiidu min haysu afaada naasi mm-hmm. moom ngay bind sooratu baqara la nekk 111. inna haza la risquna maaluhu min nafaadin 111 sooratu sàdd la nekk. Mm-hmm. haza ataawuna famnun aw amsik bi xayri xisaabin 111 sooratu sàdd la nekk. la sama samawati wal ardi akbar min xalqi naasi walaakina aksara naasi laa yaxlamuuna 33 fois suratu xaafiri la nekk kay cangat gaa ngi noonu léegi nag mbir mu kuy wooj pour wooj mu ñëw xam nga ca waaw boo après boo wootee rek incha allah bi dinañ la ci hmm. jox tegtal yu yu am maanaa yoo xam ne sa xol dina sedd incha allah rab bi barke yonent bi sallallahu allah rabbi amin amin amin amin amin jërëjëf 297 82 42 70 bisimilah kooku dem na yaa foo nekkoon bisimilah asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw ah, maa ngi siyaare kontaan mhm. ci waxtaan ginnaaw li ñu déglu nag ay at. day mhm. mu ne juróom-ñaari at. est-ce que mhm. juróom-ñaari at. Mhm. am na nag sama benn rakk moo sama jarbaat bu ma ko dégg te bëggoon na maa bu Seck. Habib waaw waaw. waaw kooku daal ma ci baaxoon daal. Hmm? daa doole sant. 77. waaw. 558. waaw. 16. 16. 87. 16 87. waaw numéro Habib Seck. waaw moom fi mu ne mi ngi Dakar. yaakaar non xam naa ne am na ziar bu ñu amoon de. mais woo ko rek ci numéro boobu. waaw baax na incha allah soo koy di nga ko jot. waaw bu ko defee tamit yéen ñëpp nag bëgg naa am seen numéro. waaw dinañ ko joxe léegi incha allah. waaw sëñ Sadio. jërëjëf Malima Ndiaye ñoo ne dégg naa leen dégg. dëgg la kay dëgg la. waaw xam naa moom dina am bisimilah. incha allah. incha allah rabbi alhamdulilahi sa yureykum fa taxarifoonaha li si xaar gu wér a ngi yàlla nee na dinaa la woon samay kéemtaan te yow dinga doon témoin li si xaar gu wér ngi nii te boo ko addatee ñaari shahidu la lay joxa mille 2038 boo ko diviser par deux mille dix neuf ñaari siècle la la la lay jox mhm. ba tey nga nekk ci place ci bagage yi da nga ci koy gis ne jaaxaran shahid waaw xay mhm. ba tey nga nekk ci place ñu fitnaal la fa mhm. teel sa kurus nga jël alhamdulilah allo waaw ah, waaw dafa am ku wax léegi ne daa bëgg yàgg ci place bi fi liggéey muy laaj ba ñaan la war a def. waaw. waaw ma di ko wax man de def naa fanweeri mm-hmm. uh-huh. loolu dafa tax a yàgg fa. tey wàcc heure. da ngay wa da ngay wàcc après l'heure. <laughs> après <laughs> wàcc avant l'heure. <laughs> loolu day daaneel société bi waaw beneen xam nga dëgg moom dañ koy wax. dëgg la dëgg la dëgg nga wax dëgg wér pegg nga wax. gàllankoor kenn dul dindi. lekk mooy honorable. Biré Ndiaye. dañuy teel a ñëw tey wàcc après heure. waaw waaw te te maanu seen loxo yem. l'heure sur l'heure après li nga wax rek mooy dëgg. moo tax ma lay wax ne boo bëggee yàgg da ngay teel a ñëw. Mhm. ak nga xool alal li patron bi bu jox xool tamit loo moomul. Mhm. ngay euh, wàcc après l'heure. Mhm. te nga maanu daal. boo ko nag mën nga faa yàgg moom. xoolaale alal li patron bi. wala doo xëy heure doo wàcc heure. permission yu dul jeex rek ak ay repos yu dul ah. ñaan goo mën a ñaani doo yàgg mën naa. waaw ah, loolu dëgg la waaw ah, loolu dëgg la. loolu tamit loolu day yàq am réew sax dafay mm-hmm. daane. Mm-hmm. loolu tamit nit ñi xam beneen bi ci la xat xalaat naa insaan fi kabatin. ci mën a mm-hmm. bu fekkee da nga laay foo toll. Mm. dëgg dëgg dëgg dëgg ne ko wut ne ko wut a balaase. la. la. coono na laaj ko wax li tax mu jàgg fa xam naa ñaani baax na ci waaye. Mm. lii mu wax daal fanweeri juróom-ñaar man yàlla dogal na def naa ko. waaye da xool daal ne yow lii loo moomul nga ba ko fi. Mhm. te it euh, bul suufal sa bopp daal suufal sa bopp mooy di jëlee àll di jàmbur. Mhm. tamit doo xëy heure doo wàcc loolu moom su wax da nga fi yàgg da bëgg a nax. Mhm. ñu fa dàq ñëpp gis naa ban dañoo sàcc ñu dàq leen. dëgg la ñi euh, nekk ci àll bi def ay repos guddi ay repos ba patron bi mel ne dàq leen. ñenn ñi dañoo xoolal patron te ñoom ñoo ko tooñ. waaw loolu tamit ngay moytu foo toll xoolal patron bi tamit danaan damay fontoo léegi mais xam na ne man dama doole laay daan. Mhm. yooyu yaay dàqul sa bopp. est-ce que. loolu daal conseil bu ma ko jox la moom ak kuy déglu rajo bi rek. waaw conseil bu conseil bu baax a nga noonu. bu amee patron dañ koy jox cër. dëgg la de dëgg la patron bi rawatina ku investir xaalisam ci réew mi nga xam ne yow dëkk bi ñu ngi ko conduire àdduna bi am problème mu investir àllam ba pare. jël la ci ba nga di ko liggéey doo liggéey ba fàdd ko fottoo boole ko taxawaale bu dul jeex ak goppoo yu dul jeex hmm. ñu ma ne bu ñu la wàññee wala ñu dàq la yow yaa ko def dëgg la loolu daal conseil bu mooy jox képp koo xam ne ni yaa ngi xëy di liggéey loolu moom nañ ko yóbbaale ñu hmm. ci baal ak baax a baax dam li nga wax léegi nii rek nag mënul sëriñ Souleymane Niang moom Souleymane Niang waaw ma ci ñaan nekk ci studio bi wallaahi kan eh, na ko mo fatte ci der bi mi fofu tok na mo ñang bu ko fatte de ko kan la ah serigne cheikh waaw mu ngi lay dégg waaw moom raw na ko muy yëkkati loxom na ko moo bu ko fàtte de yëkkati na loxom même na ma ñëpp ko ko laaj mu ngi lay nuyu waaw inshallah na yëpp koy nuyu wallahi jërëjëf jërëjëf eh, honorable alhamdulillahi allazi mm-hmm. najaana min alxawmi zalimina rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta xayru munzilina mm-hmm. place bi boo fi jógee fa ngay dem hôtel lay doon que bilaay wallaay waaw ci place bi. Mm-hmm. fi lay xatal. fa ngay dem hôtel ngay doon. boo leen rombee sax ñu ne ah, sa waaye dañ ko doon dugal ci pax waaye la dugg. <laughs> mashallah allah parce que macha allah tindi bannaasi ñaata aaya benn ok bu ci nekk ak xalimaam soo bindee bu ne nga eh, dagg catu xalima gi teg ne boo paree lakkal catu xalima yooyu yëpp def ci saafara si sangol benn yoon cat gu mu fekk caram mu dañ te la est-ce que waaw cat doot a jàpp laa yombi di leer na te cat gu ma fa fekk mu dañ ci kàttu yàlla incha allah kon de am na ko fi doon laaj cat léegi tontu nga ko incha allah macha mm-hmm. allah mm-hmm. damaa jàngee ci sëñ Babacar Mbaye mm-hmm. mu ne da ngay def ixlaas onze fois ñeenti rakka cat aajo la de waaw da ngay def ixlaas onze fois ci ñeenti rakka ixlaas onze vingt et un trente et un quarante et un mooy samdaaniya bi boo paree nga teg ci salaatul faatihi cinquante ixlaas soixante six astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alxayyul qayyum soixante dix la ilaha illallah muhammadu rasulullah quatre-vingt dix allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim cent bàyyil kooku latif deux mille cinq quatre-vingt allo ñu ngi leen di ñaanal yàlla itam. waaw jërëjëf. waaw na na ko uh-huh. laa ilaha illa huwa alxayru xayim 70 laa ilaha illa allah muhammad rasulullah 90 salli ala sayyidina muhammadin 100 ya latif wallahi lazim ci sëñ Babacar Mbaye lu lu ma jar bu mu dox la jar bu mu dox laa wax billaay lu ma jar ba mu dox. lu wër la lu wër ñu ngi koy nuyu di ko ziar moom Serigne Babacar mm-hmm, Mbaye. Mm-hmm. Mm-hmm, di nuyu Serigne Sepp. sëñ Babacar lu mu joxe lu wër. xam eh. naa du nuy Ibrahima Ly fële ci Belgique mu ngi ñuy suivre ci Facebook bi. Ibrahima Ly Ibrahima Ly. macha allah ak Abdoulaye Niang. bisimilah. ñu ngi ziar. kooku tamit dem na. Abdoulaye Niang mu ngi ñuy suivre fële ci France mu ngi ci Facebook bi di ñu suivre. Mhm. ñu ngi koy nuyu. Abdoulaye. Niang Abdoulaye Niang. Abdoulaye Niang. bisimilah. Codé Tafada bisimilah. salaam. Mhm. ngi lay Lamine Assane Ndiaye. Codé ko delloo. waaw mm-hmm. di nuyu di nuyu it suñu sëñ bi mu ngi lay dégg. waaw ñoom Dia di ñaanal jàmm. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. waaw kon wóor na bu ñuy joxee fii ci jàkka ga lay fii xam naa lépp lu joxe hmm. nekk lay doon dëgg la waaw ndax ah, nit ku sell lu leer rek lay joxe dëgg la te dëgg lañu génn est hmm. waaw maa ngi dégg ko di wax ci awleel ak fa awleel boobu hmm. Assane waaw <laughs> waaw awleel ak fa awleel boobu Euh, ca koo xam ne dafa mhm. wala mun la xaaral ba suba ba dëpp rek. nga mhm. jàng ko ñetti yoon. Mhm. bu la wanee sànni ko. nga sànni ko ku jéggi ay jéggi yow bu nga sànni ko. dootu la tal. dootu la tal waaw waaw moom kay macha allah leneen lay tal loolu dootu loolu. mu ngoog. Mhm. ci comme balaa bi am ngelaw yeeg feebar yeeg. Mhm. yi nga xam ne dafa am léegi. Mhm. ci jamono suñ toll nii. képp ku ko man da ngay jàng bu ne boo a jàng. waaw paree dañ koy daggat. waaw waaw bu ko defee nag ah, ñi nga xamee ne lii ñu ko ñu defal leen ko. sotti ndox seen seen njaboot bi fa naan wala fu ñuy naanee bokk mhm. yaa ngi bu baax xunóot laa la wax waaw mais mhm. seen ay grève yi am ak yi yëpp yow bu dee ànd yow di nga après bu fekkee nga fukki ci bërëb nekk ci bërëb fukki nga di ko jàng suñu la musal ci ay foofu ak yëpp balaa mhm. ah, dem na aywa code et continue ba tey nga amal ñaari ràkka bu ci nekk da ngay jàng euh, kawsara mm-hmm. quatorze fois mm-hmm. boo paree nga def istixfaar mm-hmm. fukk salaatul faati cinquante cinq nga daal di jël inna tey naakal kawsara suraax wadu do xaysu deux mille six cent quarante bu matee nga indi fasal fasalil rabbi ko wan xare ina shaani ko teg teggi la teg teggi maa la ko wax. teg teg gi teg teg gi la kii. teg teg gi aywa. lam yat mishunna insun qablahum wala jaannun defe naa ñeenti mi fa nekk waaw maanaam ñetti miim mais nun gi aussi da koy bind comme miim nun gi wala jaanun boobu danga koy def sarka comme miim mm-hmm. bu ko defee sa bismillah bismillah waaw dafa daggoon liñ bi ma daggoon waaw ba tey ñi nga xam ne dañoo nekk ci kër gi te jubóowul mm-hmm. xam nga mën nañu togg ataaya ci kër gi xam mm-hmm. nga ñu jox kenn mën naa tax ko duñu waxante waaw da ngay jàng sóoratu falax yi juróom-ñeenti yoon mm-hmm. jàng sóoratu naas yi juróom-ñeenti yoon nga ci ndox bi ngay ñu liggéey daan jël ñaari bekk suukar xam nga kon tëjee nga falax yi boobu bekk suukar muy nëb nancé bi juróom-ñeent la moom it nga tëjee ko benn bekk suukar mu moom muy diis mm-hmm. nga def ko ci balaade nga def ko ci balaade bi nga toggee nga toggee ko warga bi mm-hmm. waaw ci xel di leen jox insha allah bu neexee yàlla dem dem xol yi ñoom suusantee dina dina fay ci lu wér waaw lépp am li ngay wax wér na beneen bi beneen bi mooy ah, comme fi ñu nii jamono bi dafa jox ñu ngi naan dafa yokk dund beeg gannaaw ma teg yooyu mm-hmm. yenn ceeb bi sax du mat. Mhm. waaw boo bëggee loo togg mu mhm. rek taay mu doy ko tëkk. ëllëg mhm. ñam doy. ruux ruux waaw. waaw waaw waaw mu ngoog mooy yooyu ñuy yëngalee. soow mi waaw. waaw mu ngoog. ceeb boo boo ñu liggéey ba pare. nga jàng juróom-ñeenti xoree ci. ruux bi. waaw nga nga nga ruux ko ci noonu nga yëngal ko ci noonu. Mhm. incha allah bu neexee yàlla loo toog a def. macha allah macha allah ñam bi sa om mooy am barke ñam bi mooy am barke. Mhm, mhm, waaw ñam bi mooy ba am barke ci kàddu gi. macha allah. jërëjëf jërëjëf macha allah rafet na. lam yatmishunna insun qablahum wala jaannun nga bind ko. bisimilah allo. allo. alo waaw. waaw sama gars yi na ngeen def waay. sant yàlla. Amadou Sow moo leen di eh, sa xam ah, nga ñu soow. pour <laughs> loo Ndiaye man ci deux heures ba léegi maa ngi jéem a. non ligne bi moo seere gis nga. waay mhm. waay egsi nga egsi nga egsi nga. dugg te man du ma dugg nag. nga egsi nga. Ah, <laughs> sunu sunu yëf la ñun ñoo moom sunu yëf. dëgg la am nga ci wàll de. wallaay ñu ngi gërëm Serigne Cheikh. Mhm. di gërëm président. Mhm. Mm. Assane yow kenn du dem bala. macha allah. yow nee naa la soo bàyyee rek affaire bi doy waar. bàyyeetuma wax naa la ko. <laughs> waaw code moom c'est un codeur moom day mi ngi noonu day décoder rek. <laughs> waaw moom xam na ma xam. xam na lu ñu waxante woon. <laughs> Ah. am na ku lay sànni xeer sànq. waaw waaw la. waaw beneen xeer baa ngi baa ngi ñëwaat. décoder affaire yi bàyyil code. waaw. Kalidou Gaye. ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar. sama gént bi waxagoo ci dara de. waaye sa gént boobu jël ko nga def ko ci ndox nga naan ko <laughs> kooku da lekkoon ba suur rek waaw ñu ngi ñu ngi nuyu di ziar. Mm-hmm. waa Daara Jeep. bàyyiwuñu kenn bu ñu tuddee Serigne Cheikh. Mm-hmm. bàyyiwuñu kenn. Mm-hmm. di wax ba ka nga xam ne moom mu mujjee dugg si ne day adhéré. wallaay ndeysaan bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn ñun nag amuñu kenn. daara ji la ñu am. Mhm. la ñu am mooy sëñ Cheikh. ndax euh, lu njiin njaag moom mooy njaag. waaw ca ca ca ca télé ba la ma doon bañ a tudd wal fajiri ba mm, léegi. Cheikh am na ku ko wax sànq lu mu la jox njëriñ la ku topp ci moom. ci mm. ginnaaw. Mm-hmm. boo yarul woon sax di nga yaru. waaw xam nga boo boo boo àndee nit lu ëpp ñaar fukki at ak mm-hmm. nga gis ko mu soo ko gis fu mu mere. Mm. tax nga war a xam ne kooku modèle la. li mu denc bari na de. voilà vraiment. Mhm. ah mais deux mille deux deux mille ba léegi ñaata at la. vingt ans vingt ans soo calculé. vingt ans ba léegi vingt ans la te avant deux mille xam nañu seen Cheikh ñu ngi nekk ak moom. wallaay ndeysaan. am na ñu bare ñoo xam ne daan nañu jëfandikoo lenn mu leen koy tere. Mhm. yàlla def na ñu jiitu nañu. te waxoon na ko de. wallaay ndeysaan. kon bokk moom ñëpp lu yéen a jàmm. Mhm. moom dañ koy ñaanal yàlla may ko gudd fan gu ànd ak wér. amiin amiin di wax nag sunu mësa yi ma la ñu teg sunu kanam it. Mm-hmm. jiite mi. Mm-hmm. Ah, nañu ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla sàmm. ak képp kuy ñëw ci daara. amiin dama ne woon daal mënuma bañ a dugg. bu wax lii. lii ëppoon naa bañ a wax. voilà loolu la daal. jërëjëf Sow Sow jër jërëjëf Sow. ñu ngi ziar sëriñ Babacar démb bi ñuy dem ci dëju. Babacar mbay moom la Babacar moo ñu yóbbaale Màkkali. wallaay ndeysaan Babacar Mbaye. jërëjëf jërëjëf ñu koy ziar bu wér moom tamit. voilà jërëjëf. jërëjëf waay Amadou Sow. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf ñu ngi ziar ñëpp nuyu waa Daara ji yëpp waaye bàyyiwuñu kenn. Mhm. lam yatmishunna insun insun qablahum wala jaanun mhm. ñetti miim la ak benn nuun mhm. waaye nuun bi da koy wërgal comme miim sa xale bu jigéen bi nga bëgg a protéger bañ ku koy yakantaan wala ku ko jëf yëfe saay saay mhm. dugal ci turam nga bind ay bi 23 fois mhm. soo pare nga xaaj saafara si benn benn bi da nga koy jox mu naan ko beneen bi da nga ciy def daakaande mhm. comme ni ni daakaande nga jënd silib bu bees bu kenn sologul bismillah waaleykum salaam dala ziar ሊያደርጋቸው ahliyin dafa am na solo lool. lu sànq boog di waxee sëñ sëñ Mansour. ñu war a wax suñu waxu la ñu wax ñu jot ñu ñu kii ñu war ñu mënoo di wax. walaay dëgg la. ñu ngi jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf. waaw ñu ngi am problème problème problème mu rab problème mu àndandoo. waaw parce que da da nga ci suñu seetlu ñaari yoon ni wax lu hmm suñu waaw waaye sëñ bi nag ma wax la tuuti. am na ci ñenn ci sunu mbokk yi mbokk saa si laa bëgg a wax wala mbokk sëriñ si. suñ bëgg lekk sa xaalis boo nuyoo rek danaan la rab. parce que xam nga ne ñëpp am rab. waaw ñepp am rap man mi di wax ak yow ak ñepp la ñepp am rap xam kon su lu ko waxe naxu la man sama bos tubab la eh, way nak bëgg lek ci xaaliss xeyna motax mu lay lo lolu lenn de la gëm xeyna rabbi say say hmm. ñu fexé ban len ñaar hmm. waye ko amul rap amul li ma ko wax ko amul rap amul tubab la yar man ndax nit ku nekk boy juddou nga yëg nga ñak ko yek di nga walé ak sarab hmm. bu dé gor ñen fuk la walé hmm suy am 40 ans yalla mën nako dimbali ba mu yar 40 yépp bu dé jigen ben la lay walé at bu ne beneen ñëw kon jigen ba amé 40 ans mi ngi 40 rap hmm, hmm. waaw ñepp am rap mais nak en général sama mbokk serigne suñu bëggé lek sa xaliss waaw foofu lan lay jaaree rek ñu am nga bi ah, gën daal bi gën daal ci koy seetal booy defal nit ki bu la yàlla maye nga mën a seet seetal hmm. li la yàlla wan nga waxoo ko am na ci yoo xam ne sax soxlawul bind sarax dong moo koy tëye hmm. boo génnee sarax rek mu jeex ma ñaan nag boo ko mënee nga topp émission ba mu jeex ah. suñ joxee numéro yi ku la ci doy ah. nga seeti ko waxtaan ak moom sa numéro rek euh, ci mën lu luñ ko ci yàlla wan dina la ko wax incha allah loolu moom leer na ma ñu toog ci table ji moom koo ci seeti moom dina la wax lu leer nañu. incha allah rabbu neexee yàlla bu ñu joxee numéro yi rek nga jël ko. ni ñu joxe léegi numéro yi du yàgg dara. gént bi faral di gént. waaw un jour gént gas euh, am xóot ñu def si mbalit. Mhm. nga toog ci. mais ba ma koy suul. Mhm. am na benn paa suñu dëkkandoo bu nekk si ginnaaw mi ngi wax ma ko dégg muy wax naa saraxel juróom-ñaari guro yu xonq ak juróom-ñaari guro yu def nga ko. non <laughs> waa xam nga il faut ñu ràññee lenn. ah gis nga yàlla bu leen nar a dimbali. dafa am fu koy jaarale. gis nga gént bu leeree naññ fàttewoo ci dara. Hmm. nekkatul gént luñ la wax la. lii gént mooy li ngay yeewu di werante ndax nii la demee ak demewul nekk nii rek nii la mais loo gént guddi gis ko mu leer naññ nga yeewu juumoo ci fàttewoo ci dara hmm. bul hésiter def ko ba mu des rey nit hmm. waaw wala loolu war nga ko génne bu yàgg soo ko génn amaana sax mooy sa sarax bi la bloqué 700 hmm. francs la defe naa doomu goro bu nekk fukki dërëm la 700 <laughs> la li ngay yàkkasee si 70000 ak 100000 ci sëriñ ci génnal 700 boobu nga xool ba pare. Ah, waaw bu la sonalatee nag nga doog ñu jël woo ñu ko la neex ci ñun ñu seet nu ñuy def. incha allah bu neexal incha allah. jërëjëf ñu ngi jaajëf seen bi toppal émission bi rek dinañ joxe numéro yi incha allah. Euh, raw ma ah. koy déglu ba seetlu incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu jaajëfal bu bul bul bul fàtte ñaa sarax soosu Wah nga waaw du ma ko fàtte insha allah insha allah waa kay ñu leen jaajëfal waa kay insha allah merci man sama rab bi tubaab la waaw waay ku nekk am rab daa xonk cur ku nekk am rab wallaay ajib man sama boss dafa weex tàll tubaab la dafa weex tàll waaw mais gars des fois suñ la bëggee marto dañ lay tiitloo ba nga tiit pour mën a lekk sa xaalis dëgg la soo ko bindee noonu ba mu pare nga hmm. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ Kalle dina nga def. ñu ngi ziar. ndax dama jox carton carton de Boxo. wiyee Boxo. Boxo yow dañ la gëj a gis. gëj dañ la dégg. dégg na dégg ah dégg yàgg yàgg yàgg na dégg la. Mhm. mbaa du woon dara rek. doo du woon dara maa ngi suivre nag. est que. mbaa yaa ngi jàng bu baax. ñu ngi sant yàlla bu baax euh, Moussa Diallo. yàlla doo ñu sutura. wallaay wallaay ñu ngi ziar bo waaw di la <laughs> di la di la di la ziar moom ma xam la <laughs> xam naa bu baax a baax xëy macha allah. Diagne ngaa koy jëf. bu baax alhamdulilah. yàlla sant yàlla gëstu yàlla ci la. <laughs> di wax di nuyu waa RMD. Uh-huh. Mhm. ñu ngi lay fay. bàyyi ma kenn ko lim juum. dëgg la dëgg la. yal na yàlla may fan gu def bi rafet trop. amiin di jot. amiin sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi suñu suñu ñaan fan gu def bi rafet trop bu sax bi yàlla Moustapha. amiin incha allah. Eh, hmm. Codé. waaw. sànq sànq xam nga Ousmane la wala kii ma ne Assane la wala yow la sànq bi ngeen joxee kii sànq bas na la pour maanaam yàlla mos la ci sa ci feebar bas ma la. yow code la sant donc defe na. 66 bas ma la. mooy bi nga ëpp ci kaasu ndox bi nga ëpp ci waaw. kooku sëñ kii la bokkum moo ko moo ko joxe woon ah bokkum la. ah sëñ la waaw. koy jàng mais noonu rek 66 nga ko ëpp ci ndox rek naan ko. 66 bas ma la nga koy ëpp ci ndox naan. waaw. Mhm. moom laa bëggoon leer ngeen. waaw jërëjëf waay Moussa. dañ ko di wax dinañ ñëw incha allah ñaan waaw jaajëf jërëjëf allah waaw incha allah rabbi fa woon. jërëjëf waay. ok jërëjëf jërëjëf sëñ Moussa. est-ce que waaw kay jërëjëf. xam naa ñu ngi Soxna Mariam Gaye mu ngi fii ci Colobane. dafa mel ni sëñ bi dugg si mm. <laughs> waaw léegi ni ma doon wax ne lam yat na. insun xablahum wala jaanun mhm. soo ko bindee yaatal miimu lam bi mhm. ak yat misun na miim bi ak xablahum miim bi jaanun bi da nga koy wërngal comme miim mhm. nga def ci sa turu doomu jigéen bi nga bëgg a protéger contre li ñuy wax les pédophiles ak lee maanaam ñiy violé boo ko defee noonu nga xaaj saafara si ñaar benn bi danga koy jox mu naan ci beneen bi nga def ci daakaande ba mu saf nga jënd silib bu bees tàq bu kenn sologul nga bàcc ko ci saafara si ànd ak daakaane gi weñ ko ba mu xaw a muus nga jox xale bi mu sol ko mu wow ci kawam bu mu ko simbaat nag fekk wowul bu neexee yàlla incha rab bi fekk déggul alxayri kenn du ko saay-saayee ci kàttanu yàlla waaw même boo ko neexee cim xel sax soo ko timmee moteur bi paan moom koy alxayri rek incha allah salaamaaleykum wa mu jeexal ma dama doon xaar mu motal. waaw waaw. waaw kontaan nañ lool. waaw jërëjëf jërëjëf sëñ Moussa Laye. Euh, honorable député tamit. waaw waaw. Mm-hmm. Ah. suñu sëriñ daf ñu waxoon ne. Uh-huh. saa yoo amee contrat waaw maanaam bés bu ngay njëkk a xëy. Uh-huh. xam nga amul liggéey bés bu ngay njëkk xëy. Mm-hmm. heure bu muy jóg. Mm-hmm. ak na mu farla ci liggéey ba. Mhm. su continuer noonu dina yàgg ca place. ci lu wér ci lu wér. dëgg la waaw suñu sëriñ loolu la ñu waxoon. bi kay xam nga kan mooy tardé waaye du moom. waaw mu ne mhm. ak activité yi na muy jàppee activité yooyu. Mhm. mu ne su continuer noonu. dina yàgg ci place. lu wér lu wér lu wér. kon loolu la ñuy soo jógee dëkk ba di ñëw fii pour liggéey. ay at nag ñu ngi suivre. ay at lu mu tuuti tuuti mot na vingt ans lu mu tuuti tuuti ba ñu déglu président lu mu tuuti tuuti mot na vingt ans. Mhm. ndaxte nguur Abdou Diouf la woon. dëgg la. <laughs> macha allah Diouf. voilà di nuyu suñu waaw jaajëf Diouf. fekk na bi mu joxe léegi ci suñu Babacar suñu Babacar waxoon na ko ba ñu mhm. waaw deux cent deux mille huit cent cinquante yooyu. Mhm. ah deux mille cinq cent quatre vingt. waaw. deux mille cinq cent quatre vingt. deux mille cinq cent quatre vingt. <laughs> waaw suñu baabu ko joxewoon na ko. du du du quarante ñaata kii la dugul ci latif wala bokku ci. deux cent cinquante huit bu bu ñu faa tiis hmm. la. waaw mu ngoog. waaw. latif la de deux mille cinq cent quatre vingt. Hmm. ñu ngi kontaan bu baax nag. macha allah jërëjëf Cheikh. jërëjëf ñu ngi boole ak bu baax a baax a baax. waaw yàlla boo ñu jéggal.

wala muy sow Ikhlas ak ak Chérif. Mhm. wala muy sëñ Cheikh nii. Mhm. ak ak euh, Kalidoo ay président damay kontaan. macha allah jërëjëf waay yow da ñàkk ki ñaan. mais am na ñoo xam ne wallaahi bëgguñu ànd. Mhm. bëgguñu ko de. bëgguñ am na ñoo xam ne division moo leen gënal. ku nekk loolu moom baaxul. saa yu nit waxee rek mu ne lii moo tax dafay ut daraja wala day def lii ak lii pour lan. baaxul de. mu warul gën a feex fi ñu toll nii ñu fi teg lépp moo tax ñu teg. lu wër nga wax sëñ Cheikh sëriñ su bëree bëri bëri bëri ñu leen tudd ci rajo yeeg eh. am ñoo xam ne si dañ di laaj ay secret eh. mais fi ñu ñu animé rajo yi lu eh. Cheikh allah nit ki daal li baaxul ci moom moom muy woote daraja ju nekkul ci te sanction na metti ci jël sa la nit ne képp koo gis rek man ngaa defaroo ci moom iya. maanaam bul ko xeebal daraam mooy da nga waaw ya, jox ko cëram ndax wala xadd karam naa bani aadam ngay jëriñu ñett yi iya daal ku ko ku ko ngànnaayoo eh. loo amoon ci yàlla doo ko ñàkk loo amul woon ci yàlla di nga ko am iya. boo fonkee rasulullah sallallahu alaihi wasallam bëgg julit ñi ndax ko bañ julit bañ nga rasulullah boo dee def koo gis taral ko ndax wala xadd karam naa bani aadama sëriñ jambour bu ne nga respecté ko ni nga respecté ce sëriñ mhm. lo amul won ci yalla ding ko am lo fa amone do ko mhm. ma sha allah ñu ko la fa gis nga eh, la ci jilan dañ ko inauguré mhm. bi sëñ malik demé hmm ñu bari dañu yému hmm mané man li ma naron ñe moy mu ñaka dem wa kay wa kay ba <laughs> wa kay <laughs> gis nga bu fa kenn ci wa kër Tiwaawan nekul won wa loolay yeme loolay yeme mais alhamdullilah ba nga xamé na ñom ñu nga fa won wa ndax diina buñ ko woté té boko ci sétatal sa bop wa wa wa wa mi ngi non de yoon la de machallah allah c'est obligatoire mhm, c'est obligatoire allah li <laughs> ma tax ma layaa sama sëriñ ko talibé talibé bàyyi yépp ko ci émission émission bi jeex na tak ma ne ko taalibe hmm? bàyyilaat yëpp course ba la ñuy euh, la ñuy gàmmoo hmm. émission bi daal la dëgg hmm. dëgg course ba Tiwaawan la ñuy gàmmoo incha allah wala rek gu yàgg la dëgg la xam naa émission bi jeex na tàkk macha allah jërëjëf Codé vraiment émission bi neex na comme d'habitude rek Daara Fajtal asan Diagne macha allah xam naa ni président tey dafa kontaan gisoo lexi tey nu mu gënee kii lu ma jox tey. ah moom laa lay laaj. boo demee kër ga nga laaj bi ma koy woo laa ko ne boo demee mbàcce nga koy rokkos te leer na ma ne noonu la demee. Ah, tey moom lañ ko rokkos moo tax reerewu fii sax. waaw soxla wu ko. yàlla xam day na kon boog xam naa ni ñu ngi nuyu ñëpp léegi pour euh, numéro code képp ku soxla numéro code da nga koy woo ci 77 998 98 06 77.

woote ci numéro rek incha allah di leen jot. lépp loo lu la raté woon ci émission bi rek xam naa boo leen way dinañ li ko kii. ñu ngi nii ñëpp di ziar tey vraiment kontaan nañu ku mel ni kumba Diaw nee na dafa woote ba sonn mënul fexe ba oh, dugg. ak soxna Mariam Gaye fii ci Colobane ñoom ñëpp ñu ngi ñu woon ci ligne bi. yàlla na yàlla dolli sutura kon xam naa sëñ Cheikh mhm. sëñ Cheikh bisimilah. ñëwal ñu. clôturer clôturer. commencé na. Mhm. Mhm. Mm-hmm. alhamdulilah wala dañ doon essayé baax na baax tabaarakallah mm-hmm. baax na mm-hmm. su ko defee nag kon ñii ñooy daara fajtal wallaay ndeysaan yaakaar naa ni ku dégg uh, ni ñu indee moo tax ñoom ñooy ustaasu daara fajtal ñoom la bokkul ak sëriñu daara fajtal nee nañu ay sëriñ lañu mais ñii ñoom ñooy ustaas yi ñooy yi ñooy jàngalekat yi. Euh, at yi nga xam ni yàgg nañu trop. Hmm. Amadou saw dégg naa ko. wallaay Amadou Sow. waaw ëpp na vingt ans. dégg naa itam Moriñang Mbacke Bari. mooy bu ma ko fàtte. jox ni fi ay conseils yu am solo. allah du ko fàtte bu soobee yàlla. Hmm. yàlla bu ñu fàtte wante rek. Hmm, su ko defee kon. yal na yàlla dolli sutura. ndax Cheikh Tidiane wax na dëgg. nee na boobu Abdou Diouf ay président. Hmm, Cheikh Tidiane Diouf. waaw boobu yàgg na. jégg hmm, hmm, naa itam euh, kii dëkk Buxu. waaw Moussa Dione Buxu Moussa Dione Buxu gëj nañ koo dégg. waaw ah, wallaahi waaw Adama Cissé. Adama Cissé. tabaarakallaahu mbokk yooyu. yàlla na yàlla dolli sutura bu baax. di leen gërëm di ndax boo indee sa mbër. Mhm. teg ko ci làmbu ji mu daan da ngay kontaan. moo tax tey Daara Fatou. waaw kontaan nañu làmb kon suñuy mbër daan nañu. wallaahi yàlla na ngeen yàgg daan. macha allah macha te yàlla def ci barke. ci mbaaxu yàlla. ah jërëjëf jëf jërëjëf sama nijaay. Uh-huh. Alxasan Diagne. Mm-hmm. taxawaay bi yàgg na na yàgg rafet. amiin amiin jërëjëf fa tabaarakallaahu jërëjëf kaalilu mm-hmm. waande nag ñu ni nag jërëjëf te ànd ak ñaan toujours mooy mm-hmm. alxaaji Masay Jong mm-hmm. waaw ndax nañ koy ñaanal bu baax ndax li tax ma wax ko man xam naa ko nañ koy ñaanal bu baax yàlla di ko gën a may di ñu gën a may wér ñun ñëpp te mu may ñu fan yu gudd mu ànd ak mu may ñu yaram yu wér mu may ñu itam mujj gu rafet Euh, lii amadu Sow wax mhm. dafa am nit ku munti doon mhm. da nangoo am kilifa wallaahi dëgg la nangoo tënku mhm. euh, nit lu mu xam rek wax ko du nu mu mëne nu mu mëne rek wane ko du noonu loolu nit du ko def loolu baaxul mag ñi nag loolu lañ daan tere ndaw ndaw nag bu tolloo ci ndaw te nangoo am kilifa. Mhm. yàlla dana ko defal sutura bu soobee yàlla. Mhm. lu mu dugg rek mu nekk ndax. dëgg kon nag yàlla leen yàlla dollil sutura. li ngeen fi joxe yàlla na ko yàlla nangu. te itam dana nangu ndax. Mhm. ci xol bu laab ngeen ko def. te itam maanaam nekku leen itam ñu ñàkk fayda. waaw sëriñ bu ñàkk fayda. mooy sëriñ boo xam ni bu weeteeg jigéen da koy jéem a noggatu. di ko yéem a jéem a wax yëfu caaxaan. pourtant euh, yàlla ngi dogal ñu xam lu bare. Ah, <laughs> waaw lu bare. mais nag sutura dafa baax. <laughs> Mhm, mhm. waaw su ko defee yéen bokk leen ci sëriñ yu ñàkk fayda yi. monsieur Nen day bind téere. kon nag yal na yàlla dolli ñu xéewal bu baax. di gërëm itam suñu mbokk suñu xarit suñu kóllëre di Cheikh Sylla. Sylla taxawaayam rafet na lool te nit ku baax la. Mhm. alhamdulilah yàlla yokk. ñëpp daal ñëpp a baax. ak Massamba Seye waaw Massamba Seye waaw moom itam. waaw mi ngi ci moom dañ ko fàttaliwul ak Serigne waaw Ndiaye moom moom bu ñëwee dëgg-dëgg ci xam-xam rek dañuy waxtaan. Mm-hmm. te ca mbir ma. wallaay Fallou juuf dugg na moom te te te ah. ah Fallou Diouf. wax nga dëgg waaw sama jarbaar. Mm-hmm. tabaarakallah kon yàlla na yàlla dolli sutura bu baax amiin di leen dig daje incha allah ba alxamis incha allah te alxamis bu jot nag mm-hmm. ah na neex mais bii moom alxamis da ko mën a dàq su ko defee yéen itam nag mm-hmm. ngeen xam ni mbir mi yéen a ko moom mm-hmm. di leen faral di ñëw di di nuyu mboolem ah, ñi nga xam ne nag ñu ngi ci building communal li commencé ci maire ba mboolem emploi yi fi nekk yëpp ëmbaale rajo bi kon radio radio municipal mhm. mingi ngi gërëm eh, madame la maire madame Wardini ak am eh, Zahra Wardini mhm. tabarakallah madame Zahra Wardini mhm. ñi ngi koy nuyu di nuyu personnelu maire bi yëpp fa tabarakallah ah, maam mi ngi ci biir kër gi waaw ak employé yëpp ñoom ñëpp ñu baax lool yàlla na yàlla dolli sutura te dolli xéewal bu baax di dolli tam suñu kilifa rajo Mm-hmm. di Henriette eh, Niang Henriette Niang tabaarakallahu moom itam ak personnel rajo bi yëpp bàyyiwuñu kenn ku nekk rek bu ër bi déwén jote mm-hmm. yàlla na nga gis ni ndekete ren laa gën a yokk daaw yàlla na ko yàlla def amiin amiin yaa rabbal alamin yàlla nañ ko fi waxaat ci fekkek tal mm. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu